Mustafa رسله وفي الختم منع لي سيادة في ترسي تسمية فكم تربة في المهد دحاس سنية بإصلاح أعمال وإخلاص نية سجية في الفات لخير سجية سيادته للروح لخير خفية ولا عجب أن يبدل الشخص في الجنس اللهم صل على محمد سيدنا Torja شفاعته خدا وإلا فمن ترجى شفاعته خدا وقد خاب كل ما عداه من الردى وقام بها من حول مقام المحمدى سبوق بلا عين قريب بلا مدى عليم بلا خط حفيظ بلا درس سيد البشر وصفي المصطفى الفسيخ عن آه جميل الخدايا لا يهيف على العداء جليل العتايا ست الكف بالجدا سري المسايا ساهر البث والندى كريم سجايا طاهر الجسم والنفس محمد خير البشر وصف المصطفى المعاصر فتوبى لخد في سراه يمرخ فتوبى لخد في سراه يمرق فذلك في الدنيا نعيم مسوق وفي الحسر والباقي أجل وأسبق سبيل نجاة للجنان مبلغ ودونك فاستزهيد بعقلك والحصير Seydil Basara وصفي المصطفى المعصر عصام بيمنى الحق قعدها مجردا حسام بيمنى الحق قعدها مجردا يسوق الورى للخير مثنى وموحى وكم ساب من حفي سدائد منجدا ساب يفيد الحق الريا بلا صدى وعلما بلا شك وبرأا بلا نقص اللهم صل على محمد yoroo micro. allahumma salli ala basare محمدا من الحب والتشريف في رتبة العلو العضاء من الحب والتشريع في في رتبة العليا على محمد تزيا بالفضائل بالذات رسول تزيا بالفضائل بالذات رسول تزيا بالفضائل بالذات رسول تزيا بالفضائل بالذات رسول تزيا بالفضائل بالذات رسول تزيا بالفضائل صدائم بزنا حمى للدنا والدين نذاتا وحوزتنا يا خسرت يا حلي سماحي وحزتنا يخسر عنه الناس مو النصر عزتنا ولو أن ذا أخيا ولو أن ذا أحيا محمد واستقم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المحضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي حدانا لهذا wa ma kunna linahtadi lawla an hadana allah wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbooleem ronu ci tant bi di jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ suñu kalifa général baay sëriñ Hasan Seck ayadakallaahu wa nazara ñu ngi koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér noonu la ñuy nuyoo rakkam ju baax ja bàyyi sëriñ ñaaxa Seck di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér yal na yàlla defal ko ko waaye noonu la ñuy nuyoo suñu bàjjen bàjjen Haraman Seck yal na yàlla guddal aw fanam te ko noonu la ñuy jàll di nuyu taaw sëtaat yi nga xam ni mooy xalifa sëtaat yëpp muy sëriñ Jibrilu Seck ibnu sëriñ Ibrahima Seck ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayu sët yëpp waaye noonu la ñuy nuyoo njabootug maam Ibra Penda Seck te xalifa bi di sëriñ Ibrahima baytaala xaar ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu képp ko aju ci famille maam Ibra Penda Seck waaye noonu la ñuy nuyoo maam ma di kero xaya Seck ak mbooleem ko aju ci famille maam ma di kero xaya xalifaam di sëriñ Mamadou Rokhaya Seck ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay ak mbooleem njabootu cekkeen gépp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn noonu la ñuy nuyoo imaamu raatibu dëkk bi muy Alaaji Ibrahima Fay ak mbooleem imaamu ratib nekk ci mbuur yëpp waaye noonu la ñuy nuyoo sëriñ daara yi nga xam ni ñoo nekk ci biir mbuur yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay ci bis nga xam ni ñoo ko bokk waaye it noonu la ñuy nuyoo mboolem njabootu cekkeen gépp bàyyiwuñu kenn noonu la ñuy nuyoo taalibe noonu la ñuy nuyoo soppe noonu la ñuy nuyoo xarit yi waaye nag noonu la ñuy nuyoo monsieur le préfet département de Mbour waaye noonu la ñuy nuyoo itam monsieur le maire de Mbour du premier magistrat de Mbour ñu koy nuyu di ko jox wàccuwaayam waaye noonu lañuy ñuy itam mboolem honorable député yi nekk ci biir Mbour gépp ñu ngi nuyu ñëpp di leen jox seen wàccuwaay bu ko defee ginnaaw loolu ñu ngi sant yàlla bu baax euh, di ñaanal Serigne Mouhamadul Mourtada ibnu Serigne Ousmane di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal bis bi yal na yàlla seral ko guy ci barakati Seydina Muhammad bu ko defee rek dañuy daal di jublu ci programme bi jublu ci liggéey bi nga xam ni waxtu wi mu ngi dem te guddi na bu ko defee nanu ko daan defee ku wax bis bi wax bis bi xam ni li ko sos mooy alquranul karim alquranul karim moom la bàyyi Seydina Ousmane sose bis bii muy continuer ba tey bis bi yegg si fii kon ku wax bisu bàyyi Seydina Ousmane xam ne alquran moo koy lay taay moo ko lay ci suba teel wàcce nañu kaamir yu bari fii ci daara ji waaye wàcce nañu kaamir yu bari fële ca kokki waaye mboolem daara yi ci senegal gépp te Thiénaba ak fule wàcce nañ fa ay kaamil yu bari lim takku kon alquran mooy lay taay bi waaye bis bi nag dafa am exceptionnel bu ñu bëggee ubbi bis bi dañ koy njëkke ci alquranul karim ki nga xam ni mooy ubbi bis bi ci alquranul karim muy Serigne Babacar Cissé ibnu Baye Serigne Thione Cissé bu ko defee ku ne xam na ni ki daan taxaw fii daan def lii may def man ko lool jàmbaar ci lool liggéeyal kër Cheikh na ba ñëpp kontaan ci moom ba keroog bu mu génnee àdduna dañu nañ ko denc fi mag ñi ne ndax liggéeyal na kër na Thiénaba muy sëriñ Mori Diouf yàlla yàlla xaroo ko àjjana yal na yàlla yokk ay leeram yal na yàlla nuural ko ci yërmandeem yal na yàlla wone la ko ak bàyyi Serigne Ousmane Seck ndax nag arab dafa yonent bi dafay wax ni almaru maman ahabba yawmal qiyaam kon nag yàlla na ko yàlla dëkkaleeg waaye Serigne Ousmane noonu lañuy ñuy rendre hommage bàyyi sëriñ ngañ Mboup ku nekk xam na ni bàyyi sëriñ ngañ Mboup jàmbaar la woon moo nekkoon président daayira Mbuur daayira mbuur yëpp ci moom lañu ñu sosoo moo njëkk a nekk président daayira mbuur wàññeeku bu yàggul ñu ngi koy rendre hommage di ko boole ci ñaan gi ñu ngi ñaan yal na yàlla nangu leen waaye noonu lañuy ñuy ci dugalaale ci ñaan gi xal sëriñ Maodo Babacar Seck nga xam ni xaritu sëriñ bi la soppee sëriñ bi la wóllëre sëriñ bi la moo daan njëkk ci gàmm gi ci suba moo tax sëriñ bi bi mu ko gisul ah, ci suba yaramam daw waaye ñu ngi koy dugalaale ci ñaan gi xam ni mu jël wàllam ci ñaan gi waaye noonu lañ ci dugalaale rakkam ja sëriñ Adama Seck waaye noonu lañ ciy dugalaale kii nga xam ni mooy mbuur mbuuray moom soxnaam wàññeeku muy sëriñ Omar Sy soxnaam ñu ngi koy dugalaale ci ñaan gi yal na yàlla xare leen àjjana sëriñ Cheikh Ba ku ne xam na ko woy juram di maam ci sëriñ bi wàññeeku ko bu yàggul mu yàgg ko du faal moom it ñu ngi koy dugalaale ci ñaan gi yal na yàlla xara ko ajjana bu ko defee rek programme bi dañuy jël Serigne Babacar Cissé alquran ibnu Baye Serigne Tonne Cissé mu ubbil ñu alquranu karim bu ko defee ñu continuer ci programme bi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 الضالين يا que سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض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 bu ko defee noonu la ñuy continuer programme bi nga xam ni bu ñu jógee ci alquran tantu bay Serigne Ousmane kan moo ko daan ubbi ñu ni allaaji Alaaji Seex Samb mu tudde woon Serigne Ousmane Serigne Ousmane islam bi bëggoon Serigne Ousmane lool gëmoon Serigne Ousmane lool waaye yaakaaroon Serigne Ousmane lool njabootam gépp ci ndigalul xalifa ba sëriñ Bakary Samb muy docteur Bakary Samb ñu boole seen kàddu takk ko ba mu dëgër teg ko ci loxol sëriñ Tayiru sàmb muy seen rak waaye sës ñoom rek tërëkku leen mat ko lool mat ko sëkk kon kàddu gi dañ koy jox sëriñ Tayir sàmb nga yëkkati kàddu bay alaaji Seex Samb kon sëriñ Tayir tafaddal sheytaani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 gayril maxduubi alayhim wala daalin amin wafdalu salaatu wasalaamu ala man zakaahu rabbuhu fi sidqihi wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila waxyin yuuxa wa zakaahu rabbuhu fi xulqihi wa innaka la ala xuluqin azimin wa zakaahu rabbuhu fi zikrihi wa rafa'na laka zikraka wa yubashiruhu rabbuhu wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi wa man waalahum bi ihsaanihim ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi santaat yàlla bu baax di santale yàlla sëriñ Mouhamadul Mourtada Seck ginnaaw bu nu nuyoo sunu baay alxaaji Asan Seck xalifa bi nuy tabaarakallaahu xalifa généraux yi ci Sénégal yépp ñaan yàlla yal na yàlla yàggal leen sunu kanam nuyu tabaarakallaahu ki nga xamee ni moo doon baayam la ñuy wax waaye kii day toog daa doon baayam ma ni mën nañoo wax ni kii toog mu Cheikh Mouhamadou Moutada Seck daa doon baayam waaye déedéet daa doon baayam ndax la way jur wa sàmmul woon bàyyi ko ginnaaw muy daara ji jàkka ji jumaa ji ak li nga xamee ni mooy gàmmu gi fa ko bàyyam bàyyi woon sëñ Mouhamadou Moutada ñun waa Mbuur ak département bi kóllëre bàyyam yépp xam ni yokk na ko waaye def na la Seydina Muhammad waxoon la waxoon ni doomu aadama su ñàkkee woy juram deseel na woy ñett yoo xam ni deseel na ko woy juram ñu ni ko ban ak ban mu ni wa duaawu lahuma wa istixfaaru lahuma wa nafdi ahdihima seyduna muhammad nee na boo ñàkkee sa waajur wu góor ak wu jigéen deseel nga leen ñetti àq yoo leen war a rendre compte ëllëg ñu ni ko ban ak ban mu ni nga di leen ñaanal benn te di leen jéggalul ñaar kollëre yu nu amoon nga sàmm ko Cheikh Mouhamadou Mourtada def na ñetti yëpp Seck Mori yàlla na nga fi yàgg te di nuyu soxna Astou Bala Seck sa mag ak mboolem famille Baye El Hadj Ousmane Seck yëpp bu nuyoo Cheikh Mouhamad Murtada dana ñu joxal nuyoo bi njaboot gépp tabaarakallaahu yaatu Cheikh Mouhamad Muxtaar ak tabaarakallaahu mboolem lu sëñ Ousmane jaboote góor ak jigéen bàyyiwuma kenn ndax ku ci ne sagal nga Cheikh Murtada topp nga ndigalam fu ñu la yebal sax te nekku fa day mel ni Cheikh Mouhamad Moutada ma nga fa tabaarakallaahu ñaan yàlla kóllëre yi nga xam ni àndoon na nag Serigne Ousmane ñoom ñëpp ku ci ne Serigne Mouhamad Moutada jox na la cër bala bayu jiram joxoon boole kook ñi nga xamee ni tey jii mooy administration bi mooy daara yi mooy doomu soxna yi ku Serigne Ousmane amoon rek Cheikh Mouhamadou Moutada rafetal na jëmal ci yow waaye nag jombewul yàlla moo ni wax si nu inna allaha yuhibbul kon Cheikh Mouhamadou Moutada njabootu baay alaaji Cheikh Samb ñu ngi lay nuyu ngir kóllëre gi nga ñu delloo ngir sag mbaax tabaarakallaahu yàlla na yàlla dolli laa taxaw zahiran wa baatinan taxaw say rak di nuyu nag ahlu canaba yëpp képp ku fa jógee rek ñu ngi lay ziar di ñaan yàlla defal nu tawfiqul ilahi xanaa yamale foofu kàddu yi rek ndax tabaarakallaahu li ci des mu ëpp fuuf li jàll lii day kóllëre te tabaarakallaahu yàlla daa wax ci alquran ni sa wayjur ko firil ni ma yàlla nee na ufu innal ahda kaana mas'uula na ngeen fonk kóllëre ndax man yàlla ëllëg dama koy laaj tabaarakallaahu njabootu baay Cheikh Samb laa leen yoreel ci kóllëre delloo nga leen ko buy des kay ci ñoom lay doon waaye la la war def nga ko sekk moori yàlla na nga gudd fan yaag say rakk yëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu yemale foofu kaddu yi di baalu àq ñëpp yóbbante woon na ma nee nañ gàmm gi gàmm Baye Cheikh Samb bii di ñëw la nee nañ ma wax la ko nga dégg ko ñi fi teew ñëpp déggaale ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu nii la ko sa way juróo bàyyi alaaji Seex Sàmb daan defe mu rafet lool kon nag wat ca watit wa bu ko defee rek ku gis tànt bi nga xam ni Serigne Mor Talla Seck wiitul ci tànt bi ay doomi baayam ànd na noog ñoom ay baayam ànd ak moom ay mbagam ànd ak moom ay rakkam ànd ak moom ñu gunge ko ci bis bi ay taalibeem ànd ak moom ay soppeem ànd ak moom ñu présenté ci kilifa yi nga xam ni ñoo rot si ci tant bi te sant Seck bu ko defee ñu ngi présenté kii nga xam ni moo toog ci ndijooram di seexam di xaritam di soppeem ñoom duñu ñaar kenn rekk lañ muy sëriñ Pape Mourtada Seck ma dikke wuy juróom bu baax ba bàyyi sëriñ ma dikke moo leen boolele woon seexale jël ijaasa jox sëriñ Mor jël ijaasa jox sëriñ Pape Seck ma dikke ni leen bis ni ki tey seexale naa leen na ngeen xam ni ñoom ñaar ñii duñu ñaari jëmm benn jëmm lañ piis la bi ci biti ak bi ci biir kenn mënu leen a taqale ku leen taqale yàq piis ba kon sëriñ Pap sa seex sa wayjur mu ngi lay dalal jàmm sëriñ seex Tidiane Seck mu baay Alpha Mamadou Seck nekkoon porte-parole baay Abdourahim Seck yal na yàlla yokk ay leeram moo toog nii ci watem sëriñ Adama Seck mu bàyyi sëriñ Talla Xaar moo toog nii ci wetam gunge xaritam gunge soppeem waaye sëriñ Abdourahman Seck mu bàyyi sëriñ ma dikke mu ngi toog ci seen wet gunge magam gunge rakkam gunge ay soppeem waaye ànd koog taalibe yi yëpp nag ànd koog sëriñ Baye Diop Seck mu bàyyi sëriñ Talla Xaar nga xam ni diirub bi bàyyi Seex Tijaan Seck borom alquran nekkee ci xilaafa gi moo nekkoon porte parole am di ko def mu rafet lool rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala sayidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa asaabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yawmi ddin ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa baraka nuyoo bi ñu ngi ciy jiital xalifatul aam li taifatu canaba alwalid Cheikh Assane Seck ayadoola wa nasara waaye di ci teg njobootu maam ahmadou ndaa ñëpp du koroon wa nisaan ñu ngi leen di nuyu di nuyu mboolem ko bi rot si waaye di yeesal sunum nuyu ci maam Mortada Seck Ousmane ak ay rakkam yépp sëñ alfa sëñ Ibrahima sëñ alfa sëñ Ibrahima sëriñ Mokhtar waaye ji jiital ci nuyoo bi seen mag muy soxna Astu la ñu ngi leen di ñaanal seen bennoo gi ñu bennoo yàlla na ko yàlla saxal waaye di nuyu mboolem kilifa yu rot si yëpp boo duggee ci lim dangay ngay desal waaye bu ñu tuddee sëriñ aas ak lu maam Ahmadou Ndaak joboote rek nuyu nañu ñëpp ñëpp gis nañ leen xàmme nañ leen mën nañu jaar ci ñoom waaye di nuyu mboolem wëllëre yi nga xam ne si rot nañu fi benn ak bi indi leen wala ak cofeel indi leen wala ak kóllëre indi leen ñu ngi nuyu ñoom ñëpp ñi nga xam ni dañoo nekk ci dëkk bii di yore nguur gi di kilifa nguur gi ñu ngi leen di nuyu di leen saara mu mel ni ki tax ñu daje fi mooy Serigne Ousmane Seck حينما ارتحل إلى جوار ربه حارت البرية وتاس القلوب Sëñ Usmaan guddi ga mu dem dëkkaale jeek boroomam mbindaaf yëpp doom ñëpp jaaxle nañu xol yi gëlëm nañu xel yi jaaxle nañu ndax lan mooy xew ginnaawam ndeke yoo aay bii déggoon naa ko waaye maa ngi koy gën a dégg tey suñu boroom tontu ak nun ca ba jaaxle gëlëm mu ne inna nax nuxil mawta wa naktubu maa qaddamoo wa athaaroom ndax wa kulla shay'in ahshaynaa fi imaamin mubin yàlla wax ni bu leen gëlëm bu leen jaaxle kii ngeen dee dafa génn àddina ak ñi mel ñu ñëpp nuxil mawta ñi génn àddina ngeen deen dañoo dem yàlla nee na maa yor seenu dund war nag tuuma maa xaddamoo lépp li nga xam ne si nekkoon nañ si yàlla nee na maa leen di téye loolu dara du réer dara du màbb dara du jaaxle waaye wa asaarahum ak ñi leen topp seen ginnaaw kon jox sa bopp yàlla mooy li wóor sëñ Ousmane dafa joxoon boppam yàlla àdduna jëluloon ci moom dara sëñ Ousmane Sëriñ Usmaan aaya boobu yàlla wax ni ñi nga xam ne sii dañoo dañoo jeex ci man seen jëm mooy dem waaye seen jëf dama koy téye seen lu baax la dama koy téye dara du saase waaye dama cee teg assurance ci ñi leen nga xam ne si ñoo leen topp seen ginnaaw seenub jataay dara du wuute loolu li koy firi bir Serigne Ousmane demee ci boroomam ak tey jii bi nekk 2023 ku ñëw ci tànt bii maa ngi koy wax ci bëccëg boo yëgul ni Serigne Ousmane génn na àddina da ngay dee ne daa ñëwagul rek waaye kon Serigne Ousmane yàlla moo ko téyel boppam yàlla moo ko téyel ay jëfam yàlla moo saxal ndëggoom yàlla moo saxal ndëggoom jëfam du réer jëfam du saay bis bu nekk day gën a yees waaye nag mu teg ca mu ni wa atharuhum ñi nga xam ne ñoo des ginnaawam topp ci ginnaawam ñaar yàlla moo leen di téyel seen dëggu mooy rafetal seen taxawaay ba dara du réer kon alhamdulilahi rabbil alamin su fekkee ne dañoo gëlëm a nit yaakaar ni ginnaaw sëñ Ousmane mbir mi dana jaxasoo wala foofa lay yem yàlla tontu nanu tontu la mooy lii tey kon yal yàlla saxal ci sëñ Ousmane ngërëmam yal na yàlla saxal ci sëñ Ousmane yërmandeem waaye barkeem yal na ko yàlla desal ci njaboot gi ak mboolem ñi ko bokkal mu mel nag ni alhamdulilahi rabbil alamin mboolem fu waay bàyyi ko ngir lii ma jëkkan wax muy ak cofeel walla ak taalibe wala nga jël sa wërsëg lugal ko ci bis bi ku toog ci luy dund dangay dund kon lépp lu ci waay def rek ak yokk lay doon ci yow abadan ila abadil abidin kon yàlla na yàlla nungul leen seen i jëf yàlla yàlla nungul leen seeni jëf maam mortala jataayu baayam la toog waaye mat na ko sëkk jataayu maamam la toog waaye mat na ko sëkk jataayu maam ahmad ndaag la tooge waaye mat na ko sëkk loolu nag mu ànd ko ak i bokkam ngir jikkoom ji rafet waaye ànd kook ay rakkam ngir ak defaram ak jikkoom ju rafet waaye mu ànd ko mboolem koo xam ne si wala réew baayam la ker képp koo xam ne sëñ Ousmane joxoon na la cër maam Mor Talla bi mu toogee dafa gëstu kooku laajte ba xam diw nan la seqoon na sa baay nan la àndama sama waajur ñi nga xam ne ñoo dara sëñ Ousmane leeral ko loolu mu jë mu yeesal cër yooyu kon sëñ Ousmane yàlla sëñ Mor yàlla na yàlla dolli laa dëgëral yàlla na yàlla guddal sa fon ñu ngi nuyu sëñ Pape Morta Mortada sëñ Madické li ñu wax ci sëñ Mortala rek yoon loolu mooy sa taxawaay ca kajoor ak ci diina ji kon tabaarakallaa alhamdulilahi rabbi alamin eh, li ma gën a bëgg gën a bëgg nag mooy maam mortaala loolu njaboot gu nekk njaboot gu nekk sa kilifa war la war na ginnaaw dem ngeen des di njaboot war ngeen cee jànge maam laa ngi nii moog rakkam yi benn lañu xamewoo kii ak kii benn lañu ñoom ñëpp kilif cërub kilifteef gañ joxoon sëñ Ousmane ñu jox ko ko ba mu mat sëkk cent pour cent dara desu si waaye moom it mu yiir leen na sëñ Ousmane yi na na leen sëñ Ousmane yiire woon kon loolu su fekkente ni kilifa dafa dem bàyyi njaboot njaboot googee war nañu xool ci loolu waaye nag loolu jëfu sëñ Ousmane ak rafetal gum rafet ak yar gum leen yar ci bennoo ak booloo ak doyloo yàlla ak doyloo teraanga ji leen yàlla jox kon loolu kenn ku ne war na cee jànge tabaarakallaa Ah, ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jee ñaan yàlla nag mboolem fu bàyyi bàyyi koo ñëw dikk ak dem koo àndal ak koo taseel yàlla na yàlla def leen jàmm yàlla yàlla na bindal leen tuyaaba di ñaan ci réew mi nag di sàkku itam mbooleem kilifa yi toog yi toog ñu ñaan ci réew mi yàlla def ci jàmm yàlla def ci jubóo réew mi ñoo ñëpp ñoo fi bokk dëkk li may dégg ngeen di dégg li xam ngeen di xam xam ngeen ne weranteeg nàngam nangam yi bari na waaye yàlla mi yor jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm te nekk ku dëkk ci réew mii war nga foo toll di ñaan jàmm ndax boo jógee fii tukki dañ naan diw dafa tukki boo dellu see ñu ni ñibbisi na kon nag ki nga xam ne boo fi ngay sax foo dem da ngaa tukki boo ñibbisi del si wi yàlla na fi yàlla def jàmm waaye yàlla na fi yàlla def jàmmoo waaye yàlla na fi yàlla def bennoo waaye loolu nag ñu ciy dalal suñu xel ndax xam ngeen ni 2024 mi ngi ñëw waxaan naa fii mille neuf cent deux mille deux mille deux mille deux mille deux ba mbir jaxasoo lépp jaxasoo man leen incha allah réew mi yàlla jàmm rek la fiy def ndax soorool ba ca Touba soorool ba ca Tiwaawoon soorool ba ca Cenaba soorool ba ca Yoof mboolem soorool diine yëpp di kër diine fenn fu nekk kenn kuy julli wax assalaamu aleyna wa aleyna abdallah saalina jàmm jooju yàlla dana ko sàmm réew mi kon nag na ci xel dal bu baax yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm yàlla na ci yàlla def ak jàmmoo maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp mboolem ku ci def sa wërsëg wala nga def ci xalaat yàlla na yàlla dimbali aqulu qawli haaza wa maa tawfiiqii illaa billah loolu nag maa ngi koy wax ci kàddug daara ji ñoom Serigne Xaali Ñang ñoom moo Gueye ñoom ak mboolem ñi nga xam ne si ñoo nekkan ci daara ji daan fi jànge ba ci Cheikh Samb moomu ñuy tudd noo bokk nekk fii ci daara ji kon nag yàlla na yàlla def yàlla yàlla sàmm ñëpp ci réew mi jàmm defal sàmm njaboot gi fi zaahir wal baatin aqulu qawli haadha wa maa tawfiiqi bi kon duñ ci teg benn commentaire dañuy yëkkati kàddu gi jox ko sunu baay Baara Jóob nga xam ni mooy wax ci turu daayira yi nga xam ni ñoo taxawal bis bii ndax ku gis bis bii ni mu taaroo xam ni daayira yi ko taxawal ay jàmbaar lañ kon kii wax ci seen kàddu muy Baye Baara kon Baye Baara Diop bisimillahi tafaddal rajim bismillahi rahmani rahim suma salaatu wasalaamu ala rasulillahi mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu mboolem ku fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi nuyu ñi fi dëkk ak ñi fi gane si di ñaan yàlla ci barke Seydina Muhammad yal na sama boroom faj aajo yi ñëpp yal na sama boroom dellusiwaat fi ñëpp déwén ak jàmm ñu yàgg fee fekk suñu kilifa yii ci ginnaaw njaboot ak maam Ahmadou Ndaak Seck yëpp bis bi tey di bisu sëñ Mourtada Seck jële ko si bàyyam bu tedd ba Seydina Ousmane Seck yàlla na ko ñëpp yàgg teewe kaddu gi nag kenn ku ne am nga fa war a yem ci kàddu wax nañ ma la ma daan jël di porte parole Seyna Ousmane jëm ci taalibe yi doomam ju tedd ji di sëñ Mourtada ñëw suuxat loola la woon fa woon ñëwoon fa woon yal yàlla may da gudd fan ñu ngi lay ñaan yàlla lafal la cat ak fan wu gudd dafa la fan wu gudd wu ànd ak wér sëñ Mourtada mu dikke macha allahu yal na yàlla yeggal sa yéene si diine ji yàgg seen njaboot ak mboolem seeti maam Ahmadou Ndak ñi fi lim yëpp yàlla na yàlla eggale seen yéene ci seen kër maam ji di jël nag kàddu ci làmmiñu daa daayira yi nga xam ni ñoo seq mbuur gi ñoo xam ne ñoo organiser gàmmu gi ñoo baas ñoo organise ñoo leen teeru ñoo leen di teral ñoo leen di gunge daayira yi seq mbuur nag bi ma jëkk jëkk jëkk tudd mooy daayira bi nga xam ni moom la fi mag ñi bàyyi woon ki ñu lim léegi di suñu président Ngagne Mboup yal na yàlla dolli ay leeram dolli ay yërmandeem moo ko fi bàyyi ak ñun teg ko si loxol buubu taal mi ni ko yaa ma si doy nanga ma jiiteel mbooloo mi boobaak léegi nag bàyyi coon saal gunge na ko Ardo mii mi na ko moo Fall gunge na ko euh, Ibrahima Tall transporteur gunge na ko ak ñeneen ak ñeneen su ma limee ñëpp guddi gi day jeex waaye képp koo xam ne nii taxaw nga ci daa daayira buubu taal boobu di si liggéey guddi ak bëccëg suba ngoon ñi nga ñaan yàlla si barke Seydina Ousmane yal na yàlla fayal la boppam buñ si jógee ñi ngi gërëm suñu jeunesse bi sunu jeunesse bi nga xam ne seen président mooy jawriñu kër Seydina Ousmane cekkandooy du sonn du tàyyi cekkandooy du gedd cekkandooy du xuloo cekk ndooy du xeex mbonu taal maa koy seen fële moom it macha allah maasabrin yal na yàlla fay ñëpp cekk ndooy nee na xale yi mu àndal ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal di ñaan yàlla def leen ay mag doolu seen wërsëg bu ah, daayira bi nga xam ni mooy daayira Pape di soppay sëñ a Seck ñu leen itam ngeen jëf yàgg sëñ Baara Baara Baara Seck seen taxawaay rafet na macha allah ñoo bokk guddi ñoo bokk bëccëg ñoo bokk kër Seexu Canaba ñoo bokk lépp yéen nga dox seen waar yan yàlla fay leen yéen nga ànd ak seen kilifa sëñ Assane Sarr ànd ak la famille Sougou ak la famille Tall ngeen di dox ngeen di doxal diine ji yan yàlla fay leen bu ñu si jógee daayira Moodu Moodu Ngom ah mention spéciale taxawaay bu rafet na liggéey bi rafet na sëriñ bi nee na gis na seen liggéey si kër gi yan yàlla fay leen kon daayira yooyu ñooy ñi nga xam ne ñoo ne mbuur ak sunu jigéen yu tedd yële soxna njo soxna soxna soxna Mati Mbay moo jiite daayira jigéen ñi soxna Ñaga Njaay jiite daayira xal yu jigéen ñi ah ñoom itam ay jigéen yoo xam ne macha allah seen liggéey yal na yàlla fay leen barkeel seen njaboot ci saayir ak ci baatin sëñ Ardo Fall mi nga xam ni nag ma nga nee toog ah, ci ci ci ci buntu ba moom itam ñu ngi koy gërëm. di ko sant di ko jaajëfal bu loolu wéyee ah ñu ngi gërëm daayira yi nga xam ni saa bu ñu wootee ci Mbour di événement boo xam ne Sénégal gépp mënta ñëw département de Mbour moom dañuy ñëw caajaay day ñëw Kër Bakary dañuy ñëw campement dañuy ñëw waa Njax dañuy ñëw waa Kër Mbay Seeni dañuy ñëw waa Saman dañuy ñëw waa Sanjara dañuy ñëw waa Jawaalo dañuy ñëw waa Baling dañuy ñëw waa Mboojen dañuy ñëw ñaniñ dañu ñëw kon département de Mbour bi yëpp waa Samane ak ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal ñu seede waa nit ñi nag ñi nga xam ne dëkkuñu Mbour di la xamal ni daayira yi nga xam ne ñoo organisé ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni leen seen xel na dal ci saayir ak ci baatin ci kër Sëñ Ousmane gi kër Sëñ Ousmane gi nañu seen xel dal ci saayir ak ci baatin ñun ñooy fekk julli jumaa yi ci dëkk bi fekk ngénte yi ci dëkk bi fekk dëj yi ci dëkk bi waaye suñu sang bii seeni Mourtada Seck mii fépp fu mu leen teewal bu fa jógee ngeen yëkkati seen loxo ni wiiw sëñ Mourtada Seck yal na yàlla fayal na ko barke yonte bi alayhi salaamu laay sama soppe yële sëñ Mbagay Seck mi ngi naan man léegi ànd ak Sayer Diop ñoom démb bi ñuy ñëw di indi teraanga Omar si fekk ñoo fi fekk sëñ bee ma yebuloon mission waaye yéen maay yéen yéenay man ñoo bokk lépp yal na yàlla fayal ñu leen li li cin li li si cin li duuf si nag wi xajul ci cin li li wër te mooy lépp lu waay man si ñaan na ko ñaanal yàlla mboolem ko fi teew yal na yàlla taaj ñu si barke Seydina Ousmane ci saayir ak si baatin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu huwa arrahmanu amanna bih wa alayhi tawakkalna wasalaatu wasalaamu ala xabibi quluubina wa tabibi nufuusina wa shafiici zunuubina abilqaasimi almustafa muhammad wa ala aalihi altayibiina altaahiriin wa ashaabihi alaxyaari almuntajabiin wa ala jamiici anbiyaa illaahi walmursaliin wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi ddiin amma baadu asalaamualeykum jamian wa rahmatullahi wa mbokki jullit yi fi teew yépp ñi ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii di ñaan yàlla yàlla na yàlla nangul ñu nangul leen jéggal ñu jéggal leen ñi ngi jotti li nuyoo ñi ñu yóbbante ay nuyoo te mooy waa daara ja xalifa jiite liggéey ba président Cheikh Ndiaye mi nga moo jiite association almuxlisuna lillah moom tamit nuyoom ñu ngi kaa jottali um uh, annisa al muminat nga xam ne soxna asubal la jo sekk membre la ca ñi da soxna Fatima Gueye ñu ngi jottali seen nuyoo jottali nuyoo Serigne Yaaba ma xam tamit moo lañ fi teewal fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin gàmma Baye Ousmane day xaw triste tuuti ndax boo xoolee ñaari jëmm yi toog muy Murtada Ousmane Seck ak Murtada Madika Seck sa xel da leen di jéggi dem ca sang yu baax ya daan toog fii muy sëñ Madika ak sëñ Ousmane ndeysaan sa yaram day xaw a daw waaye ren am la neen lu ci dolleeku muy ku baax ki daan taxaw fii muy oustaz Mori Diouf rahmatullahi alayhi ca civilisation rafetaay ba jekk ga ak wax ju tedd ja ñoom ñépp ñu ngi ci biir suuf loolu mooy programme yàlla yàlla moom programme am mooy arxamun tadfa wa ardun tabla baleen ma sax ci waxin wi butiitu njur yi ñooy yàbbi suuf di lekk noonu yàlla di doxale kulla yawmin waaye sew-sew am na foofu bu jar taxaw baal leen ma bu ñuy tunjur lan lay yàbbi yàpp ak yax suuf lu muy yàbbi lan lay lan lay lekk yàpp ak yax ki ñuy suul suuluñu nit ki waaye yàpp ak yax la suul ana nit ka malaaka mi jël na ko loolu la ñuy ruux ñu bëgg taxaw ci benn tomb nag ci lu gàtt ci ruux muy al azma ruuxiya fi l aalam asbabun wa xulul la crise spirituelle dans le monde cause et solution dafa nañ benn waxaan te gàmm ga ñu dellu ci ruux ci alquranul karim alquran bari na li muy jëfandikoo ruux wa yasaluunaka ani ruuxi quli ruuxu min amri rabbi danañ la laaj dal mooy ruux ne leen mbirum sama borom la léegi-léegi yàlla jëfandikoo ruux ci wetu malaaka mais du leen boole tanazzalu almalaikatu war ruuxu yawma yaqumu ruuxu foofu am nañu naan zikkun xaas badal am awil aks waaye yàlla laa tudd malaak tudd ruux boolewu leen léegi-léegi ruux ci alxuraan yàlla def ko mu nekk malaaka nazala bihi ruuxul aminu ala qalbika li takuna min al munzirin foofa ruux malaaka la qul nazala ruuxul qudusi min rabbika bil xaq foofa ruux malaaka la léegi-léegi ruux ci mu def ko ndimbal pour liggéey ci yoonu yàlla képp kuy liggéey ci toolu yàlla bi di sonn di sellal yàlla dana la booleeg ruux gu lay dëgëralal sab liggéey gu lay jàppale mindaa fon moo xam bët du ko gis mu lay mu lay mu lay kii yàlla nee na ci alxuraanu karim am na ñoo xam bi nii yàlla dara du leen del ci yàlla bu dee doom ñu bàyyi ko bu dee bàyyi ñu bàyyi ko bu dee yaay ñu bàyyi ko àdduna tawatina yàlla nee na ñooñu ulaaya kataba fi qulubihimul imaana wa ayyadahum bi ruuxin minhu yàlla dafa ne dëgëral xol booy na ruux mu jàppale leen seydina isa wa ayyadnaahu bi ruuxil qudus alquran yàlla tudd na ko ruux wa kadalik awxaynaa ilayka ruuxan min amrina aayaat yi yëpp bu ci bëggee dégg ruux lu muy firi foog nga xam ne am na ñaar yu am am na alamul amr ak alamul xalq alamul amr alamul xalq fi li ñuy dund ñun lépp li fi sotti rek ñaar am na mu doog a sotti matière ak temps bâtiment bii bi ñu koy tabax dañuy wuti matière wuti ciment wuti suuf wuti beton wuti fer loolu mooy matière bi temps bi mooy ñetti weer yim duré garab gi bi nga bëggee mu taxaw danga wuti grain bi matière la jëmbat di suuxat ba ab diir mu la wëkk doomu aadama tamit takannafahu suraya wa sara fa gis mu kuwina min xiisil xin war ruuxu ka nushuu doomu aadama yàpp ak yax bi fu mu jóge min sulaayatin min tiin matière la ban toq man niyu baal leen ma ci kàddu gi ba caag mu doon suuxu yàpp sumbu euh, euh, lumbu deret dama caag ñu def ay yax yooyu yëpp matière la ci diirub juróom-ñeenti weer loola mooy temps bi lépp luy sotti fii ci àdduna rek foog mu am temps ak matière léegi nag alamul amru nag amul temps amul matière wa ma amruna illa wahidatun ka lamhin bil basar foofu li jar taxaw mooy ruux gi bu ñëw yàlla moo kay defal boppam fa isaa sawaytu wala taxtu fiihi min ruuxi yàlla moo koy defal boppam waaye buy dem nag yàlla day joxe ndigal allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha yàlla mooy faat waaye day joxe ndigal wa maa kaana nafsin an tamuuta illa bi iznillah ndigal kitaaban mu ajjala ku muy jox ndigal malakul mawti xul yatawaffaakum malakul mawti mooy rey malakul mawti buy faat téeméeri té milliards yàlla booleel seen liggéey mooy rey xataa isa jaa ahadakum mawtu tawaffatu rusuluna mooy ñi ànd ak moom ñooñu nag bu ñuy jël si néew bi ñaari jël siin lañ koy jël see ndax doomu aadama ñaar ñi ñoo am ku yor yitteey mbëtt bàyyi leen ci kàddu gi mbëtt yitteem mooy am fu fu fu fu nooy fu sedd fu neex mu mawu fa bu xiifee génn lekk gunóor ñëwaat toog am na ñoo xam ne bii nii foofu lañ jam seen yitte mooy am résistance bu baax mel na war a mel bu ñu génnee rek pour satisfaire les besoins terrestres ñëwaat toog fa lañ jëm am ñoo xam ne yittey malaaka lañ yore naaw jëm ca kaw malaaka fu na lay dem tàngoor du ko empêché sedd du empêché jant mi nga xam ne egg na 6000 degré ci tàngoor malaaka yee ña fa am nañu yor yitte yittee malaaka ñooñu ki yore yittey mbëtt bala ma ci kàddu gi de bu malaaka di jël si ruux gi alxuraan nee na day lëndëm këriis ndax bàkkaar ya xesaw xunnu walaw taraa iz yatawaffaa allaziina kafaruu malaaykatu yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum yàlla nañ ci yàlla musal di mbéj di wéq buddi ruux gi ci nam gën a métti axriju anfusakum bu dee këlee nag yàlla nañ ci yàlla boole malaaka bu ñu ñëw kël gi day reer set wicc laab parfum yi di xeeñ a ñu yegg si yegg sin bu yiw yaa ayyatuha nafsul mutmainna yow bana mbakkan bu sell bi Baye Niass nee na nit ku baax du yëg mettitu dee du ko yëg ñu ne ko lu tax mu ne alxuraan a ko wax nan ak alxuraan waxee mu ne yàlla ma wax alxuraan ni yo Zuleyxa daa toog ci saal bi daat ni jox soxna yi bàl leen ma kenn ku nekk fur wi bu ñuy xolli jox la paaka ba ñu commencé xolli mu ne Yuusufa kaay Yuusufa ni tëll euh, fur wi wadd ñu daggate seen loxo yi wa qata'na na wa qulna na lillah nee na ñu dagg de seen loxo yi te yëguñu mettitu dagg bi ndax taar bi ñu gis te nit ku baax kii di génn àdduna bala moo dem dañuy muri rude bi fa kashafnaa anka xitaaka fa basaruka al yawma hadiid nga jàkkaarloo yonent Yàlla Muhammad waa këram yu sell ya jàkkaarloo sahabatul kiram jàkkaarloo ñu baax ñëpp ñu ne la fële nga jëm fadxuli fii ibaad yi kooku ni mu yëge metti tuddee dégg nga nag pour ma tëj boo boo boo bëggee am foog da ngay saf sàpp yàlla pour nga saf yàlla foog nga libéré sa bopp ci ñeenti kaso ak su juunul arbaa ñeenti kaso yoo xamante ne bi nii mooy yëngi nit kii ba du mën a bouger jëm ci yàlla alxuraan nee na yonent bi mu ñëwee liggéey moo woon woyofal nit ñi seen yan yi waaye du anum israhum wal aglaala allati kaanat alayhim dafa am ñeenti ñeenti kaso yu metti mooy jëng kenn ku nekk ci ñun alxuraan daa bëgg nga fipp xeex ak sa bakkan ba libéré sa bopp ba ca njëkk mooy histoire histoire kaso bu lëndëm la xam-xam moo la cee libéré xool alxuraan na am na ñoo xam ne duñ dem fenn xam nga lu tax naan xasbanaa wajadnaa alayhi abaana li fi bàyyi defoon doy na sëkk mag ñi defoon doy na sëkk doyul de ñi liggéey liggéey bu sell liggéey bu yiw liggéey bu baax dañoo bëgg yow nga sof ca rek continuer mu jëm kanam loolu lañ bëgg waaye xasbanaa wajadnaa alayhi abaana ku nurul tekki moo koy wax toog muy dox waaw kon l'histoire dañoo bëgg boo gees soo sa nijoor gis yoon ci Yàlla Muhammad gis sahaaba ya waa kër yonente bi gis yonente yi gis Seexna Tijaani Chérif gis ñëpp ñun ne ulaayika lazina hadallah fa bi hudaahum iqtadi royal ci ñoom boo sa jàmman gis ñu bon ñi firawna xaaruna haaman mu ne fa kullan axadnaa bi dan bi mooy tandiku leen nga dem kon fokk nga libéré sa bopp ci kaso bi ñu waaye l'histoire beneen bi mooy bi ñu waaye penc mi société bi daa am aadaat yoo xamante ne bi nii boo ci tënkoo doo dem dañ lay suñ sax waxoon na suñ Ahmad Tidiane ne waxoon na ni jàmbaar ji mën a yanu aada ba ca kaw ni ko dëpp ci suuf ren yi amagu fi waaye na laa jot nag ma am fi pour ñu mën dem parce que société bi am na aada yoo xamante ne bi nii baaxul te dañ koy war a suppi dañ ko war a defaraat kaso la beneen mooy ak tabian nature bi kaso la kaso bu mu lëndëm la kaso bu metti la kaso bu jafe la gis nga bois sacré yi ñu nekk ci yooyu yàlla daf koo tàggat jox ni pour ñu jëriñoo ko bi ci mujj nag te gën a gaaw bakkan xam nga bu dee l'histoire xam-xam moo la ci libéré bu dee tabian xam-xam moo la ci libéré bu dee an nizam al ijtimaai al fasid xam-xam moo la ci libéré waaye bu dee bakkan nag dafa am leneen lu mu laaj foog nga ñëw ci kilifa gu baax kilifa gu set kilifa gu laab kilifa gu tedd tiim la comme ni asamaan si tiimee ci mbaax ci yiw ci sell ci maanu ci jub mu teg la ci yoon yàlla nga nga nga libéré wu maam la am suñu daal di wax ci bañ def tora yi doom xas du wacci illaahi duuna hawan xërëm a mag ci xërëm yi muy xërëmu bakkan nga nërmeel ko doog a doog a mën a jàll loolu ci la Cheikh Ousmane Seck doon liggéey ba yàlla yóbbu ko bare na ñi mu dimbali ci wàllu yàlla ci xam-xam ba tey ñu saf sàpp yàlla yi dimbalante kon ñu ngi daaneel suñu kàddu di ñaan yàlla yal na yàlla yokk seen leer yokk seen yërmande euh, suñu motolaa ñu ngi lay ndokkeelaat yàlla na jotaay bi yàgg di nuyu kilifa yi fi nekk yëpp sama yaay ñaana ñoom di leen ziara walhamdulilahi rabbil alamin wa shukran fetal nga yal na yàlla may ñu dégg ak topp képp ku bëgg a déglu xam-xam joxe nga fi xam-xam bu leer bu mat te matale yal na yàlla fayal nu la bu ko defee rekk ñu continuer programme bi jàllale tuuti kaddi cant ak ngërëm ndax nag mun ñàkk Serigne Mor mu ngi sant turandoo bàyyi Seydina Ousmane yëpp ndax ku ne xam na ni bis bi alquran lañ ko tijjee alquran lañ koy tëjee alquran moo ko sos waaye turandoo yi ñun duñ ci des ginnaaw ci alquran ji bi ñuy wàcce kaamil yi turandoo yi dajale alal ju takku jox ko ñi doon wàcce kaamil yi yal yàlla fay leen sëriñ Mor mu ngi sant waa daaray kokki ku xam njabootu Baye Ousmane xam ni ñëpp daaray kokki lañu tànqe masha allahu ci ndigalul sëriñ Maxtaar mu yónni doomam bàyyi Modou sëriñ bi nee na teraanga yi yegsi na yal na yàlla fayleen leen sëriñ Maodo Fall moom it ni du ma des ginnaaw ca kokki di kilifa diine teraangaam yegsi na sunu baay màgget seen ca kër paate yabal na njabootam ñu ànd ak délégation bu rëy sëriñ Mor nee na teraanga yi yegsi na Baye Maguette yebal na doomam sëriñ Cheikh Sène mu andi teraanga yu bëri sëriñ bi nee na gis na teraanga yi sëriñ bi mu ngi sant ñëpp min a daaray ni luqiya wax dawoo njal bakka yaddi xudi taaku sabri anu wa bax dawoo wa hal yaghlabul asmaa xamal yabtaqi riyaa ku sopp soppe Baay Usmaan Sekk defal ni sa ñaari loxo cana baa naan bisaaratu mawjudatun xabla xalqi wala qul xayru laa kun xaqo baada xulqihi muhammadu rasulullahi njol ma karawufun isa alwa damaanun bi rifqi جواد إذا دنا القمام بوطعه يا رسول الله نيول مكة تنكم لولي ففيك في بحر الندى يتموج محمد رسول الله سرج مرتالا عثمان سمام ماما مرتالا ماما مرتالا غورغو مكموني وون سونو مام مام غساني ما جوجا يونت بي امنا ما سال امنا غسان bu yowmal xiyaame lu seyduna muhammad defal xasaan ma dëgg ca barkeem defal ko ngusaan kon kay fa yaa rabbana fa yaa rabbana fa yaa rabbana ñun ñëpp yàlla nañu am jàmm wax leen fa yaa rabbana fa yaa rabbana fi ardi wa samaayi aminna ala tasdiqina fi istifaayi fa inna wadul aswaaqi yahya bidaayi يسوق علينا الشؤون لقاي كن كي إذا الدين لم يكمل فلا كانت دنيا سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله كن مني مجوخ باي مغي سك اللهم صل على سيدنا محمد وسلم dellu wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa baraka nee na ñu ngi nuyu ñi ci jotaay bi ñëpp di ñaan li nuyoo bi lamb ci yiw fa tabarakallah ak barke ak mucc yal na yàlla lamb ko mbooleem ko fi toog ñu ngi jiital ci nuyoo bi sunu baay sunu waajur baay sëriñ Xasan Seck di ko ñaanal yàlla mu dollee guddal aw fanam dolli wéram yàlla bàyyi ko ak sagoom tey nag gën a seral mbootaayam boole ko ko ak rakkam sunu baay Modou Fall ñaaxa mii rakkam ji nga xam ni mook sunu baay Ousmane ñoo bokk ndey ak baay di ko ñaanal moom it yàlla wér ak mucc yàlla boole ko ko ak njabootu maam Seexu Canaba yàllaa ngi dogal moom lañ dese ci ay baay yàllaa ngi dogal moom lañ dese ci ay baay ñuy sëti Seexu Canaba maam Amari Ndak Seck xam ngeen ni sëti maam Amari Ndak yi sëriñ Ibrahima Seck mi ci jëkk jël xilaafa gi toog ñaar fukki at ak juróom-ñaar ak ñeenti weer ak i fan 1946 la jëloon xilaafa gi kon sëti maam Amari Ndak yi ñi ngi commencé donn seen maam 1946 loolu nag du tey te bàyyi sëriñ Xasan Seck mii toog ci sët yooyu la bokk ndax moo Seexu Canaba sëriñ Ibrahima Seck ñoo bokk benn baay bokk ko Baye Modou Fall ñaaxa mi yàlla dogal mu bokk baay Ousmane sekk borom bis bi ñu nekk suñuy wayjur nekk suñuy xarit ñu di leen xoole sëriñ Calab maam Amari Ndak di leen xoole suñu jur yi jiitu seen doxin rafet trop ak seen taxawaay ci njaboot gi kon lu leen ñaanal doyul ndax dañ leen a dese te bariwuñ sëtaat yi nag Cheikh Jibrilu sekk boo borom yaara moo ci mag ñi ngi koy jox mboolem nuyoo cee kenn mu wàccel nu ko suñu doomu baay sëriñ Mortala Seck mi yàlla dogal tey mu donn way juram léegi doomu alaaji Cheikh Samb bi wax na ni sëñ Mortala dan ni daa donn baayam waaye macha allah romb na loolu da koo doon te bi mu ko waxee nag ñépp a ko gëm moom juddoo na fi mu war a juddoo ñu yar ko niñ ko war a yare jàngal ko liñ ko war a jàngal bali war a nekk ci moom lépp ci jikkook jom akuk xam akuk ràññee ak xàmmee macha allah lépp a ngi ci moom mu bokkoog ay rakkam yépp sëriñ Mokhtar sëriñ alfa Mouhamadul Bachir ak Cheikh Ibrahim ak seen jigéen ñi soxna Astu Balla mii magu soxna yi nan ko tënk foofu rek lim bi macha allah yàlla na yàlla gën leen a lafal cat sunu yaay matitaal ak soxna Njóoba ak soxna say jiite ak sunu yaay Fat Kan ñooñu nag sunuy way jur lañu jur njaboot gi ñu doon tudd bokkoon ak sunu way jur toolu diine ji doon ko dund mu rafet lool ba yàlla génn ni ci meññet mii loolu résultat la boo xam ni ku ci xool xam ni ñoom it niñ leen joxe woon Baye Ousmane muy te diine ji rek tax bàyyi nañ ci seen waar ba wàcc tey seen résultat ñoo toog nii fi bàyyi Serigne Ousmane Seck yamoon ku ko fekke ñëw fekke tey dina la wóor ni jële nañ liggéey bi bu doon benn yóbbu ko ci lu fukk kon sëñ Mortalla loola koo bokkal maam Seexu Canaba te muy waajur ci yow muy mag ci yow wala muy rakk ci yow mu xaddami wala taalibe yi wala soppe yi wala am di jàmm yi kenn kum ci kumu loola nag fierté la sëriñ Idrissa yéen ak Baye Thion ak ñoom cekkandoo yi sëriñ Baara jóob ñoom bëgguma bàyyi kenn macha allah ba ci sang bi Diop euh, ba sëriñ Pape Diop sëriñ Pape Diop mii bàyyiwuma kenn yéen daal wettali ngeen wettali sëñ Mortale mii Seexu ba ngeen ko defal njaboot gi ngeen ko defal waaye xàmmee nañ ko te bég nañu ci kenn kum ci ci nun wàccaay bi subaay Ousmane waroon na la nga ñëw toog wetu sëñ Mortalla di ko guddil di ko bëccëgal ba bis bi réussir loola ñu waroon ci moom yéena nu ci féete kon ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm di ziar sëriñ Pape Seck Mourtada ma dikkee di ko xoole waajuram wu tedd wa yàlla na yàlla yokk seeni leer te taas nu ci seen barke moo ngi ma àndal ñëpp muy Cheikh ma dikke junior sëriñ Khalifa Ndiaye sëriñ Abdourahman ak ñi ne ko bokkal sëriñ Aada ngi ci biir ak sëriñ Cheikhou ak sëriñ Ibrahima Baye Abdourahim sëriñ Alassane ñaan ak seen léegi di sënu mag di sënu soppe yoral ñu dëkk ba ci anam ba gën a rafet ñu ngi ziare monsieur le maire bu campement Pape Pape Diouf Pape Diouf di ziare suñu mbokk mi monsieur le maire Ibrahima Ndour sëriñ Mbaye Ndiaye ñii njabootu Baye Ousmane lañ bokk ci kër gi ni ñu ci bokkee honorable monsieur Omar Sy taalibe la ci kër gi doom la ci kër gi soppe la ci xarit la ci am di jàmm la ci léegi ma nuyoo sëñ Mor daa xëcc sama loxo ni honorable Omar Sy lu mu daan def benn def na ko fukk lu fi war ci kër gi rek ci moom sëñ Mor wala ay juróom wala ñi mbokkal Baye Ousmane di góor ak jigéen ku ci ne li war ci yow mu ko daan natt ci Baye Ousmane xoole na la jëmmi Baye Sëñ Ousmane jox la woowu wàccuwaay waaye teraanga jum seqoon moom bu daan jox Baye Ousmane benn tey jox na njaboot gi fukk loolu sëñ Mor ma ko seedeel kon ñu ngi koy sant ci loolu Baye Xasan ak i rakkam ak doom yi ak sëñ moor mi ko toogal ci jotaay bi ak ñi mbokkal Baye Ousmane ñépp wëlbati seen kàddu jëmale ko ci honorable Serigne Omar Sy waaye alaaji Omar nee na ma sant gi ak ngërëm li xoolu ko léegi de moom daal ñaan lay sàkku ci yéen ndax ay maamam ay baayam ak i magam ñoo xam fenn fudul kër Cheikhou Thiénaba ñoom bi ñu desee yan bi desee ndonol yi mujje woon puso bi mu réer te bëgguñu seeni maam ak seeni i baay man leen ci kër gi ba tax na lu ñu def ci kër gi ci teraanga xeeb nanu ko day wax toujours ni mënuñoo weesu nekk taalibe ci kër Seexu ba rawatina Baay Usmaan yàlla boole leen ci xadara bu tedd bi muy mbuur ñu gën ko jige ba ma Baay Mor jëloon na doomam tudde ko Baye Ousmane njabootam yëpp mu teg leen ci loxo Baye Ousmane mu leen di jàngal alquran moo di Madické Ngom mi nekkoon représentant sëriñ bi fii ci Mbour alaajoo Omar si ne fàttewul googu kóllëre kon daal lépp lu ngeen dox jëme ko ci moom da ngeen ko waroon a boole def ko ñaan rek waaye moom sax bëggul sax di ko tudd waaye ñun nag ñi mu yabal ñun tuuti lañ ki yëkkati kàddoom ci li nekk dëxëñ ko ci xolam mu bëggoon ko yëkkati boole nañu ak magam alaaji Mamadou Sall mu bokk ak alaaji Mouhamadul Mokhtar Mbakke bu daaru Marnaan wenn wayjur bokk ak sëriñ Omar si menn maam di lépp ci moom bokk ak sa bokk na ci sëñ Magay Seck mi nga xam ni ku xam alaaji si xam nga ko moom macha allah. ànd ak Sayer Ngom Jasaar ñu ànd ak imam sëñ Makhtar Seck jóge Canaba ak sëriñ Manta Ndiaye sëriñ Amadou Seck ñoom ñëpp ci délégation sëñ Omar si lañ bokk kàddu yi nag kàddu yi teraanga dong la te bëggunu mu gudd oustaz Ahmadou Makhtar ziyaara nañ la kàddu yi nga fi yëkkati doyoon na sëg ñun ñëpp ñoo xam lax kàddu boole ko jox ko mu dolli ko ciy kàddoom ndax lépp jariñ la te kàddu yi kenn mënta jël di def conférence kenn rek bu bu nee benn kàddu bu mën a jariñoo ñun ñëpp ren ba ah day doy sëkk sëriñ Talla Diop ñu ngi lay ziara ak ñi jël kàddu ñëpp nuyu sous ak monsieur maire gisaguñ leen waaye xam na ñu ngi ci yoon wi ndax bi seen bis la Pape Abdoulaye Mboub ci sunu délégation la bokk ak borom yaaram ñeng sa alaaji Omar daal sant daal bu ma doon weesu cant te mu man koo weesu ñaan man ko weesu kon mu weesu ko génn waaye cant cant don la nag ngërëm du ko weesu ñaan du ko weesu ñu ngi nuyu monsieur Ablaye Tall macha allah sa sunu njaboot la bokk ci kër gi di sëtu maam Marema Tall moom it di nuyu famille Tallin yëpp ku ñu tuddul yow lan jiital ñu ngi nuyu Pape Madiodio Mbuub di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaanal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. la ca defoon njaboot gi defal nañ leen ko ca dal ba macha allahu fukki dimaas ak benn njaboot gi fondation nañ ci kër ga élevé ko ba mu raase ba kuule rekk des ci kon mbooleem ku ci dugaloon sa dërëm njaboot gi defal nañ la ko fa ko dugaloon kon yal na yàlla fay leen moom lañu ñu bëgg a laajaat fii ndax ku ne xam na ni Baye Ousmane Baye Ousmane islam bi la Baye Ousmane këram ga ca Cenaba mu war koo liggéey mboolem taalibe yi kenn ku ne war nga cee dugal sa ñaq rawatina nag njabootuk Baye Ousmane buñ nee njabootuk Baye Ousmane nag njabootuk deret gi ci la waaye njabootuk leer gi ci la kon nag ñu jox sëriñ Pape Abdoulaye Mbuub mii mu ubbil Baye Mbaye jenn di commerçant bu mag di xaritu Baye Ousmane. ngay dox ku def ku def lii xalifa bi. ban xalifa Serigne Mouhamadul Mourtada mu bàyyi Ousmane. Serigne Mouhamadul Mourtada mu bàyyi Ousmane nee na maa ciy jiitu. moo joxe fanweeri junni moo joxe fanweeri junni. lay taaye ko lay taaye ko. ci kër baayam ci kër baayam kon de dañ ko toppandoo. ayca. la continuer sëñ Mortala gërëm nañu ko. sant nañu ko ndax daara ji mu taxaw nag ba tasul taalibe yi mu taxaw ba tasaaroowun ba tasaaroowun wóllëre yi mu taxaw ba ñëpp yi ñëw bokk yi mu taxaw ba ñëpp ñëw réew mi mu taxaw ba ñëpp ñëw ba dara soppeekul jotaay bi daal nin ko miwee nin ko xamee nin ko bëggee woon te borom bëggee woon ko nii su man Seck di borom orma lool maam taala denn orma ji Baye Souman orma ji ci baay donn ko ci maam Rindaak maa ngi jégalu sax sëriñ Cana maam Amari Ndaak ci orma nan ko fonk ndax fu nu àgg moo nu fa àggale bu nu ko xamee nag ak bu nu ko xamul Baye Ousmane ku bari worma la bu jaaral ci mbedd mi ba jàll boo ko waxul ñu ci mbedd mi du ca xam kenn nu muy def tànkam bu mu teggi bu mu ko nar a tegaat moo lay jëlaat foofu lay xool fu mu teg tànkam bu ko teggee fam ko naroon tegaat lay xool man na rom mbedd mi mu fees dal la waaye bu jeexalee mbedd mi boo ko ne diw ngi ci mbedd mi amul du ca xool kenn mbuur daal nee na cent 1874 wala 1974 ba léegi sëñ Ousmane ñi jàlloon naw nañ ko ñi ñëwaat ginnaawam naw nañ ko ñi nekk fii du dund ci jamono ji naw nañ ko naw nañ Baye Ousmane jazakallahu xayran kon fa tabaaraka la waaw bu ko defee rek sang yi nuyoo nag ñu continuer programme bi. nan ko daan doxalee sëriñ bi nee na nan ko doxale noonu ndax ku wax cekkeen wax mbuubeen waa kër maam ngusaan maajooja mbuub alaaji papa mbuub a ngi nii toog bu ko defee ñu jox ko rek mu def na maamam daan def def na baayam daan def bu ko defee rek bu jeexalee ñu jox sëriñ Pape Mourtada ma dikke borom gàmm gi kon sëriñ Pape Maajooja Mbuub bisimilah. waaye ku xam suñ Mourtada mi toog xam Maajooja Makura Mbuub man nag maay ngusaan te ngusaan ak ma Mamar Taale Sekk la woon te cene ba Kajoor te cene ba Gusaas waaye cene ba Bawol Sekk Mori waaye nag bu ma soññ dama wax suñu ko de wax dëgg yàlla coow li bari na lool ba nga mayoon tuuti ba ma àggal rek ngir yàlla damaa bëgg li may wax sëñ bi dégg ko Idrissa jërëjëf kontaan nañu damaa bëgg li may wax sëñ bi dégg ko waaw kay waaw d'accord waaw waaw waaw waaw ok ah fa ñu ngi ñaan jotaay bi yàlla bu mu nekk suñu mujjub jotaay maam Ngoussane nag danaa ànd ak góor gu mag maam Momar Talla Seck naa ko la waa daaru naa maala daaru naa duniya maala waaye da ko daan taggal Sidina Muhammad ba pare di waxtaan ci jaloore yi kon li may ubbee mooy tuddi tagg yoon ci yàlla Muhammad benn minute la ah wax nag sëñ Murtada mii toog mooy kan fa tabarakallaa ni ma ko baaxoo demee yal na yàlla defal nu jàmm nun ñëpp barke yonent yàlla Muhammad fa asni alayhi misaqa wa bil ayaay nabi wa bi sabri man ba sin kunta musliya ay saqa iba bil ayaan doon màkk yaa leen gën wa bi sabri ya man ba siin kunta musniyaay nabi bi yaqin waqul fii wala te damun iyaan doon màkk yaa ma leen gënal ba doonun fara ajabun ida baqilal ayaa yonen مراس فلا خوف إذا سمم الأسباب ولن سيدنا محمد تقدم أجنا ينن سبدم أجنا siyaari dem aljana kon ba sopp yoon ci yàlla Muhammad jopp na jaanama alhamdulilahi de si anaaral bu jot bi ci afi bariyati sidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam yow jàlla moomet mi may way mooy xamaral idaayati wa kokubal inaayati rabbaniyati yàlla def yoon jàlla moomet muy mbit ba irhamati almursalaati wa shamsu dina islam man tawalla u mawla bil issi wa imaayati wa riyaat samadiyati ay waay yàlla moo dara jaal yoon jàlla moomet wa ala maqaam woo fooqa kulu maqaam bu ñu la laajee ku gën ci neen yoon Yàlla Muhammad benn yàlla tane ñu doon téeméeri junneeg nit yi junneeg ñeent mu ni ala subra bakum turmar waa yoon Yàlla Muhammad rek moo ne bale wa faadala woo wa faadala woo woo ay waa njool Makka yaa ma cek mori noo ngi nuyoo noo ngi siyaar ilaa la la la la

kanam ngir laa ilaha illallah kon su dee dugg nag ñu war ko rëkkal junjungi maamam fa tabarakallah te mooy boobu baat Baye Serigne Assane yàlla na nga fi yàgg te ànd ak naal ya sa kilifa ya amoon sa yu tedd ya naal yu ko ëpp mi sa xol yàlla na yàlla motti lépp barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam surtout maa joojo bu Pape Abdoulaye bu moo la doon dalal ànd ak magam Pape maa joojo wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa diinahu لما أتى النعي من تلقاء كجوري سيغمدك يوم الخميس ربيع الثاني في وجد في عام عبد من الألفين في الفجر محمد المرتدى سبعي بنعا نعات الحبيب عمدة النجابة من كان سيرته من أحسن السير Pam Murtada Sabaay muhir rakaidi diini laayi mu'tamidan alal kitaabil aziz bi rabbi dil xadri nga jëm ba sa nijaay ani bi bu ngeen xamul ku mu doon kooku mooy walidal fahimi mufrida asrihi maasir woo ahayat li muftaqiri Serigne Abdourahmane Sabaay ba bañ ko tàggee docteur Alpha Cissé dama wax ni fa qultu xat xaru bat samsul huda sa baaya njub de dem na nañ mu salaami fa saaral aysu fil kadari Seex Murtada sa jirim yaa ngi jooy baayo yaa ngi jooy Seex Jibrilu sama ju baax ja mooy abul masaakiini ku bëgg borom yàlla wal aytaami xadra xalaa kazaalika alfuqaraa qul naafiul bashari Baye Assane jërëjëf maasa allahu kilifa gu ne ronoon a tànt bi waaye bi nga egsee rek xam na ne xalifa bi egsi na ndox Baye Seydina Ousmane làmbatuwul fii la la joxe ijaasa Seex Ahmad Tijaani ñu fekke boole ca kàddu yu dëgër xam nga moom daa donnu baayam yow da ngaa bëgg sa baay moo tax dama naan baay asan bu doon am dakkantal di naan baay asan sax bëgg baayam yal na sax te soo suñu yaakaar bëkki jullit yi tant bii ñu toog baay Seydina Ousmane fàggul nu ko ci ndigalul sëriñ Alpha Mamadou moo ko fedd lii ngir gëm gum ko gëm bëgg gum ko bëgg nga mën a waat ni ñëpp wax na ni góor gu mag sa wajur li noppam bi dégg ci turu yàlla benn xalif sanu rodiw waaye bàyyi Seydina Ousmane noppam bi li mu dégg ci turu yàlla jël na wàllam ci xilaafa gi de xool leen tànt bi bokki jullit yi sëriñ Mouhamadou Mourtala Dia jëf moo fi ne sa waajur wii xalif général amul wér gi amul jot gi waaye jomm na nga defal lii sa baay te nga bokk góor gu mag muy déggate lenn wala lenn di ko gàllankoor déedéet du ko def ndax xam na kan mooy Baye Seydina Ousmane Baye as jërëjëf bokki jullit yi sëriñ Mouhamadou Mourtala jërëjëf sa mag ja sa sëriñ daraja bi sa wayjur am ci xalifa bi toog jox ijaasa Seex Ahmad Tijaani yi moom la la sa sëriñ def sëriñ ma digga saj maanaam yàlla ne sama sëriñ waaye ndok kerabam lay seexaleeg jëmm ji dana la bu maa jiitu woon sabaay lii moo koy def te muy dëgg keraba timit sa wayjur di ko jëmbal boroomam ñëpp toog mu joxoon ko na bàyyi Ousmane mii su ma ko njëkkoon a tëdd ci jaag moo may kenn du ko wet lu ko dëggal sa maam ju baax ja sunu maam astu balla ak xalifa kayre di way jur ci ñun di mag ci ñun keroog ba ñu génnee àddina ko xombal àddina bi tege bàyyi Seydina Ousmane dana ko ma dikkee ci yaamata doy yaa coro kero ba mu dëddee kala ba kajoor ci jaag macha allahu sëriñ ma digg mbooloo mi daje dafa ñu bàyyi Ousmane sama yaay ji yaa tey ñoo ko bokk xam nga lu ko waral seen ñaari waxtaan ya ca ëttub góor gu mag di bàyyi Assane jógee leen léegi yaa coro ak yaa asuballa doon ay tuut tànk ci ëttub góor gu mag di faw seenu faw tuut tànk ndax du ñoo yàgg bëggante waaye nag bu leen fàtte ni ah yaa maam Amina Seck bu amari ndax ma nga kër yaa ba tëdd te yaa asubala way juróom bu baax mëng kër yaa ba tëdd ñu jox ko càmmiñam nijaay Ibrahima Diop mi meññ Ahmadou Makhtar borom borom alxuraan yu leer ji kenn mu bokki julli di mu ne ko man day coro damay ñaan yàlla bu ñu màggee bay sëy ñu bokk dëkk bu nuy sëy yaacooro na ko ah wala ñu bokk kër gu nuy sëy mu ne ko déedéet man da coro bu ma sañoon di nuy bokk benn jëkkër fekk góor gu mag di romb dégg wax ji daan na leen gees ne leen ah yéen ay tuut tànk ngeen waaye seen wax jooju li ci yàlla mën na nangu lépp nangu na ko xanaa leer na tey yaa astu balla mu meññ bàyyi sëy naa Usmaan mu meññ Murtala mii toog yéesul bàyyam yaa coro moo meññ sëriñ Madika Sak borom yàlla ne mu meññ sëriñ Murtala mii toog tey ñoom ñaar séq way jur wi di bàyyi Seydina Asan mi leen ñeewante yërëm leen bëgg leen di leen sago ah jërëjëf waaw sa maam dafa demoon Samba Sadio bàcc Sall sa maam demoon na Samba Sadio ndax Baye Asan mi bi maamam wootee ji hëët keroog ci leen ñaar fukki fas ak juróom fa takke xanaa kon dëkk ba gent na luy jombewul bokki julli yi maasa allahu nga ñëw cana kayoor siyaar si sa mag def ko ñu ko sa waajur daan defee ñu jëm ngay ngay sëriñ bi ñu defi teraanga ba noppi di dem mun a la xaaral woo sëñ Murtala mi fekk yàlla leen njëkk boole ndax yéen a nekkoon kokki di jàng alquran seen rakk yu baax yi toog bokki kon kay li ngay jàngat yëg ko dara jugu fi dara jugu fi la woon a gari li fi nekkoon rek fi nekk al waladu min kasbi abi al waladu min sirri abi ah ifaadatika minka dara jugu fi bokki jullit yi allah kon bu tànt bi mel te seen ñaari waajur yi daan ko alime ci baatub laa ilaha illallah muhammadu di wax alquran ndax alquran na fi nekk alquran na fi nekk téere yi wàcc bari na ñu ne téeméeri téere ñeent boo koy tënk da nga naan bi mu alquran ñëwee da leen a mën dara ñu ne bis bisum alquran la ñu ne bàyyi Seydina Ousmane borom alxuraan ni sëriñ ma déggee borom yàlla ne kon kay déggee ñi benn la ci benn jëmm la ñu jëm waaye nag dina dégg aaya ba muy lan ah wanu nasilu min alquraan ma wa sifaau wa rahmatu lil muminin bokki jullit yi ñu ngi nuyu ñëpp di siyaat ñëpp di nuyu sarak yu baax yi yaru yi masha di nuyu ginnaaw bi ñu siyaaree xalifa bi comme ni ko waxee macha allah siyaar njaboot gi moo ànd ak ñëpp macha allah settee ci bii dib sëtëm waaye mën na nekk doom de bàyyi baa këru ko jur macha allah sëriñ Mouhamadou Mourtalla sa way bu ñëwoon li mu li soloon lépp ak ni mu bëggee woon mbokk defal nga ko ko mooy lan xoolal ginnaawam doomam yi jigéen ñi fi nga leen dugal dal nam xew de moo tax waxkat bi wax na ko léegi waaye ñun wax nañ ko at yi ci ginnaaw doon sa baay dool sa baay ko gën ndox alaaji Ngagne Sarr mii bi sa baay làqoo nga def ab diir ci àll bi ma waxtaan ak moom moo ma ni fekk ma am lu may tiit mi ngi nii toog billahi mu ne ma moor taal ma ba riyaat ma ne ko han mu ne ma bu ñëwee fii li bàyyam yoroon yëpp dina ko seere te dara du yàq bi yi mi ngi nii toog moom a ko wax booba ñëwa ko bokki jullit yi bokki talibe yi masha kon kay ñu ngi wàññeeku ci sa jigéen ñu baax yi jiital ci soxna asbal la boo amee sa alal ba ko mayub dof ñu ne lu tax ñu ne dof jóob la sant loo ko defal xamu ñu ne ak kan ñu ne ak ci iñaan jóob la sant loo ko defal mu ne damaa ragal wala mu a cel la mu jóob ñu ngi lay nuyu di la siyaar bu baax yaag asan macha allah ndox bi ngeen nangoo sant Njaay la nag nee na léegi Njaay la sant wala sec ndax examen na ba xam ni sant wii am na si moo tax mun a léegi man Njaay bàyyi xalifa wala sec ci sëriñ Seex soxna asuba la ñu ngi lay nuyu di la siyaar bu baax macha allah yaag sa rek yëpp waaye nag ah, di ci dindi suñu pété muy soxna Fat Seck sa rak soxna Fat Seck wax naa ko fii waxati ko daf maa defal ma jomb dama koy wax sama taaw bu jigéen laa ko jox mu yar ko jàngal ko alxuraan bëgguloo ko yàlla bëgguloo ko yonent bi ba fa muy sëy tey ab taawam mokkal na alxuraan muy soxna Farimata masha Allah yal na ngeen bokk dund ñun taalibe yi nag li des ci wax ji ñoo ko moom nanu xam suñu bopp te xam ne ñii gis nga ñii sant Seck benn jëmm lanu de benn jëmm lanu nanu am fayda ku nu wéetal buñ ci jëw kenn ñoom ñuy ñu ngi toog benn jëmm lanu de xoolal rang bi xool leen rang bi rek macha allah sa yaram day daw ni nu bëggantee ni nu ñeewantee lu la koy gëmloo moo di koy takk soxna sa kër moroom ngay dem booy tudda doom sa kër moroom waaye lii ba tol yeete ah sëriñ si réeroo wu de benn jëmm lën benn jëmm lën ni nu bokkee amari ndaat noonu lañ bokk lépp yal nañu yàlla dafa dëgg topp ci barke yonte bi alayhi salaam Cheikh Jibrilu ñu ngi lay san di la gërëm di la ñaanal wér maasa allah di doolee gërëm nan ah lam ñu jox yal na fa am lu mel ni sëriñ ma dikk ci barke yonante bi alayhi salaam sëriñ Abdou Ñing ñu ngi lay nuyu di la beral espécial ndax sëñ ma di ka nga ne woon yow jàngoo tubaab bi la yi ko ne ko ñu ngi dem naa bureau mu ne ma yow xamoo dara Abdou ñu ngi fu fu muy jëlee bureau ma ne ko sëñ bi Abdou ñu ngi bureau la yor de billahi mu ne ma yow Abdou ñu ngi mi nga xam ne alxuraan la jàng muy dongab daara ma ne ko déedéet sëñ jàng na français ba yori diplôme dañ ci werante wu met lañ ci werante maa moom billahi ngir sa yar ak say teggin jërëjëf dara sërif ñoo tey sëriñ Alpha nuyoo bi mi ngi ciy jiital sant yàlla mi nu bind julli ci yont yàlla muhammad mi tax yàlla bind nu alayhi salaatu wassalaam di tëbb nag ci barke sunu sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sërif radiallahu taala an ñaanal sunu maam ahmadou ndaak sekk sunu njaa yal na yàlla yokk yal na yàlla boole nu ñu ñëpp dugal ñu ci barkab Ahmadou Ndack Seck sëriñ baa ngi nuyu bu baax sunu xalifa bi toog di maamam di seexam di xaritam muy Baye Assane Seck xaritu ñëpp Baye Ass sa seex baa ngi lay nuyu di la siyaar di la jox wàccuwaay bi la yàlla jox yàlla la ko jox nan di la ñaanal yàlla yal na yàlla dolli la ci ndam liggéey bii yàlla teg ci sa loxo nga koy liggéey liggéey bu rafet te muy liggéeyu diine rek yal na yàlla defal la ci liggéey bi ndam ndax sa ndam mooy sunu ndam ñun taalibi yëpp kon kay ñun ñëpp lan bokk sant yàlla ci baatub alhamdulillahi rabbil alamin yal yàlla boole ko defal ko ndam ba ñu ñëpp bokk wax baat bi alhamdulilahi rabil alamin yàlla mën na ko sañ na ko yan nañ ko yàlla defal te it am nañ ci yaakaar lool yan na yàlla mottali suñuy yaakaar amin ci li feeñ ak li nëbb di nuyu it ku mel ne sunu bàyyi ñaaxa sekk di ko siyaar di ko jox wàccuwaay bi kay yàlla jox ci pàkk bi ñu toog di ko ñaanal yàlla di nuyu maamam sunu bàjjen Araman Seck di ko ñaanal yàlla di ko siyaar bu baax sëriñ baa ngi nuyu woy juróom baay ji bi mii toog di ñaan saa borom bi guddal fanam dolli ko taxawaayam ci wayjur wii di sunu maam Assane rafet na lool bay jib teyit naka jekk xalifa mu mas a toog di nga ko taxawu di nga ko jàppale ci diina ji kon loolu yal na yàlla yàggal ko ci yow te muy loo xam ni nag askanu cekkeen yëpp ak taalibe yëpp bay jibiriru moom yaa leen ko defal fa tabaarakallaahu yann yàlla gën laa dëgëral di nuyu njabootuk maam Ibra Penda Seck di nuyu njabootuk maam Madika Seck nga xam ni xalifaam mooy sunu baay Moodu Roqaya di ko siyaar bu baax moo baay Ibra Penda bu baay taalaxaar ak ñan bokkal wàccuwaay ba ñëpp sëriñ baa nuyu Baye Njaga Kayre ñu tudde ko Baye Njaga Diop imam bokk ak Baye Seydina Ousmane benn yaay nekk ci kër gi di bàyyi xale yi yaru lool fa tabarakallahu Kayre Mbay sëriñ baa ngi jox wàccuwaay bi la yàlla jox ci kër fan yii rek déggante nañu man ak moom déggante bu yàgg te booba ma nga riyaat ndax sunu miinante demewul woon noonu te bu bëgg sunu bàyyi sëriñ ma dikkee waaye mu dégg ma rek jël téléphone am ñu jokkoo waxtaan ba mel ni ñu ngi toog waxtaan ci diina ji waxtaan ci mbokk gi waxtaan ci tarixa bi kon Baye Ndiaga Kairé ku bëgg mbokk la Baye Ndiaga nag Baye ma Kairé asta ko meññi bokk baay osmaan Ousmane benn ween bu melee nii ci ak baax du bett kenn fa tabarakallahu sëriñ baa ngi nuyu yaayam yi ne ci kër gi ak bàjjanam yi ne ci kër gi ak ak rakki sëriñ mortaale yi nga xam ni bàyyi lañu ci man ak ñi ñu àndal liggéey bi mooy taalibe yu baax yi mel ni Mouhamadou Lamine Baara Diop ak ardo damay bañ a lim dama ko bëgg a mbambastal rek su ko defee ñu ñëpp dugg ci biir liggéey bi kenn ku ne xam na ni jotaay bee xate te kàddu gi kat kaddu teraanga rek la kon ñëpp ñëpp sëriñ baa ngi leen di wax jaajëf seen taxawaay dem ci sunu maam Ousmane Seck yan na yàlla yokk leeram amiin yan na yàlla taasuñ ci barkeem amiin yal na yàlla leeral kanamam yal na yàlla barkeel ginnaawam fa tabarakallahu ñii mu bàyyi ginnaaw liggéeyal maam Ousmane liggéey bu rafet tarbiyewu ko tarbiyewu bu rafet sëñ Ousmane gërëm leen ñaanal leen yàlla bàyyi leen ak sëñ Mourtala dem nag bàyyi leen ak njaboot gi El Hadj Idrissa Diallo te lañ doon def dinoo yokk seeni loxo waaye wàññiwuñ ci dara def ngir yàlla nag moo mel noonu yow bu dee da ngay def ngir nit bu fa nit ko jógee man nga yokkat mooy découragé man nga bàyyeek ndax ka taxoon ngay def muy nit nekkatu fa. waaye ñi mu àndaloon moom Baye Ousmane di daan def te yàlla tax njol makkaay wax ak ñun alayhi wassalaam ci am njàngaleem ci am njàngale moom rasulillah wala boog ma ne Seydina Aboubacar Sadiq ma ne Seydina Aboubacar Sadiq ci am njàngaleem mu rafet ba njol makka génnee àdduna nit ñi jaaxle lool gëlëm tàqali koog seeni sago ndax doonte jàng nañ ci alquran. doonte jàng nañ ci alquran. ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ni yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam. yàlla nee na ko innaka mayitun. yàlla nee na ko innaka mayitun. waaye musuñoo xalaat ni. waaye ñoom nit ñi musuñoo xalaat ni. wala xelum doomu aadama ca ka ma bëgg. doonte gëm nañ baat boobu. yaakaaroon na ni Moustapha moom dafay sax rek. ñii sax dañuy dal ci suñu kilifa. ñun ñii sax loolu dañuy dal ci suñu kilifa moom ma daloon ci sëriñ ma dikke. dangay am sa kilifa bëgg ko lool. dangay am sa kilifa bëgg ko lool. fonk ko lool. nga dem ba a yaakaar. nga dem yow sax ba xaw a yaakaar ne du faam. kii moom du fi jóge. kii daal du fi jóg. ndagam ci suñuy kilifa la ndagam ci suñuy kilifa la ñuy dal. yaakaar nañ yonent bi. yaakaar nañ yonent yàlla Muhammad. ak ni meloon ci saxaabati rasuul. fa tabaarakallahu bi dafa amoon ak contact direct ak borom. nga xam ni Moustapha da amoon contact direct ak yàlla mi ko bind. yàlla di wax. yàlla di wax. yonent di jot li saxaaba yi. njool Makka di jot li saxaaba yi. amuñu benn jafe-jafe. amuñu dara jafe-jafe. ci seen wàllu diine. ci seen wàllu diine. ci seen wàllu adduna. ci seen wàllu adduna. ñuy toog ak moom. ñuy toog ak rasulillah. di yondoog moom. di yondoog rasulillah. di fanaan ak rasulillah. ba miin ko lool. fees lool place. ah njool màkka fees lool fa tey. ku mel noonu nag yaakaar naa ne bu xëyee dem. ku mel noonu bu xëyee ni mes. yaakaar naa ne jaaxle. ah jaaxle mën naa dugg ci googu kër. waaye Aboubacarin Sadiq. waaye Aboubacarin Sadiq. ca matam ga. ca mat ga. fa tabaarakallaahu. jëful la jaag fayda ja. Ah, bi gaa yi jaaxle. bi gaa yi jaaxle. moom moo taxaw. moom moo jaaxlewul taxaw. delloo si waat. delloo si waat ñi jaaxle woon ñëpp. jàng aaya bi wa maa muhammadun illaa rasulun te mu mel ni nit ñi dañ ko xawoon a fàtte te mu mel ni aaya boobu nit ñi fàtte woon nan xad xalat xad xalat min qablihi rusul min qablihi rusul afa in maata afa in maata aw qutila aw qutila inqalabtum inqalabtum ala anqaabikum ala anqaabikum wa man yanqalibu wa man yanqalibu ala عقبيه فلن يضر الله فلن يضر الله شيئا شيئا وسيجزي الله وسيجزي الله شاكرين loolu Abu Bakrin moo ko fàttali jaam yi keroog bi Rasulullahi la ko ne leen eh bu leen fàtte ah, bisu tey bii ah, ah yàlla waxoon na bis bi dina ñëw de. neewoon na njol màkka bu dee daa génn àddina wala ñu faat ko ci xeex yi loola dina tax ah ngeen bëgg a tekki seen laxasaay yi ci diina ji ah, ah bu leen def loolu de ndax loolu ku ko def ah, bàyyeeku ah, defoo ko kenn sa jëmmi bopp nga ko def waaye ku góorgóorlu teg sa tànk fa nga ko tegoon jël sa tànk teg ko fa nga ko tegoon bi rasulilaay di dund. waaw ah, boo liggéey ëllëg. Ah, da nga xam ne def lu baax rek. Ah, di nga xam ne def lu baax rek am solo. kon def lu baax. kon def lu baax. moo am solo. moo am solo. kon ñi àndoon ak Baye Ousmane. kon ñi àndoon ak Baye Seydina Ousmane. foofu lañ teg seen tànk. foofu lañ teg seen tànk. man kaana ya'budu Muhammadan. man kaana ya'budu Muhammadan. fa inna Muhammadan. fa inna Muhammadan. qad maata. wa man kaana ya'budullaha fa inna allaha xayyun laa yamut wax dëgg la xamoon. wax dëgg moom loolu la xamoon. xamoon na ni yàlla fi ne. ni yàlla fi nekk. xamoon na ni yàlla ko na ni yàlla xamoon na ni yàllaa ko ko wërsëgal diine. xamoon na ni cër bu mu am ko ko ci martaba yàllaa ko ko jox. waaye góor gu baax meññ ko. góor gu baax meññ ko ñu koy wax góor gu mag. mu am ndimbalal yàlla. mu am ndimbalal yàlla. ñaanal ko ñaanal ko yàlla. kon yooyu ay ndëgërlaay. ay ndëgërlaay la. kon maam Ousmane ko xamoon boppam la. nit nag bu xamee boppam. nit bu xasee xam boppam. daanaka léegi mu xam boroomam. daanaka day xam boroomam. man arafa nafsahu. man arafa nafsahu. arafa rabbahu. arafa kon melokaan yooyu newoon ci moom. newoon ci moom. mooy li ñu dajale. mooy li ñu dajale fii ci baas bii. yaakaar naa ni. yaakaar naa ni. Ah, maar Diop. maar Diop. képp xam ni topp nga ko. képp ku ko topp ci avant-première yi def ci télé télé waxtaan yi nga xam ni. waxtaan yi xam ni Baye Ousmane daan na ko wax. daan na ko seq ak ñi dundoon ak sëñ Ousmane. daan na ko wax ak ñi seqoon dundoon ak Baye Ousmane. mu dem di leen laaj. mu dem di leen laaj. Ah, li nga ci mën a déggee. yow li ngay mën a déggee ci loolu. mooy ak mbaax moom. mooy ak baax. moo fees ci maam moo fees dal ci Baye Ousmane. côté bu nekk. ak ragal yàlla. moo fees ci moom. moo fees ci Baye Ousmane. teyit ragal yàlla nag. teyit ragal yàlla. moom rek moo am ak mujj. lool ragal yàlla kottu rek am mujj gu baax. wal aaqibatu. wal aaqibatu. li taqwa li taqwa. wal aaqibatu. wal aaqibatu. lil muttaqiin lil muttaqiin. wal aaxiratu. wal aaxiratu. inda rabbika inda rabbika. lil muttaqiin. yàlla ne àllaaxira la fa ne. yàlla ne àllaaxira ñàng de de. waaye la fa ne. ci ay teraanga. ci ay teraanga. kenn moomu ko kenn kenn lu dul ñu ragal yàlla rek bay Ousmane nag yàlla defoon na mu ragal yàlla fa tabaarakallaahu bu ragalul woon yàlla fa tabaarakallaahu gëm boppam xam boppam gëm baayam baayam mu dil baayam def ko nawle am jom lool nekk ci mbuur kenn mosu koo sabbaa ci dara tax keroog biñ ko tëralee ba tax keroog bañ ko tëralee ca kanamu jumaa ja sëñ Madické amul lu mën a wax ci moom bokk na ci seede ya sëriñ Madické amul lu mën a wax ci moom ni kii de daan na kii tëdd bala maa xam ne koo gën ëllëg bala maa xam ne koo ko gën ëllëg ba yomal xiyaamee yomal xiyaam rek ci laay gëme nii ci laay gëme nii kii daal kii daal am na ku ko gën ku ñëw ëpp koy bagage ma xam ne yaa ko gën ndax cëram yëpp ndax cëram yëpp da koo sàmm ci yàlla kooku mat na royukaay Baye Ousmane mën na royukaay de kon kooku mat na kilifa jëmm jooju mat na kilifa kon kooku mat naa tiitaroo kooku mat naa tiitaroo fa tabarakallahu bokk yi yal na yàlla fayal ñu Baye Seydina Ousmane inna lasina amanu wa amilu salihaati inna nadihu inna na nadihu ajra man ahsana amalan na والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إلا إلا لا نضيع أجر المحسنين yàlla ne ku gëm yàlla te nangoo def lu baax baya ah, boo yow nga xam ni la nga doon jëf ah, du yàgg mukk mu nax saay ndax yàlla taxoon ngay def te yàlla nga ko séqal nag te booba wa maa kaana Allahu li yudii'a iimaanuhum iimaanukum yàlla ne lépp lu ma waay defal a du nax saay ci man de kon maam Seydina Ousmane lii moo ko liggéey dem kon ñun ñëpp amel nañ ko njukkal ñun ñëpp amel nañ ko ñaar diina ji amel na ko ko tariixa bi amel na ko ko waa waaye rawatina askanu maam Ahmadou Ndak Seck mi nga xam ni ñoom la fi sëñ Ousmane toogaloon muy seen tiitar nag ndax fii ku fi mas a ñëw ci waa Mbuur koo toogal ci kilifa yi dinañ seede ci sëñ Ousmane seede yoo xam ni fa tabaarakallaahu da nga bëgg fa tabaarakallaahu kii nekk sa mbok bokki jullit yi ñu ñëpp a amel njukkal bàyyi a Ousmane kon sëñ Ousmane yàqul boppam sëñ Ousmane xamadewul boppam sëñ Ousmane réewalewul li mu bokk kon ndaw ñi mel ni man kon ndaw ñi mel ni man war nañ cee ah, jàjju bu baax war nañ ne cee jànge ay jukkoom bu baax gën a góorgóorlu bu baax xam ne yàlla du nax man amila saalihan fali nafsihi wa man a fa alayha lépp lu waay def te yàlla tax lu mu yàgg-yàgg ah di nga ko làmb daj waaye boo defee safaan it ah mënoo rëcc yàlla de lu mu yàgg-yàgg ah, di nga ko làmb daj ko ñu ngi koy ñaanal bu baax ah, fa mu tëdd tey lépp luy teraanga ay kilifaam yu baax yi am ko yal na ko ci yàlla boole amiin fa tabarakallahu ak ñam ko bokkal ñëpp wala sina amanu wa tabaatuhum suriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim suriyatin wa ma alatnahu min amalihi min shay'in loolu alquran la Abdou Seck yàllaa ko wax yàlla nee na boo amee kilifa gu baax yàlla nee soo amee kilifa gu baax gu mel ne Baye Ousmane Abdou li tax ma koy wax nag li tax ma koy wax mooy sama maas gi nga xam ni amuñu solo amuñu solo te seeni maam te seeni maam ak seeni baay liggéeyal yàlla lool am ngërëmal yàlla waaye bu ñu décourage yàlla nee na yàlla nee na ñu gëm yàlla ñu gëm yàlla gëm gu mat sëkk gëm yàlla gu mat sëkk fa tabarakallahu am ngërëmal yàlla am ngërëmal yàlla am ay garaat yu kawe ci garaat yu kawe ci yàlla mi leen bind ba bokk na ci teraanga leen di yàlla yi leen di yàlla yi defal mooy jël seen ba seen doom yi. mooy li yàlla day jël seen doom yi. asuriyatu buñ ko waxee asuriyatu buñ ko waxee. day làmboo doom. day làmb doom. day làmboo euh, day làmboo sët. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. baatu suriya. da leen di làmb. da leen di làmb. su ko defee seen doom ya. su ko defee seen doom ya. ak seen sët ya ak seen sët ya nga xam ni. defuñu lu toll la ñu def. defuñu sax lu toll la maam ya def. Ah, ah, ñun de yaakaar naa naa ne. amu fi kenn ko sant Seck. amu fi kenn kenn ko sant Seck. ku ñemee wax ni. ku ñemee wax ni. maam Amadou Ndak maam Amadou Ndak Seck. li mu liggéey li mu liggéey. man liggéey naa ko wala liggéey naa lu ko lu nu mel. amul kenn ko sant sekk ko ñi may wax. yaakaar naa kenn fit àggu ca. amul kenn ko sant sekk. amul kenn ko sant sekk. ku ñi wax ni maam Momar Talla Seck. li mu liggéey. liggéey naa ko. ba tolloog moom garaat. loolu fit àggu ci kenn ñi mu ko wax. amul kenn ko ñi may wax ni maam ma a dikkee roqaya gëy. wala maam Ibra Penda li ñu liggéey ci yàlla liggéey nañu ko benn sët li ma ko wax waaye nag sañ ngaa wax ni sañ ngaa wax ni ëllëg bu ñu nekkee àjjana bu ñu nekkee àjjana teraanga ju ñu am mën naa koo bokk ak ñoom ndax a ah, baat bii loolu alxuraan ko garanti wallazina amanu wallazina amanu wattabaatu suriyatuhum wattabaatu suriyatuhum bi imanin bi imanin ay bi shay'in ay bi shay'in min al min al iman gëm yàlla ga gëm yàlla ga lu mu tuut lu mu tuut tuut boo góorgóorloo yow boo góorgóorloo ëllëg sa maam yu baax ya nga xam ne duñu sa morom ci dox teraanga ju ñu am teraanga ju ñu am mën nga koo bokk ak waaye nag ñoom la ko yàlla tere yàlla tere de toujours nga lekk dépasse boo xamul fu mu jógee yow mën a firi kon nu góorgóorlu bu baax te bañ a découragé Mamadou Bara Diop yan nañu yàlla boole jàppale yan nañu yàlla boole taxaw yan na yàlla boole xiir ci boppam su ko defee ñu xam ne mag ñi liggéey nañ Seydina Limamou Mahdi ba am ngërëmal yàlla Cissé liggéeyu mag ñi bu nu ko yàq bu nu ko xajamal nan ko dund nan ko dundal nan ko toppatoo ah nan sàmm liggéey mag ñi loolu lañuy xaar ci ñun loolu la xaar ci ñun kon sëñ Mourtala kon sëñ Mouhamadou Mourtala Seck ah, yaa ñi nga bokkal wàccuwaay bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la san di la jaajëfal di la ndokkeel ci bis bi yaakaar naa ni day ah, lii sëñ Baara Jóob Njaay waxoon léegi ah, ah baax googu gis nañ ko ci yow di asal yaa ngi ko bokkal ñëpp. ku ñëw tey mbuur ku ñëw tey mbuur Ardo. da nga xam ne li fi bàyyi Ousmane. di nga xam li fi bàyyi Ousmane bàyyi woon. dafa yokk daa yokk. waaye dara wàññi kuuti. la Alaaji Ngañ Saar mi waxoon. la Alaaji Ngañ Saar mu baax mi waxoon. ne sëñ Moor. ne sëñ Moor. bu ñëwee bu ñëwee. liggéeyu bàyyam bi liggéeyu bàyyam bi. dina ko téye dina ko sàmm dina ko sàmm. dara du ci yàq dara du ci yàq. la taxoon mu wax la taxoon Alaaji Ngañ Demba Saar wax ko. nga fu wóor la ko teg kon ñoom ñëpp gàccaalu kon ñoom ñëpp mortala gàccaalu leen sa baay ba la yóbbu woon daara sa baay ba la yóbbu woon daara sonn ci yow lool ah gàccaaloo ko de sek tabaarakallahu saw askan waa taale ni ngi toog gàccaaloo sa baay sa baay asan mi toog ah gàccaaloo ko de ñi mu bokkal wàccuwaay bi bilaay gàccaaloo leen kon yal na la yàlla gën a jàppale yal na la yàlla gën a taxawu gàmmu nguur gi buy bëgg a ñëw effort yi ci morta lay def ak coono bi mu ciy daj ak lim ko gàmm giy jaral wallaay ku ko xamoon di nga xam ni mortaale mii ah liggéeyu bàyyam bii jaral na ko lu ne waaye fa tubaarikallaahu waaye am na ci résultat de ndax bis bi sagu na mbooloo mi ñëw na lépp bokk na baax kon yal na nga ko yàgg a taxawee yal na yàlla jàppale la yal na yàlla taxawu la yal na yàlla dimbali la yaag say rak da ngeen na ngeen yóbbu liggéey bi fu kawee suñuy njortu ñu ñëpp yàlla mën na ko yal na ko yàlla def baay bu baax boo ko amee lu ne mën nga ko am wa kaana abuuhumaa saalihan fa araada rabbuka an yabluxaa asdahumaa an yastaxrijaa kansahumaa nixmatan min rabbika loolu baay bu baax moo ko may doomam yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa. ak xadar ak xadar. ba ñuy ànd ci seen tukki ba ñuy ànd ci seen tukki ba. Ah ah. Seydina Alxadir. Seydina Alxadir. gis benn miir boo xam ne. gis benn miir boo xam ne. fa tabaarakallaahu dafa mabboon daanu. miir ba daa mabboon daanu. ah yonent yàlla Moussa ne ko yow de ah, li nga def de mënoon nga cee laaj dara loo xam mën nañ ko dimbali. yonent yàlla Moussa ne ko ah yow de yow lii nga def mënoon nga cee laaj alal joo xam ne koom boo xam ne ñun mën nañ cee dimbali ko. te fekk nit ku baax moo fa dencoon alali doomam dencal ko ay doomam dénk ko yàlla bëgg ëllëg ay doomam bu nu màggee xam yàlla boole leen nag ku génne alal ja ñu mën koo jariñoo te loola moo am te loola la leen ko may mooy am baay bu baax kon Mor Talla am nga baay bu baax baay boo xam ni foo ko tudd ah, ñëpp ne iskay loolu ndimbal la ci nit mën na laa ubbil buntu baax bu ne tubaarakallaahu yal na yàlla dimbali leen alaaji ngañ demba saar kontaan na ma sëriñ baa ngi lay nuyu di la siyaara di la jaajëfal bu baax se fa tubaarakalla saar sa taxawaay ci sunu maam asan dara ump nu ci te bëgg lu baax rek se saar ndax man mi am na lu ma xam ngañ ku bëgg maam Assane. ngañ ku bëgg maam Assane la ba def ko morom. dunoo bëggante ñoom ñaar bu nuy xuloo bu ci kenn dugg. ku bàyyi xel maam Assane. ku nangoo sonn ci moom la la. ku bëgg mu am am ndam la moom alaaji ngañ dem Sarr mii. ma sëñ Pape xam na ci dara ñoom ñaar des fois ñu waxtaan juróomi wax. te ndam loolu kat. man mi yenn saa mu jox ma dog ni ma waaye ni ma sëñ Pape dog bii ñaanal ko Baye Assane. nit nag buy def lu baax nit def lu baax bay asam. dañ koo war a wax dañ koo war wax. ngañ da koy wax ci kàddoom. ngañ da koy ci biir kàddoom. nee nit def lu baax nee na nit suy def lu baax. dee ko tudd. loolu moo tax ñu koy tudd. loolu moo tax ñu koy tudd. ndax xam na ne ndamal bay asam. ndax xam na ne ndamal bay asam. ndamam la ndamam la moom ngañ. waaye ndamal wàcc na ba lépp nga ndamal diine. kon maam asan loolu. kon maam asan ñu ngi la koy seedeel ci sa seex bi te dog yu doy waar la ngañ di joxe nag dog yoo xam ni ca mag ña la bokk bay bay bàkkaray bàyyam def ko am naa ci yow yaakaar ñu ñaanal ko moom as loolu ku koy def ah war na la ni jaajëf war na la ñaanal ñu ngi nuyu sunu baay Alsaan ñaan chef de village ak sunu baay Daouda Seck mu yoru mi ak sunu baay Seexu ñoom ñii nga xam ni ñoo fi toogal sunu baay xalifa xalifa maam Alpha Mamadou ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di siyaar ñëpp ñu ngi leen di jéggulu yann yàlla boolu jéggal asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Madika Seck rek moo toog sëriñ Madika Seck rek moo àddu xol yépp sedd na Seck yàlla nga fi yàgg te ànd ak wér sëriñ bi mu ngi jooxal ay cant ak i ngërëm ñu ngi yëkkati kàddu ci ndégalu sëñ Mourtada Seck di wax kilifa gi di Baye Assane ne préfet du département woote na ab CDD ci préfecture bi jëmale ko ci gàmmu gi ka ca njëkk addu mooy premier magistrat de la commune di monsieur le maire Cheikh Issa Sall gis ngeen ëtt bi ni mu yaatoo moom lañu waxal mu pavel ñu côté bii ba mu àgg foofu ñu ko ko waxe foofa la téléphoné kii pavé ne ko maa ngi lay jox numéro Idrissa Diallo fekk ko suba daara ja ngeen tàmbalil ma pavage bi suba ca suba sa lañ ko tàmbali moom ci boppam mu dawal otoom ñëw ba fii di seet ndax ngi def liggéey bi bi gis ngeen buntu kër sëriñ bi ni mu leere bañ ko ko waxee la ne directeur de cabinet su suba téeméeri mètre lu romb kër sëriñ bi téeméeri mètre lu ko romb nii lamp yëpp na takk te leer loolu yëpp def nañ ko ba ñu soxlaa ay produit pour pomper kër yi balaa gan yee ñëw dama dem ci nga xam ne mooy secrétaire général mairie mu ngi nii toog suma gannaaw di monsieur Diop moom moo dégagé budget boo xam ne dem na plus de quatre cent mille pour ñu jënde ko produit pour ñu ñëw pompe si fii kër gi ak yeneen kër ba pompeel nañ ñu ñaar fukki kër daaw fukk ak juróom la woon daaw jéeg fukk ak ñaar monsieur le maire yemu fa yëkkatiwaat beneen enveloppe jagleel ko sëriñ bi yëkkati ko teg ko ci ay loxoom kooku donc monsieur le maire Cheikh Issa Sall loolu la defal sëriñ bi ci gàmmu bi kii di commissaire central bu Mbour gis ngeen service d'ordre bi dëpp ci suba ba léegi envoyé na fi ay éléments kii nga xam ne mooy Atoumane Gueye ex policier yore service d'ordre sëriñ bi lënkaloo ñoom ba dara jaaxle wuñu ci léegi la ma commissaire Sène di woo mu ne ma envoyé nañu GMI jóge nañu Thiès ñëw nañu ma romb fii dem seet ci leen waxtaan ak moom dalal ko ne ko sëriñ bi yëg na ne joge ngeen Thiès ñëw ngeen kon ñu ngi sant commissaire Sène bi mu nekkee Thiès moo ñu doon jox motard ñuy dem di gàmmu cene ba daaw ñu affecté ko Mbour ma laaj ko mu ne ma danaa la jox oto moo lay jële bi yoon mbuur yóbbu la ba cene ba kon commissaire seen moo dëkk ci kër gi réaffecté waat nañ ko delluwaat na ndakaaru kuy def lu baax lu baax rek ngay am kii di brigade d'hygiène ñoom itam andi nañ seen élément pompel ñu ñaar fukki kër ndax li nga xam ne loolu la leen mairie jox ci ay produits parce que ñoom am nañ machines yi am nañ nit ñi mais amuñ produit bi mairie moo ñu ko jox Senelec liñ soxla woon ci moom muy branchement provisoire defal nañ ñu ko quatre fils ci poto bi deux ci poto kër sëriñ bi seen o ñëw nañu fi tànnal ñu ay kër relever seeni compteur ñetti fan avant gàmmu gi ñetti fan après gàmmu gi kenn du fay ndox ci kër yooyu yëpp sapeur pompier xëy nañu suba ñëw andil ñu citerne bépp ku soxla ndox fii ëndi nga say bagaan ñu solal la ko ba mu fees ñu talaat seen camion delluwaat caserne ba UCG nga xam ne ñoom ñoo yore mbiru cet gi ñëw nañu fi ñaari fan def opération set setal te tali but ba but bale ko ba mu set wecc ba gisatuñ fi suuf bi ñu paree tey ci suba ñu yónnee ñu ñaari bac bac lu muy jëriñ moo di mbalit bu fi am mbuus bu fi nit naan ndox ba pare wala butéel nga jël ko dugal ko ci bac yooyu bañ koo sànni ci mbedd mi parce que dañoo bëgg mbedd mi set wecc waa croix rouge Mamadou Diop mi nga xam ne moo leen yore yónnee nañu six éléments ñu ñëw ñoom ñoo tant tant yële ba bi nga xamee ne kii nga xam ne moo chef district bu Mbour yore hôpital bi yónni na major bi nga xam ne moo yore dispensaire bi nekk fii kooku ñëw nekk fa ak ay garabam koo xam ne am nga tawat soo fa jaaree mu faj la kon waa district sanitaire major yi PMI bi moom la envoyé fii ak ay éléments ñu nekk ak waa croix rouge foofu ak waa sapeur su ñu jógee foofu Baye Assane ñu ngi sant Ngagne Demba Sarr ñu ngi sant Ngagne Demba Sarr ñu ngi sant Ngagne Demba ci appel bi nga xam ne yónni nga ko mu ñëw def si ko fii ci kër gi ak ñun appel ba ñun dey gis nañ njëriñ li léegi ngeen xam ci dara ñu ngiy sant monsieur le ministre de force armées maître Omar Youm nga xam ne moom mooy maire Thiadiaye yónnee na fi ki nga xam ne mooy attaché de cabinet di Ablaye Diouf jox ko enveloppe bu duun mu teg ko ci loxo si bi kii nga xam ne mooy monsieur Abdoulaye Daouda Diallo mu nekk président CSE conseil économique social et environnemental yónni na fi sarge de mission Birane Seck kooku aussi ñëw giseeg sëriñ bi am waxtaan lu mu moom yëkkati enveloppe président bi teg ko ci ay loxoom kii ngaxam ne mooy le ministre des finances Mamadou Moustapha Ba yónnee na fi enveloppe teg ko ci loxo sëriñ bi te noonu nag Ngagne Demba noonu la leen ko waxe woon Baye Assane dana ñëw te bëgg na mu fekk leen fa bi ñu jógee foofu ñu ngi sant l'honorable député El Hadj Omar si li nga ko waxoon ngañ Demba Sarr Seydina Omar def na ko yeewal na sëriñ bi ab gàt yëkkati enveloppe bu defar gàmmu teg ci ay loxoom njobootu sëñ Ousmane soxna yim fi bàyyi ak doom yim fi bàyyi ku nekk yëkkati na enveloppe am lum ca def mu teg ko ci suma loxo ku nekk ma jox la sa enveloppe kon loolu da nga koo la doon def baax na waaye yokk ko donc Seydina Omar yokk na ñu ngiy sant honorable député Adja Yacine naw na mu doon def rek def na ko parce que moom jerbaatu sëriñ bi moom moo war a organiser la mu waroon a def def na ko kii di DAGE ministère des finance di Abdoulahat Sène moom itam ñëw na Abdoulahat Sarr moom itam ñëw na yeewal sëriñ bi ab gàtt di njobootu ancien maire Ahmed Sarr danaa ci ñëwaat waaw xam nga ñun pël lañu gàtt lañu xam sëñ bi mu ngi sant monsieur Papis Danfaha mi nga xam ne moom moo jiite trésor bu mbuur mu ngi gërëm professeur Serigne Diop yónni na Ibrahima Diop mu andil ko parfum de doon andil sëñ Ousmane andi waale ñu ngi sant docteur Macoumba Diouf moo xam ne maire de Latmingué lamu doon def na ko ñu ngi sant maître Abdoulaye Tall avocat à la def na la mu doon def ñu ngi sant Cheikh Ahmed Tidiane Ba DG banque agricole moom itam la mu doon def defaat na ko ngañ dem ba saar ñu ngi sant Mamadou Ndiaye directeur administratif des ciments du Sahel moom itam jaar na fam doon jaar di sant Ibrahima di sant Ibrahima Ndour maire de Taïba Moutoufa di sant Pape Sow maire sangal Sangalkam di sant DG Crédit Mutuel moom itam ñëw na jël enveloppe bu duun teg ko ci loxo sëriñ bi di sant monsieur Mamadou Diop de Croix ancien ministre di sant monsieur Maguen Mbaye maire de Noto di sant monsieur Pape Diouf honorable député maire de Ngexor di sant monsieur Mandiaye Kébé maire de Fass Kofi di sant Ousmane Gueye député maire bu sali ñooñu lañ ma waxoon naa ko def parce que li wolof di wax li duuf ci nag bi yëpp daa xëyul ci sin li asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Idrissa bu ma seetee ren la ci fanweeraat ak juróom ndax en tant que chef de protocole de l'administration gàmmu gi bu ma see ab am man ak sama mag ju baax ja Alaaji Seex Sàmb conseil religieux des autorités administratives dañuy def benn réunion CDD préfet bi da chef de service yépp ñu toog waxtaan loo xam ne dafa ñëw ci gàmmu jële loolu moo tax ñu defaat ko ren ni ko defoon daaw ak daaw jël ak at yi leen jiitu Idrissa Diallo wax na ko léegi wax na it CDD ba chef de service dafa newoon ak ku ci nekk lala la préfet santoon ak na nga ko defi waa ne le premier magistrat de la commune de Mbour l'administrateur civil Cheikh Issa Sall directeur bu caisse constitution bi nga xam ni moom la président de la son excellence El Hadj Macky Sall fal barki dem lu ko ñaan yàlla na ko yàlla jàppale ci loolu sëriñ bi ki nga xam ni moom lañ nu booleel di El Hadj Moo Taala Seck di sama seexu Makka dafa dina nu mu naan def ndax dama ko wax nii gàmm gi fanweeri at ak juróom ma taxaw di ko wax nii daa dog préfet yi ak ministre yi ak gouverneur yi waaye maam Mor Talla mii daf noo téye woon at ay at ci Makka ndax booba ma nga woon Riyad di jàng waaye saa yu ñu jóge Sénégal dem aji Makka moom lan nuy booleel bu taxaw ak bii fi daje te tey premier magistrat de la commune yónni leen ki nga xam ni moo ko njiite jii moo suñu doom di baax ji di amal monsieur Diop secrétaire général de la commune de Mbour secrétaire municipal de la commune de di xale bu set loxo xale bu baax ausam bie ne laaba la na tam poy loon na mu des années xale bu loxo set mën a bokk ak mag teg ci nag suñu doom ki nga xam ni mooy Seyni Ba di doomu Badou Ba di chef de cabinet bu maire de la commune de Mbour Cheikh Issa Sall di ci teg conseil municipal bi nga xam ni lépp luy diine ci biir conseil municipal commune de Mbour moo ko yore mooy Mor Sall président la commission des affaires religieuses ci conseil municipal bu Mbour moo vice président Rokhaya Gueye waaye gàmm bi dafa kulóoru ndax sumu doom ji nekk sunu ginnaaw di Abdoulaye ak Sarr mooy laa joome Sarr dans ministre des finances Idrissa Diallo tudd na ko léegi muy xale bu baax xale bu am jàmm xale bu am yar xale bu am teggi nu ngi koy sant di ko gërëm délégation boobu sëriñ bi moom la monsieur le maire yabaloon fekk fii de ki nga xam ne mooy Abdoulaye Sarr wax nañu délégation ki nga xam ni mooy le ministre des forces armées maître El Hadj ñu Youm wax nañu yi nga xam ne mooy autorité yi ne ci département Mbour yëpp tudd nañ leen kon nag sang bi xalif général loolu dama ko doon ubbi waaye nag dafa am loo xam ni. sëriñ bi daf ma waxoon ni dañ koy dellu bu bëgg delloo ko ca booy booy ba ndax bu ma nekk chef de cabinet bu préfet chef yi protocole dafa amee chef de cabinet du préfet chargé des affaires religieuses kooku moo doon sama mag ji Alaaji Cheikh Sàmm naa moom taxaw fii délégation bi nag ki nga xam ne moo war a jël kàddu gi di Mor Sall ki koy introduire boo sama doom Cheikh Cheikh Tidiane Sàmm Cheikh Tidiane dama bëgg nga ñëw fii ndax sa papa moo daan taxaw taxaw baay moo doon noon pré euh, conseiller religieux du préfet du département de Mbour daal di def li nga xam ne moom laa koy def Cheikh ñëwal àggale li nga xam ne moom laa daan def fi maag sa lay doon ndax jëmm ji taxaw tabarakallahu war yëkkate kàddu ci turu monsieur le maire Cheikh Issa ak délégation bu tedd bi mu àndal te ñi ma jiitu ñëpp lim leen tabarakallahu yàlla yàlla yeggali seen bébét ci mbuur yàlla fay leen seen ay jéego xalif général ci yow lay tàmbalee papa jërëjëf Seck yàlla yàlla yàggal cër bi almachixatu la budda laha min siyaasati l sëriñ bi gàmmu gii mayaat nañu beneen chance mooy ku toll ni xalifa général de ànd ak délégation tabaarakallahu bu toll ni bi mu àndal ñëw mbuur loolu de képp kuy doomu mbuur tey sa xol am na lu mu yëg dafa am ko waxoon ni nit ki nag fa muy jóge di fa jege di fa jege su ko jigee du fa jóge waaye sa toogaay bii de doy na assurance sëkk ci jataay bi sa doom jii nag la daloon Quraysh daloon banu suleymin iza ma faxaru nasaban tafaxaru bi rasulillahi xayriini moo ñu daal ci moom alxaaji Matar Samb yàlla yàlla yàggal sa taxawaay wax nga ko léegi cheikh Mouhamadul Mourtada Seck ibnu Ousmane bii toog alaaji Maxtaar wax na ko léegi ba mu nekkee ca Riyad di jàng daan daw junni kilomètre ak ñaar man mii la daan jokkoon ma ànd ak moom ñu wër fépp fu doomu nekk ñu fekk ko fa mu nekk nuyonteeg ñoom saafanteeg ñoom la ko bàyyam jàngaloon ci diine la ko bàyyam yarawoon ci ëttu canaba li mu donnoo ci bàyyam ak i maamam mu taxaw leen ko ci manasikul xaj kon tabarakallahu bu fii yàlla dogal baayam la mu daan def wal fata in shabahat afaaluhu afaala wajihi fa laysa bi zalimin wala dañuy léeb naan ndég gi jam sa baay jam sa maam su jamul doom dafa teg yoon waaye sekk sëñ Murtada yow suñu fierté nga ñi fi ñëw tey ñépp nag ba ci kii di jël kàddu li tax ñu jël kàddu mooy sa comportement ci dëkk bi day jar nag alxaaji Ngagne Demba Sarr ñu leeral ko xalifa général wax ko ni ko sa doom ji sa mbokk mi kii la tax a jóg ngir baayam ak i maamam te tabaarakallahu cene ba Kajoor wax ko léegi comportement moo fi indi kilifa yi waaye nag sëriñ bi dañu am chance yàlla boole ñëw kilifa yu baax lii ñuy wax ci monsieur le maire Cheikh Issa fi nekk nii tembe wasiilaam sëriñam Chérif moo génn àdduna mu nekk ca Nimzaat di gunge koor ba yàlla yàlla yokk leeram jataayu tey bii édition 2023 bi dañoo sëkk ñaan xalifa général toog muqaddam yi toog l'islam bi toog tariqa yépp toog ñu ñaanal ko mu fekki maamam yonent bi sallallahu alayhi wa waaye ñu feeñalal la cant ak bi nga xam ne wax nañ ko léegi ci suñu frère bii toog tabarakallahu di daaj abdoulahat mbàkke sarr bii toog bu alxaaji tabarakallahu monsieur le maire woy juróom alxaaji amet sarr at yu néew ku mu teree nga bay sa waar ci tool lu baax sëriñ bi sekk day nekk fuite de responsabilité noonu la tubaab tudde waaye daw ndogalu yàlla lay nduróol waaye moom loolu dalu ko ministère finance bi ñu tudd léegi di Mamadou Moustapha Ba du ko wóolu te olof Njaay nee na nag su wóolu woon béjjënam du ko wokkutoo Abdoul Ahad déy ma léegi kàddu gu daw yaram nee na ma tey bu ma jëloon kàddu fii du ma xam lu may wax ndax li ko waral mooy damaa bokk ci kër gi bokk ci koñ bi am cër boo xam ne baayam monsieur le maire Ahmed Sarr benn jëmm rek la ko doon jox borom inqaadatul ujur wal masalih bi tay yi wal jës bi way nii salal borom ko toon buur Serigne Saliou Mbacke waaye nee na bi way juróom yi jàppee ni Serigne Saliou làqu na jamono cër boobu daa waññeeku jox ko sëñ Ousmane Seck waaye li ko boole ak mbuur adjoint maire la ànd ak ki nga xam ne kii moom la war a jël kaddu muy suñu meer bu baax bi indi plan yeesal mbuur muy Cheikh Issa Sall li leen boole moo leen boole ba tey sa soppe sa doom sa taalibe sa gu canaba fierté Sénégal El Hadj Omar Sy moom it tamit ñu ñaanal soxnaam kon ca dëj ba lu amul seede baaxul alañ ngeen dem ba saat mi ñëw na ànd ak Serigne Jibrilu sekk mii toog ñu joxe njaalu canaba ba mu rafet kon Omar si moomu bu defee jëf gi mu jëf ci bis bi day wane ne moom buntam léppam day ba sëriñ bi bugguma gàddal euh, guddal kàdd gi dañu lay seedee rek ni tey ku fi ñëw ci département bi ba ci le ministre des forces armées El Hadj Omar day doomu kër gi bëgg mbuur téye mbuur jàpp mbuur waaye bi ma fi déggee ni ñëw nga kon a xam ne diggante Omar Youm ak Thiénaba sëñ ngeen de Demba Sarr bi keroog seede na ko waaye dañ lay seedeel ni sëñ bi daal buñ doon taxaj kàddu gi di ko tëj mooy sa doom yii yëpp nang leen ñaanal mu le maire Cheikh Issa day jàmbaar di borom fit ànd ak mu Moussa Diop muy secrétaire général ñu liggéey ci maire kii jël kàddu bu jëlee la dana gën a leer ndax ngërëm yi nga xam ni sa Diallo wax na ko jëmale ko ci ñoom jëf nañ lu ko raw waaye sa doom jii toog Abdoulahad Sarr ministre bii mu bër bërki dem daa am ndam lu rëy loo xam ni day jar nag ñu seedeel la ko ndax nag bu dee ci wàllu état président Macky Sall moo ko jiite waaye bu dee ci wàllu jigéen ngeen nekk yow mii toog sëñ Baye Assane Seck ku mel ni Cheikh mu Mountakha Mbacké sëñ Babacar Sy Mansour sa xar bi sa soppe ba ak xulafaay nekk Sénégal di ngeen a yor mbooloo mu ñuy tuddee coalition mbokkoo sargal l'islam ñun nag la may wax rek mooy ji ndax ba mu daanoo troisième étage muus daw ñëw song ko di ko akolaat nan ko massa mbaa gaañu woo dañu ko lu mën a xew rek bàyyi ma yàlla waaye ñun nañu bàyyi suñu kilifa yii yéen a yor diine ji yéen a téye réew mi seen i ñaan moo sécurité Sénégal kon na nga ñaanal sa doom El Hadj Omar Sy na nga ñaanal sa doom monsieur le maire Cheikh Issa Sall jàmbaar ji waaye na nga ñaanal sa doom ji toog nga xam ni yaram tegginam bërki dem ndam li nga xam ni moom la Sénégal am ci assemblée nationale ci budget nga xam ni mooy dépense su Sénégal ministre taxaw ba réew mépp di ko gërëm di ko ñaanal jàmbaar ji daa nekk ci itam di ko liggéey liggéey boo xam ni te boo gisee nag man tawaadaa illahi la xawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim xasbuna allahu wa ni'mal wakil wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki julit yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu monsieur le maire Cheikh Issa Sall ak mboolem waa mairie bi yëpp di jël nuyoo boobu ak siyaar bi ak cant li ak ngërëm li teg ko ci loxo xaritam di suñu xarit sëriñam di suñu sëriñ wëllëreem di suñu wëllëre sëñ Mourtala Seck mi toog sëñ Mourtala yàlla yàlla yàggal la fi loolu te nga ànd ak wér bu nu jëlee nuyoo bu le ak nuyoo waa mairie bi yëpp teg ko ci sa loxo nga tegal ñu ko ci loxo xalifa bu tedd bii toog sëñ bi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen ndokkeel ci guddi ki di wax ni baas bii ku ne xam na ni miin na monsieur le maire Cheikh Issa Sall tey jii fa mu nekk ca Nimsaat li mu woote kenn xamul lu mu doon ni sama kër ga sama béréb ba sama guddi ga na ma wutal délégation bu am solo ngeen teewal ma fa parce que fii ma nekk Nimsaat sama xel yépp mi ngi fii ci kër sëriñ bi mi ngi fii ci guddi sëriñ bi loolu nag monsieur le maire ba mu ko waxee mu ni day jël Omar Moussa Diop mi nga xam ni mooy secteur municipal nga xam ni lépp maire buur moom moo koy doxal ànd ci ak yar ak sutura ak teraanga ab xam-xam mu toog nii jiite délégation bi monsieur le maire Cheikh Issa Sall ni du yem foofu da ci teg chef de cabinet am muy Seyni Ba nga xam ni boo demee maire lépp loo yittewoo ci monsieur le boo gisee Seyni mel na ni toog nga ak Cheikh Issa Sall maire Mbour mu ni du foofu da ciy boole madame la maire soxna Roqaye Gueye di jàmbaar ci i Issa Sall di jigéen ñi fàkk tëdd di jigéen ju bëgg diine koo xam ni commission bii guddeeg bëccëg mi ngi ci dox waaram bañ ne ko ba borom këram man ak monsieur le maire ñoo toog mu jox ñu ndigal ni kii sama soxna la bàyyi naa ko ci problème mu diine ji heure bule ko soxla muy guddi muy bëccëg ñëw leen ànd ak moom dem kon soxna Rokhaya ñu ngi lay sant baax yow di la gërëm man ma tudd Mor Sall nekk conseil mu dénk ma lépp lu jëm ci wàllu diine fii ci commune Mbour waaye sëri bi Cheikh Issa Bun dafa am tiis waaye ci biir tiis mu mujj na nekk mbégte ndax bi ñu jàngee ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla la jóge te ca la ñuy dellu sangam di sëriñam muy Cheikh Sidi Bouye farfaari boo wàññiku démb mu yóbbu ko Nimsaat muy sëriñam di xaritam di wóllëram di baayam mu ni bu ñëwee ba fii na la wax yow sëriñ Mourtala nga wax xalifa bi mu joxe ndigal ci mbooloom yépp ñu ñaanal sëriñam boobu ndax fële mu tëdd sàkku na ñaan ngeen ñaanal ko bu baax yàlla yokk ay leer xare ko ci àjjana gën a koy ca ñun ñu fi des mu bàyyi nu fi yàgg ba ci kanam euh, monsieur le maire Issa Sall nag nee na mu ngi dalal mboolem ku fi ñëw fii moom la yàlla nattoo muy meeru dëkk bi nee na ku fi ñëw tey ganam nga nee na lii sëñ Diallo wax dafa baax rek di ko wax waaye moom nee na lu def fii ci kër gi yéene bi ëpp na loolu nee na lu fi def yéene leen ëpp na ko parce que koo xam ne ba yàgg nga ànd daan sa oto ñëw ànd ak sëriñ bi ànd ak moom yendu këram ànd ak moom julli ci jumaa ci jumaa ya ah jàpp naa ni loolu ku amul cër ci kër doo ko fa def ci monsieur le maire Cheikh Issa Sall loolu la nekkee ak sëriñ bi sëriñ bi nag di ko ko xam di ko baax sëriñ Sam wax ne ko léegi ñu ngi koy nuyu au passage sëriñ Mourtala dafa jox boppam waa Mbour kon waa mbuur mënuñu koo delloo bañ a delloo seen bopp rawatina nag nun ñi féeri ci wàllu maire nun wax dëgg yàlla sëriñ Mourtala dañoo jàpp ni ñun ak monsieur le ñuy beral loxo kon sëñ Mourtalla ñuy sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla bis bii nag yàlla nañ ko yàgg a taxawee ànd ko ak sunu xalifa bu baax bii yàlla yàlla guddal fanam lool tam ànd ak wér ak mboolem kilifa yi fi teew nag ñu ngi sant ñëpp ci turu monsieur le maire di gërëm ñëpp comme temps dafa yàgg foofu lay wàcc sunu kàddu waaye nag bi li ñëw monsieur le maire dafa waxoon ni ma euh, fii lu fa waay def moom nga ko defal mu jox ma amuloo bu cinq cent mille ni ma boo dikkee naa ko tegal sa loxo parce que nee guddi gi ku ne xam ne ni ree bi ëpp na waaye lépp moom la war waaye nag comme dafa nekk ci tiis mu ni rek dina jëlaat cinq cent mille bii barkeeloowaat ko ci guddi gi di la sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla nga dolli ko ay ñaan parce que nag nëgëri daaw dañoo toogat fii ne la sëñ Mourtala yaag waa cene ba yëpp ñaanale monsieur le maire Cheikh Issa Sall ba ngeen ko ñaanalee balaa weer wee dellu si gis nañu yokkute parce que nag buñ demee ba balaa weer wee dellu si ñu nemee ko CDC caisse de dépôt et conciliation muy li ëpp doole ci Sénégal ci alal réew mi buñ ko ko dénkee kon seen ñaan nangu na nee na ngeen ñaanaat ci réew mi jàmm ngeen ñaanaat ci candidat Amadou Ba ngeen ñaanat ci buur jàmm rek xaw fi wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf ah, kontaan nañ lool ci présentation bi waaye dañuy dikkaat rek ci dañuy dikkaat ci délégation ah, du xalif général de Thiénaba ah, àndoon na ak Serigne Abdoul Wahab gis nañ ko ci jotaay bi ànd ak professeur Souleymane Dia ñoom aussi ñëw ngi ci jotaay bi waaye ba léegi ci délégation yi Serigne Ardo Fall bu soxna Astou Balla Seck mu ngi ci jotaay bi ànd ak nijaayam Pape Diop ak ay xaritam ñu ràññee ci Abdou Ndiouk Eli Wade Aliou Kandé Aliou Diop Mafane Diouf Saliou Mbacke Diagne Ibrahima Dramé Basirou mbay waaye ba léegi ci délégation yi gis ci délégation Ñaaxeer Gandiol bu Babacar mbay mu ngi ci biir jotaay bi délégation soxna Anna Seck Bintu sëriñ Ibrahima Seck ki dirige jotaay ki délégation boobu di Baye Issa Diop mu ngi ci biir jotaay bi délégation Serigne Abdou Lahad Sarr wax nañ ko sànq bu ànd dooleel Abdou Lahad ak les femmes leaders ñoom ñëpp ñoo ngi ci biir jotaay bi waaye ba léegi mun nañoo ràññee ci jotaay bi délégation Serigne Makhtar Seck rijaalullahi ibnu Baye Moussa Seck bu Cabe teew na fi teewal magam délégation Moustapha Dem mu ngi ci jotaay bi bu Mbaawaan ànd ak Mouhamadou Gueye Dem ak nekkoon taalibe Serigne usmaan waaye ba léegi mun nañoo ràññee délégation Serigne Djili Mbacke ànd ak ay rakkam waaye ak ay xaritam waaw daf mbooloo bu takku macha allah ñu ngi ci jotaay bi délégation Serigne Diop dirigé par Baye Ibrahima Diop gis nañ ko ci jotaay bi waaye délégation Fatou Fati ki ko dirigé di Mariama Sadio Khady Dem Diop Diop ñaa Lalla Fati Anna Gaye Bekay Fati ak Abou Ndiaye ba léegi ci délégation yi mun nañoo lim délégation Fissel Mbadaan ki ko jiite di Khalifa seen ànd ak seen Sène Thierno Birahim seen ak njabootu imam Omar Sène gis nañ fi délégation imam xalifa Niang bu Diamaguène 1 gis nañ fi délégation bu Khalifa Ibrahima Ndiaye Thiénaba Horizon mu yëkkati enveloppe bu ama am solo te ko ci loxo Serigne Alioune xam naa Alioune di dina ko jottali Serigne bi waaye ba léegi oustaz Thion wax na ko léegi ah daayira Serigne Ousmane Seck bu Mbour dañoo nekkoon ànd ak seen i mag ànd ak seeni waajur ànd ak seeni yaay ñi nga xam ni vraiment chaque dimanche ñu ànd ak xale yi ci daayira bi ñu ne nag faa ñu rendre leen hommage Sénégal nag dañoo baaxoo nit balaa ñu ko rendre hommage faw mu dudd àdduna déedéet nit rendre hommage bu gën a am solo mooy ci ba muy dund nga delloo ko njukkal ci loolu ci la daayira yu xalaat ki nga xam ni mooy Baye Boubou Tall Baye Baara Diop Baye Thion Sarr Baye Abdoulaye sàmb maire Mati mbay ak maire Ndeye Gueye ñii nag xale yi nee nañ faaw ñu rendre leen hommage ndax ni ñuy taxawoo daayira yi xeeb nañ ko nag mais dañoo ne nañu commencé rek ba année yii di ñëw incha allahu rabbi ndaxte kat xeeb nañ ko lool ci loolu nag dañuy woo ki nga xam ne mooy président cekkandoo yi bu fekkee jege na mu ñëw ci Euh, fii mun leen a jox li nga xam ni moom mooy la ñu préparé woon pour ñoom waaye tamit ñi nga xam ne ñoom laa lim bu fekkee ñoo ngi ci jotaay bi buñ fu mënee teew dina baax lool wala seen i njaboot ñu teew ñëw jël li nga xam ni moom lañ leen war a jox di jéggalu ci kàddu yi baax a baax euh, suñu baay bu mu ngi nii dañ ko woo mu ñëw baay buubu taal bu ko defee ñu woo président Cekka mu euh, jox ko li nga xam ni moom la ñu préparé pour moom Vai, Serigne Bara Diop ñoo jege si Thione Sarr Baye Thione Sarr Abdoulaye Samb bu fekkee mu ngi ci jotaay bi wala ku ko mën a jëlal rek yaay mati mbay bu dee mu ngi ci jotaay bi wala kenn ci njaboot gi Baara Diop mun na ñëw mu jël ko wala meer Ndeye Gueye maire Ndeye Gueye bu fekkee mun na ñëw wala kenn ci njaboot gi rek

waaye li ci des bareetul ñu jël kàddu gi jagleel ko borom gàmm gi muy sëriñ Mouhamadul Mourtada mu bàyyi Serigne Ousmane Seck kon Serigne Mourtada kàddu gi ci moom la jëm. sëriñ Abdou Seck di taggkatu yonent bi di taalibe Baay Ousmane moo koy ubbil kon sëriñ Abdou bismillah faqran asirati asmana faqran Baye Ousmane Serigne Alpha Dia nee na sëriñam faqda qaraay na fi ilmin wasuuda dég ay waay aslaxta bayanta sublal xawaayaati ku ko sopp neel mi ñu màggal ko way bàyyi soxna su bal ko ko sopp nel nii yéen waa buur ay waay busraakumo usmaana xad ulitumo min aali murtada siril kuyoodaati laa jiltumo fii jadaakum ba ismaan waaye sëriñ waa Kër Saaw nee na Baay Usmaan seyxun taqiyun quraan wa sunu nasiqati maal imaan Baay Usmaan tibaaxo siraatul quraan wa sunnati rasuul zul ihsaan ku ko sopp ñu màggal ko Baay Usmaan yu darisul ilma مع القرآن في كل وقت وخوض العرفان وكل من أراك لا ينسيك قد فاد سعيك إلى مولاك وقد بكى قلبي مع لسان لسيدنا عثمان ذو الإيمان وامتر بأصحابي إنا والخط بسمان باي سخن منوي baay soxna menooy soxna paatu na ab saax soxna faama seen baay seen baay taqiyun seen baay sayxun taqiyun xaatisul quraan ñëpp def ni ñu màggal ko sal mbuura sal cene ba sal kulla man arafu sal mbuura sal cene ba sal kulla man arafu taalam bi anna qabi bannaata usmaana sal mbuura sal cene ba النقبي والناس سبحانا سالمور سالجنبا سالكل من عرفوا تعلم بأن قبي بناس عثمانا سالمور سالجنبا أن حبيب الناس عثمان سلمور سالجنبا سل كل من عرفوا تعالى بأن حبيب الناس عثمان بأن حبيب معنا معلم الذكر أهل الذكر عثمانا سلمون سلجنبا سلكل لمن عرفوا تعلم لأن حبيب الناس عثمان جمهور نمتيدي في جانب العلماء قد حيا وميتا أنت مرخانا سلبو رسول جنبا سلكل من عرفه الله عليه وسلم جل تيام تيام محمد صلى الله عليه وسلم ñoo ngi yëkkati kàddu yu nuyoo. nee na mu ngi yëkkati ay kàddu yu nuyoo. ak kàddu yu ziyaar. ak ay kàddu yu ziyaara. ak kàddu yu ñaan. ak ay kàddu yu ñaan. jëme ko ci sunu wayjur nee na mu jëme ko ci sunuy wayjur Baye Serigne Assane Seck Baye Serigne Assane Seck xalifa général bu Canaba xalifa xalifa de Canaba ayadahullahu wa nasara ñu koy ñaanal bu baax nee ñu koy ñaanal bu baax di ko sant bu baax di ko sant bu baax di ko gërëm bu baax di ko gërëm bu baax déplacement am nee na sa déplacement rëy na si ñun lool nee na rëy na ci ñun lool. ndax njaboot bu nekkee ci barab. ndax nee na njaboot bu nekkee ci barab. di sa njaboot. di sa njaboot. di la liggéeyal. di la liggéeyal. suba ak ngoon. suba ak ngoon. guddi ak bëccëg. guddi ak bëccëg. ba benn bis. ba benn bis. mu woo la. mu woo la. ngir nga ñëw. ngir nga ñëw. mu seedeel la. mu seedeel la. lam la doon liggéeyal. lam la doon liggéeyal. loolu rek moo waral jataay bi. nee na loolu moo waral jataay bi. moo waral woote bii moo waral itam woote bi fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu nga xam ko lool nga xam ko nag lool bàyyi sa itte yëpp nga bàyyi sa itte yëpp ñëw ñëw xam ni kër gi sa kër xam ni na kër gi moom sa kër la njaboot gi sa njaboot la njaboot gi itam sa njaboota yaag bay sëriñ Ousmane yéen a bokk lépp yaag sëriñ mu nekkoon sa lépp mu nekkoon sa lépp nga nekkoon itamit lépp fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu di nuyu sunu baay ñaaxa sekk. nee na mu ngi nuyu suñu ba suñu baay Mamadou Fall ñaaxa. di ko ziyaare bu baax. di ziyaare bu baax. di rakku baay Serigne Assane mii. nekk nag rakk ci Serigne Assane mii. bokk ak Serigne Ousmane Ndeye ak Baye. nee na moom nag mu bokk ak Serigne Ousmane Ndeye ak Baye. ñu ngi koy ñaanal bu baax. ñu ngi koy ñaanal bu baax. di ko jox wàccu waayam. di ko jox nag wàccu waayam. yal na yàlla yàggal ko ci suñu kanam. yal na yàlla yàggal ko ci suñu kanam. ci barke alquran. ci barke alquran. fa tabarakallahu. fa tabarakallahu. nuyu sunu bàjjen Araman Seck. nee na mu ngi nuyu bàjjenam soxna Araman Seck. di ko siyaare. di ko siyaare. di ko jaajëfal di ko di ko ñaanal bu baax di ko ñaanal bu baax ci ay taxawaayam ci ay taxawaayam ci kër gi ci kër gi fa tabaarakallaahu tabaarakallaahu di nuyu sunu mag nee na mu ngi nuyu magam mag ci sët mag yi nga xamante moo mag ci sët muy sunu baay jibi sek muy suñu baay sëriñ jibi lu sek ñu ngi koy ziar ñu koy ziar di ko jox wàccuwaayam di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal di ko ñaanal di ko gërëm di ko gërëm ci jege gi mu jege suñu baay bii ci jege gi nga xam ne jege na ko suñu baay bii di ko wettali di ko wettali di dalal xelam di dalal xelam di ko gunge di ko gunge sëñ ji bi jaajëf sëriñ ji bi yàlla guddal fan wi yal na yàlla doolee guddal saw fan yokku wér gi yokku sa wér fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu di nuyu mbooloo yëpp nag. na nag ñu nuyu mbooloo mbooloo nekk ci fii. di ko teg ci loxol sëñ Jibi moomu. nee mu ngi yëkkati nuyoo bi di ko ci loxol sëñ Jibi lu sekk moomu. muy rakkam yëpp. nga xam xamante ni ak mbooleem rakkam yëpp. ñoom ñëpp présenté nañ leen. ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu présenté nañ leen. tudd nañ leen. tudd nañ leen. teew nañu. teew nañu. nañ war a teewee. nañu war a teewee. suba ba tey. ci suba ba tey. képp ku sant sekk rek képp ku sant sekk rek ñëw nga ñëw nga na nga war a ñëwee na nga war a ñëwee teew nga teew nga na nga war a teewe na nga war a teewe jëf nga jëf nga na nga war a jëfe na nga war a jëfe fa tabarakallah kon sant nañu ñëpp kon sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp jaajëfal nañu ñëpp jaajëfal nañu ñëpp damay bañ a dugg ci lim nee na day bañ a dugg ci lim ndax waa cekkeen ndax waa cekkeen ah benn lanu benn lañu de eh, mbir nag bu dee benn nee na mbir nag bu dee benn boo ko tegee ca loxol kilifa ga boo ko tegee ca loxol kilifa ga ah day daal di mat sëkk daal di mat sëkk di beral nuyoo sunu sunu sunu doom nag. nee mu ngi beral nuyoo nag suñu doom. di sëriñ Pape Seck Mourtada. di sëriñ Pape Seck Mourtada. fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu. di sëriñ Madické. di sëriñ Madické. di sunu cheikh. di suñu di sunu xarit. di xaritam. di sunu lépp. di wëllëree ma di léppam. fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu. waxtaanam wii. nee wax sa waxtaan wii. ku ko déglu rek. ku ko déglu rek. sa xel dem ci Baye ma sa xel sa xel dina dem ci sëriñ Madické borom yàlla nee kon ñu ngi lay ñaanal bu baax yal na yàlla dëgëral say dëgg. yàlla yàlla dolli sa wér. yal dolli sa wér. fa uh, taalibe yëpp. nee na mbooleem soppe yëpp. soppe yëpp. xarit yëpp. xarit yëpp. wëllëre yëpp. yaa ngeen jëf. jërë ngeen tabarakallah fa tabarakallah suñu xol sedd na suñu xol sedd na suñu baay njaga keere suñu baay njaga keere bokk ak sëriñ Ousmane bokk ak sëriñ benn wayjur benn wayjur wu jigéen fa tabarakallah tabarakallah xam ni man mii nga ñoom ñoo ma yar ñoom ñoo ko yar moo xalifa keere moom ak baay xalifa keere moom moom ak xalifa keere ndax dama teel dem xomba ndax moom daa teel dem xombal nekk foofu sama papa yóbbu ma foofu jël ko yóbbu ko foofu sama maam asubal la ci maamam ko taxawu ma taxawu ko dimbali ma dimbali ko jàppale ma jàppale ko ci biir ci biir ak ci kon Baye Ndiaga kon Baye Ndiaga sunu sa njaboot sa njaboot ñu ngi lay sa wàccuwaay ñu ngi la ziyaara di la ziyaara la ñaanal di la ñaanal di sàkku yow ñaan di sàkku itam nga ñaanal ñu bu baax la ku baax nga ku yiw la ku yiw nga ku bëgg mbokk ku bëgg mbokk mbok comme ni ko sëñ Pape Seck waxee comme ni ko sëñ Pape Seck waxee foogoon ko nee na foogoon jërëjëf waaye sëriñ Ndiaga jërëjëf. fa tabaarakallah fa waaw jataay bi nag damay bañ mu gudd lool. nee jataay bi sëriñ bi nee day bañ mu gudd lool. waaw ndax sóoraale sunu baay Assane Seck. ndax nee na sunu baay Assane Seck. waaye nag euh, ñu fàttali tuuti rek. waaye nee na ñu fàttali tuuti rek. waaw donte ñaari baat la rek. donte ñaari baat la rek. ñu jëm koo fàttali. ñu jëm koo fàttali. fàttali suñu bopp. fàttali suñu bopp. ngir ku fi teew. ngir ku fi teew. yiw boo fi daan jëlee rek. yiw boo fi daan jëlee rek. boo fi jógee. boo fi jógee. am yiw wu ni toll. am na mën a am yiw wu ni toll mbaa bu ko ëpp. mbaa bu ko ëpp. mbaa bu ko ëpp. fa tabaarakallah fa tabaarakallah. suñ borom tabaaraka wa taala. sëriñ bi nee na suñu borom tabaaraka wa taala. daa wax ci alqur'an. daa wax ci alqur'anul karim. benn aaya boo xam ne. benn aaya boo xam ne. aaya bu am solo la. aaya bu am solo la. mu lamb lu bëree bëree bëri. mu lamb lu bëree bëree bëri. nga xam ne ku dégg aaya bi. nga xam ne koo xam ne dégg nga aaya bi. jëfe aaya bi. nga di fa jëfe. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. mën ngaa mën naa nekk sa sowetaas. mën naa nekk sa sa sowetaas ëllëg. yal na ko nekk. addina ak alaaxira. addina ak alaaxira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعو ادعو إلى سبيل ربك إلى سبيل ربك بالحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم وجادلهم بالتي بالتي هي هي أحسن أحسن inna rabbaka inna rabbaka huwa huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin yàlla daa wax ci alqur'an yàlla dafa wax ci alqur'an ni yow mi waare yow mi nga xam ne yaa ngi waare wala ngay waxtaan wala ngay waxtaan wala ngay woote ci diine. wala ngay nga nekk ab daa'i. maanaam ngay nga nekk ab wootekat. mu ni booy woote woote bu jëm ci sa borom. mu ni booy woote woote boo xam ne ci sa la jëm. woote ba na am xikma. woote ba na amub atte. na ànd ak xikma. xikma. xikma. dafa baax. ci waxtaan. ci waxtaan. daa baax. daa baax. ci lu mën a doon. ci lu mu mën a doon. yàlla wax na ku mu ku mu nga xam xam-xamu xikma. yàlla dafa jagleel koo xamante ni nga xam nga xam-xamu xikma. nee na jox na la yiw wu bëree bëree bëri. nee na dina la jox yiw bu bëree bëri. ومن يؤتى الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي فقد أوتي خيرا خيرا كثيرا كثيرا kon xikma kon xikma yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañ ko yàlla defal ci suñuy waxtaan ci suñuy waxtaan wal mawisatul xasana wal mawisatul xasana booy waare tam booy waare itam waare wa waare wa na nga ko rafetal na nga ko rafetal na nga ko taaral na nga ko taaral ba mu taaru ba mu taaru lool waaye bu ca ñaawal dara waaye bu ca ñaawal dara wajaadilhum billati wajaadilhum billati hiya hiya ahsan ahsan booy werenteeg nit sax booy werante ak nit sax wala ngay werenteeg sam noon wala ngay werante yàlla daa bëgg yàlla daa bëgg werante wa werante wa bañ am sos bañ a am sos nu mën a mel nu mu mel daa bëgg nga rafetal bëgg nga rafetal ko kon yàlla bu rafetee. kon yàlla bu digle rafetal kon war nañ koo mën a dégg. kon loolu te ko jëfe. inna allaha jamilun. inna allaha jamilun. yuhibbul jamala. yuhibbul jamala. inna allaha tayyibun. inna allaha fa tabaarakallahu. yàlla. yàlla. lépp lu nu digal rek. wala tujaadilu wala tujaadilu illa billati illa billati hiya hiya ahsanu kon loolu mat naa bàyyi xel bu baax kon sëriñ bi loolu nañ ko bàyyi xel bu baax waaye koo xam ni mooy koo xam ni waaye koo xam ni waaye koo xam ni saa ak yow saa la sos yoo xam ni dara du ca dëgg lu mu bëgg daal lu mu bëgg daal mooy mooy mooy dominer la fexe ba ñu lif ci ay fen ci ay fen akuk naafeq akuk naafeq loolu mat naa bàyyi loolu mat naa bàyyi xel yàlla nañ ci yàlla musal inna rabbaka inna rabbaka huwa a'lamu huwa a'lamu biman dalla biman dalla an sabilihi an sabilihi yàlla yàlla xam na xam na ka nga xam ne ka nga xam ne daa réer daa réer ba noppi ba noppi di réerale di réerale yàlla xam na. yàlla xam na. ka jub ka jub. ba noppi ba noppi. di jubale di jubale. yaakaar naa booboo gën de. booboo gën foofu yàlla nañ boole. jub ba noppi. jub ba noppi. di jubale di jubale. moo gën di réer ba noppi di réer ba من دعا من دعا إلى دلالة إلى دلالة كان كان له له من الإثم من الإثم مثل مثل أجور أجور من تبعه من تبعه لا ينقص لا ينقص ذلك ذلك من من آثارهم آثارهم شيئا شيئا من دعا من دعا إلى دلالة إلى دلالة كان كان له له من الإثم من الإثم مثل مثل آثام آثام من تبعه من تبعه لا ينقص لا ينقص ذلك ذلك من آثامهم من آثامهم شيئا شيئا يلا نينا يلا نينا képp koo xam ne képp koo xam ne yaa ngi woote yaa ngi woote te la ngay woote lépp te la ngay woote lépp ay ak réer la ak sànku tele rek ay caaxaan la ay caaxaan la am pola am pola bàkkaar la bàkkaar la bu doy sëpp bu doy sëpp bàkkaar nga ne ca ba noppi yow nga ne ca ba noppi woo ñeneen woo ñeneen ni kaay leen ni kaay leen bàkkaarlu la ci sama bàkkaar yii ña ñàkk xel ña ñàkk xel ña dof ña dof ña xamul seen bopp ña xamul seen bopp ñëpp ñëpp daw daw wut si la wut si la yow ma woote woote ba. yow ma woote woote sa bàkkaar. sa la ko yàlla lay bindal. yow la ko yàlla lay bindal. ña la wuy si. la wuy si. danañ am kenn ku ne bàkkaar bu doy ni sa bàkkaar. dinañ am kenn ku ne ñoo ñee la wuy si bu toll yow sa bas am yow mi wat. bàkkaaru kenn du wàññi. bàkkaaru kenn amul kenn ku yàlla wàññi sa bàkkaar. من اهتدى من اهتدى فإنما يهتدي فإنما يهتدي لنفسه لنفسه ومن ضل ومن ضل فإنما يدل فإنما يدل عليها عليها ولا تزر ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا وما كنا معذبين معذبين حتى حتى نبعث نبعث رسولا رسولا كرير كرير sa rek sa bopp rek nga réeral de du mbugal kenn yàlla du dul lu dafa yónnee dafa ay yonent ay téere yónnee ay téere laa yuazibu llahu أحدا إلا بإقامة الحجة إلا بإقامة الحجة عليه عليه بإرسال الرسل بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإنزال الكتب وإنزال الكتب وإنزال الكتب yàlla ne du ma mbugal kenn. yàlla nee na du mbugal kenn. lu dul. lu dul. damaa indi samay lay. damaa indi samay lay. teg teg. li doomu aadama yi mën a lay lépp li doomu aadama yi mën a lay lépp mun ta défier lay suñu borom mun ta défier mukk lay suñu borom ci moom borom daa pare ci doomu aadama bu yàgg kenn mënu koo jaaxal ëllëg kenn mënu koo jaaxal ëllëg kenn mënu koo wër ëllëg kenn mënu koo wër ëllëg pare na lépp pare na lépp yónnee nu ay yonent yónnee ay yonent yónnee nu ay téere yónnee ay téere yonent yooyu yonent yooyu leeral ñu téere yi leeral ñu téere yi la ca baax la ca baax ñu leeral ko ñu leeral ko la leeral ko ñu ko yow nag yow nag yaay seet la ca baax la nga jël ko nga topp ko wala yaay seet yaay seet la ca bon la ca bon nga jël ko nga jël ko su boobaa kenn forcé wul kenn kenn forcé wul kenn diina wul kenn kenn ku ne kenn ku ne dañ laa tànn loo dañ laa tànn loo ab dof nag ab dof nag dañuy tànn loo mbaax dañuy dañuy dañ koy tànn loo mbaax wala mbon wala mbon mu dem jël mbon la loolu ak ndof la kenn ku ne. kenn ku ne. sa bàkkaar sa bàkkaar. yaa ko moom yaa ko moom de. kon. kon nañ jël yoonu njub. nañ jël yoonu njub. yonent bi. yonent bi. Ah, sallallahu alayhi wa sallam. loolu la tànnoon loolu la tànnoon. kon ñu nit. kon ñu nit. nañ ko tànn nañ ko tànn. muy suñu njëriñ ëllëg. wa in tutiiuhu. wa in tutiiuhu. <laughs> tahtadu. ko topp jub ku ko topp jub de. ku ko fi bàyyi nag ku ko fi bàyyi nag. ah yaa ko fi ah, bàyyi yaa ko fi bàyyi te ëllëg loo gis na nga xam ni sa bopp. ku ngoy ci yàlla jub ku ngoy ci yàlla jub. wa man yaxtasim wa man yaxtasim. billaahi billaahi faqad hudiya faqad hudiya. ilaa ilaa siraatin mustaqim ku ngoy ci yàlla ku ngoy ci yàlla. jàpp diineem jàpp diineem. yàlla gindi la. yàlla dina la gindi. dina la jubal dina la jubal. dina la teg ci siraatal mustaqim dina la teg ci siraatal yoon wala jóg. ku fi bàyyi yàlla ku fi bàyyi jàpp la neen jàpp la neen. ah ah su boobaa lan la ko. xam nañ xool ba xam. leneen la nga jàpp leneen la nga jàpp. ndax mënal la ndax mënal dina la mënal dara wala déet. yàlla nee na yàlla nee na wa man adallu wa man adallu mimman ittabaa mimman ittabaa hawaahu hawaahu bi xayri hudan bi xayri hudan min allah min allah inna allah inna allah laa yahdi laa yahdi qawma qawma zaalimiina zaalimiina gis nga ku gën a réer gis nga ku gën a réer koo xam ni. koo xam ni. daa topp. daa topp bànneexu bakkanam. bànneexu bakkanam. daa topp. daa topp addina. addina daa topp foofu. daa topp foofu. akum caaxaan. akum caaxaan. yàlla nee na. yàlla nee na. kii. kii gisuma. gisuma ku ko gën a réer. ku ko gën a réer. bàyyi fi. bàyyi fi ñu borom. ñu bëgg xayri hudan min Allah. bi xayri hudan min ab tooñkat. ab tooñkat. yàlla nee na. du ma ko jubal. du ma ko jubal mukk. wallaahu wallaahu laa yahdi xawma zaalimiina yàlla nee na yàlla nee na ab kàccoor ab kàccoor ab yéefar ab yéefar du ma leen jubal du ma leen jubal wallaahu wallaahu laa yahdi xawma kaafiriina wallaahu wallaahu laa yahdi xawma faasiqiina kon kon boo nekkee ab kàccoor boo nekkee ab kàccoor ni damaa bëgg a jub na ni damaa bëgg a jub te jugoo ca te jugoo ca doo jub mukk boo nekkee ab yéefar naan damaa bëgg a jub naan damaa bëgg a jub doo fekk jugoo ca kenn fekk jugoo ca am loo xam ni am na xam ne ah. ah ay caaxaan la de ay caaxaan la ay bàyyi xel suñu bopp nañu bàyyi xel suñu bopp ak suñu borom bàyyi xel itam alquran ku bëgg alquran ku bëgg nag alquran jàpp alquran jàpp alquran da ngay jub da looy jub kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara te sa xel day dal sa yaakaar day doon zalikal kitab zalikal kitab laa rayba fii laa rayba fii hudan hudan lil muttaqin إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي, يهدي للتي, للتي هي, هي أقوى, أقوى ويبشر المؤمنين noyeetuñu de noyeetuñu de ah la ilaha illallah ku jàpp alquran jub ku jàpp alquran di nga jub ku ko topp jub ku ko topp jub ku ko bëgg jub ku ko bëgg jub kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara obligatoire waaye ku ko rek oh. baax na bi sëñ bi ca déwén ku gëm yàlla ku gëm yàlla yàlla jubal la yàlla jubal la إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيهديهم سيهديهم ربهم ربهم بإيمانهم بإيمانهم تجري من تحتها الأنهار في جنات في جنات النعيم واو yàlla nee na yàlla nee na inna lazina gaa yi nga xam ne naka gaa yi nga xam ne amanu amanu gëm nañ ma gëm nañu moom yàlla wa amilu saalihaat te ñuy jëf jëf ju baax yàlla ne dinaa leen jubal yàlla nee na ñooñu dina leen jubal obligatoire daañu dugal àjjana dina leen jëli dugal leen àjjana teral leen àjjana ju ju neex yu amul benn coono yoo xam amul benn coono dama fay nekk di xiiwu rek yàkkamti woon na jóge àdduna rek kawe ka weddi nag ka weddi nag lu mu wax ci moom lu mu wax ci moom inna lazina alimun alimun ka weddi nag ka weddi nag yàlla nee na yàlla te bu ñëwee ci man ko bëggal mu teey fa fa tabaarakallah kon yoon yi. kon yoon yi. yomb na leer na leer na. ab ab fenkat. yàlla nee na. yàlla nee na. du ma ko de. ab wedd ab weddikat. du ko jubal inna allaha. inna allaha. laa yahdi al-qawma az laa yahdi. man huwa. man kaffaarun. loolu leer na di loolu leer laa yahdi man huwa kaasibun kaasibun kaffaaru kon fenkat yi yàlla di jubal koo xam ni dangaa weddi ba pare di fen sunu maam Ibrahima sunu maam Ibrahima alayhi ba mu bëggee jub ba mu bëggee jub jub jub da koo jaral lu da koo jaral lu ngir wuti njub ngir wuti rek njub njub des koy sàkku wuti ko wuti ko jëli ko jëli ko nga mën koo am jub yombul waaye jub yombul de Ibrahima maam Ibrahima muy jot ci jub di gis njub di gis njub mu koy leer nañ xam ne lii moo di njub moo di njub sonn na lool na di wër njub ci gàttal rek falamma janna falamma janna falamma janna falamma janna alayhi laylu alayhi laylu raa kawkaban قال هذا ربي قال هذا ربي فلما أفل فلما أفل قال قال لا أحب الآفلين لا أحب الآفلين فلما رأى الشمس بازغا قال هذا daa toog ba yàgg daa toog ba yàgg moom Ibrahima guddi ñëw guddi mu gis biddiw yi mu gis biddiw yi biddiw yu bari lool biddiw yu bari lool ci asamaan te booba te booba gis na ay baayam gis na ay baayam ak i maamam di defar di defar statut yoo xam ne du tus du tus ñu teg ko ñu teg ko di ko jaamu di ko jaamu yàlla di ko wan boppam rek yàlla di ko wan boppam rek jox ko xelam jox ko ni biddiw yi li ñuy bari bari ni biddiw yi li leer leer man daal dinaa leen def yàlla man daal ñoom dinaa leen def leen yàlla ndax ñoo gën statut ndax ñoom ñoo gën statut ba mu toogee ba yàgg ba mu toogee ba yàgg biddiw yi biddiw di dem daal di dem gisatu leen gisatu leen mu ne ah mu ne ah li ma li ma dugg xaw ma ko de man mii li may bëgg a dugg xaw ma ko de ndaa ni naa xool leneen ndaa di ne man nag naa xalaat ba xool leneen فلما راى القمر فلما راى القمر باسقا باسقا قال قال هذا هذا ربي, ربي فلما افل فلما افل قال لا احب الافلين قال قال لئن لم يهديني لئن لم يهديني ربي لأكونن لأكونن من القوم من القوم الضالين mu toog ba yàgg weer wu génn. mu toog ba yàgg weer wu fekk. leer nañ. leer nañ. mu ne ah. mu ne ah. daa mel ni lii lii lii moo moo gën a leer li. daa mel ni lii nag dama jëkkoon a gis na muy leer leer lii moo ko gën a leer. te ma koo def muy sama yàlla. te ma koo def muy sama yàlla. mu dem ba yàgg. mu dem ba yàgg. weer wa suux. mu ne ah. mu ne ah. man xamaguma fan de. man xamaguma fan de. daal yàlla. soo ma jubalul. soo ma jubalul. soo ma gindiwul. soo ma gindiwul. ah ah. de. moo wax loolu. moom mooy Ibrahima moo wax loolu yàlla. làmbatu booba moom mu ngi làmbatu moo wax tamit moo wax itam inni saahibun ila rabbi sayahdini mu toog mu toog ba yàgg mu toog ba yàgg mu gis mu gis jant bi mu gis nag jant bi wala maara ashamsa baasiqan baasiqan baasiqatan qaala qaala haada rabbi rabbi هذا هذا أكبر أكبر فلما أفلت فلما أفلت قال قال يا قومي يا قومي إني إني بريء بريء مما تشركون مما تشركون mu gisaat jant bi mu gisaat jant bi nag mu ngandu lool mu ngandu lool leer lool leer lool mel noo xam ne mel noo xam ne yéeme na yéeme na lool kon naa def li yàlla mu ni kon man naa def li yàlla wax na ndax lii moo gën a ngande ndax lii moom moo gën a ngande de mu toog ba yàgg mu toog ba yàgg la defoon yàlla la mu defoon yàlla ni mes ni mes gisatu ko ko mu jàkkaarloo ak ay nitam nag mu jàkkaarloo nag ak wax ak ñoom nag yéen sama wu nit. yéen sama wu nit. bis ni ki tey. bis ni ki tey. dañ naa. dañ naa. dañ gu mat sëkk. dañ gu mat sëkk. ci li ngeen di jaamu ci li ngeen di jaamu. ndax yéen. ndax yéen gis naa ni. gis naa ni ay bokkaale kat. ay bokkaale kat ñeen. inni. inni. wajjahtu. wajjahtu wajhiya. wajhiya lillazi. lillazi fatara samaawaati. fatara samaawaati. wal ardi. wal arda. wal arda. wal arda. hanifan. hanifan. wa ma ana. wa ma ana. minal mushrikiina. man nag man nag dëgmal naa dëgmal naa jublu naa jublu ki nga xam ne nga xam ne moo bind asamaan moo bind asamaan suuf moo bind suuf ak li ci diggante bi ak li ci diggante bi ki leen bind tudd nag ki leen bind ki leen bind ki leen bind mooy suñu borom mooy suñu moo bind asamaan moo bind asamaan moo bind moo bind biddiw moo bind weer wi moo bind weer wi moo bind jant bi mu ne nag man. mu ne nag man. moo bind nit ñi. moo bind nit ñi. moo leen di moo leen di rey. moo leen di rey. moo leen di dekkal. moo leen di dekkali. kon nam ko waxee rek. kon nam ko waxee rek. allahu lazi. allahu lazi. xalaqakum. xalaqakum. suma rasaqakum. suma rasaqakum. suma yumitukum. suma yumitukum. suma yuxyikum. suma yuxyikum. hal. hal. min surakaaikum. min surakaaikum. man yafaal. man yafaal. min zaalikum. min zaalikum. min shay'in. min shay'in. subhaanahu. subhaanahu. wa taala. wa taala. amma yushrikuuna. amma yushrikuuna. yàlla moo leen bind. yàlla moo leen di wërsëgal. moo di wërsëgal. moo di rey. moo leen di rey. moo leen di dekkal. moo leen di dekkal. tudd naa sellam. tudd naa sellam nag. sell gu mat sëkk. sell gu ci la neen. ci la neen. lu boole. lu ñuy boole. ak yàlla. lu mën a doon lu mu. lu lu mu. ko gën a sell. kon ñi ngeen may bokkaaleel. kon ñi ndax ñoom. ndax ñoom kenn ci ñoom. kenn ci ñoom mën na lii. mën na lii. ku ko ci mën na wax. ku ko ci mën na wax. kenn mënu ko. kenn mënu ko. yàlla yàlla samp kon yàlla moom moo samp am ndëndëm. kon Ibrahima noonu la mujjee. kon Ibrahima kon jub kon jub. tax laxdar yu naan. mooy moo tax laxdar yi di wax naan. naa toog rek. naa toog rek. ni yàcc. ni yàcc ni yasar. ni yasar ba yàlla jubal ma ba yàlla jubal ma rek. su ma jubalee ma jub su ma jubalee ma jub. loolu ab dafa koy wax. loolu ab dafa koy wax. ku ñàkk a xam dara koy wax. ku ñàkk a xam dara moo koy wax. ku amul gàcce ku amul gàcce. mooy taxaw mooy taxaw di wax loolu. nit ki da ngay góorgóorlu nit ki da ngay góorgóorlu di jéem dara. dem di dem. ku demul doo àgg. ku demul doo àgg de. toog fi toog rek. ko toog rek na na naa dem. naan naa dem. te doo def dara. doo dem fenn. fa tabaarakallah fa bi sallallahu alayhi wa sallam. yonent Muhammad sallallahu alayhi wa yàlla ko wax yàlla moo ko wax walan tarda walan tarda ankal ankal yahuudu yahuudu wala nasaara wala nasaara xatta tattabia xatta tattabia millatahum millatahum qul qul inna hudallahi inna hudallahi huwa alhuda huwa alhuda ولا إن اتبعت ولا إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير yahuud yi yahuud yi duñ la gërëm mukk duñ la lu dul lu dul da ngaa bàyyi sa diine da ngaa bàyyi dem fekk leen dem fekk leen ci seen diine te newuñu ci dara nekkuñ ci dara nekkuñu ci dara ñoom ñaar ñoom ñaar dañuy kolo dañuy xuloo wala euh, euh, euh, waqaalatil yahuud ليست النصارى ليست النصارى على شيء على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود ليست اليهود على شيء على شيء kon ñoom kon ñoom nekkuñu ci dara ku nekkul ci diine ku nekkul ci diine yàlla ji diine yàlla ji diine yàlla ji mu bind ñu mu bind ñu indi ñu fi indi ñu fi indi ñu diine indi ñu diine ñu topp ko ñu ngir ñu topp ko jaamu ko jaamu ko bokk fi ñu bàyyi ko fi di jàpp leneen di jàpp leneen doo jàpp lu mu mën a doon lu dul li jàppoo dara ko nag dànkaafu ko nag. ni mu daal koy dànkaafu nag. bis boo ko defee. bis boo defee. ba nga ñëw ci man. ginnaaw ba nga ba ma la bu dëgg. xam-xam bu dëgg. xam-xam bu wóor kon. kon. da nga xam ne. dina xam sa yoon nekku ci maa nekkoon sa kilifa maa nekkoon sa kilifa. waaye bisub keroog waaye bisub keroog. laay dégagé la la déchargé la déchargé wu. laay dégagé wu laay dégagé wu. sama responsabilité sama responsabilité. ma doon sa kilifa. ngir ma doon sa kilifa ci ku ma doon sa kilifa. duutu ma doon sa kilifa duutu ma doon sa kilifa. ndimb ku ne xam ne yàlla dimbali na yonent bi. ku ne xam ne ni yàlla dimbali na yonent yàlla Muhammad. mu ne ko boo ko defee mu ne ko boo ko defee. duutu ma la dimbali ci dara. kon loolu. ñun ñun. ñoo tax ñoo tax. aaya bi di wax ak ñun. am njàngale la rek am njàngale la rek. waaye yonent bi moom. waaye bu yàgg. maasum moom jub na yàlla dimbali na ko. maasum maasum. fa tabaarakallah. Alaaji Ngagne Demba Sarr. Alaaji Ngagne Demba Sarr. porte parole xalif. porte parole xalifa bi. Baye Serigne Assane Seck. Baye loo ko digaloon. loo ko digaloon. ci gàmm ci gàmm def na lépp def na lépp. ba ko yónnee. ba ko yónnee. mu ñëw ci kër gii mu ñëw ci kër gii. ànd ak mbooloo mu bari ànd ak mbooloo mu bari. la war ca ñoom. la lépp moo ko def. moo may bëgg a def. muy bëgg a def. mu ni ko bul def. préparé naa lépp naa lépp. def appel bu am solo. defal nag ci sa tur ci sa tur. ci sa ndigal ci sa ndigal. loolu nag. loolu nag. su bis bi taaroo nii. ma bis ko doon defal. yow moom ko doon defal. ñun ñi ñun ñi fi boo toogee. boo toogee. appel ba mu def. appel ba mu def. woo addina yëpp waaye ñëpp ñëw. waaye ñëpp nañu. ñëpp wuy si nañu. neewoon na bëgg na Baye Assane bëgg na. nee bu ñëwee Mbour bu ñëwee Mbour. dafay fekk ñëpp. dafay fekk ñëpp. fekk nga alaaji ngañ. alaaji ngañ. sant nañ la. sant nañ la. gërëm nañ la gërëm nañ la. jaajëfal nañ la jaajëfal nañ la. yow sag nga. yow sag nga. ci kër maam Ahmad. ci maam Ahmad man nga xel. rafet nga xel. rafet nga xalaat. rafet nga xalaat. tabe nga. tabe nga. man loolu nag loolu nag moo am solo moo am solo nit nit day am njëriñ day am njëriñ nit ko amul njëriñ nit ko amul njëriñ ko dara kenn doyewu ko dara waaye ku bëri njëriñ waaye ku bëri njëriñ mooy alaaji ngañ saar saar yaakaar naa yaakaar naa foofu baax naa yem de. foofu baax naa yem de waaye boo jàllaatoon mu gën a neex. ndax daa des. ndax daa des. sama baay. sama baay. sama kilifa sama kilifa. sama xarit sama xarit. sama soppe sama soppe. sama lépp sama lépp. te moom moom lépp. te moom moom lépp. jëlaat lépp. jëlaat lépp. joxaat ko joxaat ko. moo xam nag. moo xam nag. fa muy jaar fa muy jaar. Ah, ba mottali li des ba mottali li des lépp. sant naa ñëpp sant naa ñëpp sëriñ bi nee na sant na ñëpp. gërëm naa ñëpp gërëm na ñëpp. jaajëfal naa ñëpp jaajëfal na ñëpp. xolam sedd na kontaan na booba ba tey Ousseynou Ndiaye mook Omar Tall ñu ngi ci ñu ngi ci mbir mi rek di yëngu di présenté ñi teew ñëpp Serigne Thion booba ba tey mu ngi cant mu ngi cant mu ngi cant ñëpp ñëpp ñëpp sëñ Idrissa booba tey mu ngi sant ñëpp te loolu moo leen ko sant moo leen ko sant nekkaat fi nag jaaraat di fa jaaraat du ko jar du ko jar salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullahi wa Seexu Canaba Baye Serigne jataay bii nono may na nga toogee jataay leeru may na la nga toogee jataay bi ab tudd may na nga toogee jataay bi sa ñaari maqaamay baay yi mu doon ne ci baayam maam Ahmadu Ndaak Seck may na sa ñaari wilaayay baay yi mu doon ne ci sa maam maam Ahmadu may na bu yii yëpp sa pas-pasu bopp may na nga toogee jataay sa fulla may na la nga toogee jataay bi saw fut may na la nga toogee jataay bi dëgg sa làmbatu fu ba daj fu ne ba toogee fu may na la nga toogee jataay bi bàyyi Serigne Assane Seck Seex Canaba yàlla yàlla yàggal sa jataay bii mbuur gii ñu toog fii nga fëggewoon sa bopp fëgg fi sa loxo fëgg fi sa pas jëlaat tariixa bi sangaat ko solalaat ko mbubb wan ko adduna bi yëpp mbuur gii nga ko defee wat bàyyi seexu Canaba bàyyi sëriñ Asan nee na mi nuyu islam bi yëpp bu ñu ko nuyoo nuyu nañu ñëpp waaye ñu jeexee ci maam ñaaxa Seck ak soxna Araman Seck wàcce ko ci seex jibrilu sekk borom yaaram ko ci sëriñ Mouhamad sekk roqaya wàcce ko ci kaw sëriñ Ibrahima sekk bu bàyyi sëriñ Taala Xaar ñu làmb bi sëriñ bi di ñëw dafa jox yit ci bis bi moom jox na pas-pas bis bi jox na ko xolam jox na ko jëmmam jox na ko yitteem nit nag loolu dong la te yéen ñi ma ko doon defal mat na sëkk na sëkk sëriñ a jërëjëf sëriñ Abdou Wahab Seck Saade jërëjëf professeur Alaaji Souleymane Dia jërëjëf président Abdou Ñingi jërëjëf Aliou Ndoye jërëjëf sëñ Ibrahima Dieng jërëjëf ak doomi boppam yi mu àndal te ñëpp nag ay doomi seexu Canaba lañu waaye ki fi toogal ñëpp muy Serigne Madiodia Seck Serigne Moussa Seck rakkam Serigne Bay Seck seeni Tayib ak seeni rakkam ñi ñu ko seqal ak jigéen kon bàyyi Serigne Assane bàyyiwu fa kenn bi muy ñëw Serigne fa tabarakallahu ñu jël bopp yoon wi jiital ci doomam muy Baye Jibrilu Seck borom yaaram mi toog mënta dem fenn te àndut ak moom wéccalam la waxandoom la jëfandoom la Baye Jibrilu Seck jërëjëf. nee na mi ngi nuyu doomam Serigne Momar Talla Seck Ousmane ak mboolem njabootu Baye Seydina Ousmane Diop Serigne Mor Ousmane yàlla na jataay bi yàgg. yow sagal nga barab bii sagal nga sa baay Seydina sagal nga ay wëllëreem sagal nga ay taalibeem sagal nga ñu sopp baay Ousmane ngir yàlla jëmmam ak bas basam nga ànd koog sa rakk yu baax yu yaru yii Serigne Makhtar mii lim doon defal baayam loolu la defal léegi mooy ngay wax mu jug jël micro yi téye ko toog ci sëriñ Maxtaar jërëjëf sëriñ Alfa Mamadou Seck ngii bàyyi lépp ak liggéey ba ko sëriñ Maxtaar Thierno Basir mi ci biir wóolu leen ci liggéey bi sëriñ Ibrahima ngi nii toog ngeen di ay magam mu toll ci liggéey ak jàng ak tarbiya bàyyi leen ak lépp ñoo ngi nuyu soxna Astou Balla Seck bi ngeen nekkee ci daara ji di jàng amu leen jot genn gudul jàng soxna Astou Balla leen toogal ci seen baay téye seen baay seen baay wan ko lépp bi ngeen ñëwee mu nekk seen mag jàll ca ginnaaw ne leen doxal leen lépp gi kon soxna Astou Balla Seck am na ngërëm am na jaajëf ñoo ngi koy nuyu bu baax ñoo koy ziyaara ñoo koy ndokkeel bu baax ak mboolem rakkam yi mu ko séqal ñan doon décoré léegi àndoon ak Baye Seydina Ousmane te Baye Ousmane musu leen a wor musu ñoo wor Baye Ousmane ànd ngir yàlla ak barab bi ak diine ak ngor Baye Serigne baa ngi leen di nuyu daayira bu ndaw bi te taxawal lii Serigne Cekkandoo yi ak ñi nga ko séqal Serigne baa leen di nuyu soxna yi nekk ci kër gi muy soxna ma ci taal di suñu xarit soxna say jiite di suñu xarit soxna Ndioba Ndiaye di suñu xarit soxna Fat Sarr di suñu xarit ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax autorité administrative yi fi jógee yëpp sëriñ baa leen di nuyu bu baax sama nijaay sëriñ Alpha Ba sëriñ baa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara bu baax njabootu Baye Alpha Mamadou Seck sëriñ Seexu Alpha nag tey tey nag moom dañ koo poñe sëñ Seexu da ngaa sama nijaay sañ sa nga sama nijaay fonk na bis bi tey ku xool ni mu sañsee ak mbaxana mi ah ak couleur bi duñ sol niñ ko te yàkkamtiwul benn yoon ba pare kaala bu tëccuwee ah waaye sama nijaay sëñ Seexu fonk na bis bi de Seexu yaa ngi yàlla sàmm bi sa baay maam Momar Talla Seck góor gu mag Baye Mamadou Baye Mamadou njabootam gépp njabootam gépp a ngi fi Serigne Daouda Seck mu baax mu yaru mi mu nga nële toogal fi xalifa bi. toogal fi xalifa bi ak Serigne Abdoul Aziz. yaru benn bàyyam lool. ci dal ak tey gi. Serigne Daouda Seck jërëjëf. Mam Momar Talla Seck bi góor ko mag borom ñaari jumaa yi. doomam yëpp kenn mënu maam wa taala mbooleem doom ju am ku ne tànnal na la néegu ndey te néegu ndey ba mu la tànnal doon néegu ndey bu mat sëkk waaye ñoom ba ñu màggee ba donnu seen baay ba mel ni seen baay néegu ndey ba leen seen baay tànnaloon feef nañ ko dell moo aye tey baayam tànnal ko néegu ndey baayam tànnal ko néegu ndey maam yaa xarit maam maam yaa xarit maam daa am doom bu jigéen dafa am doom bu jigéen walla dafa am rakk ju jigéen bu mu bokkal benn wayjur bu mu bokkal te bokk nu baay mooy Aminata Lo jox ko maam borom Touba mu jox ko maam mu taawloo ca ak Serigne Bara mu amaat doom tudde ko doomu ndeyam booba Aminata Loo Jóob jox ko Serigne Modou Moustapha mu am ci Serigne Aliou ak Serigne Axma Mbacké Serigne Aliou jur Serigne Cheikh Aliou moo fii di doomu ndeyu Serigne Ousmane Mame Momar Talla. Mame Momar Talla Seck góor gu mag. jële kër yaaba ñett la fa jëlee jël fa kenn day jël bi dama ni Mame Momar Talla Seck ñett la jële kër yaaba ñett la fa yóbbu jële fa kenn ñoo benn ak maam Ahmadou Ndaak Seck ñoo bokk benn ndey ñoo bokk benn baay maam Makam am doom tudde ko maam Ahmadou Ndaak muy ëmmëri Makam mu yar ko ba mu yaru mu ne ko lu nekk ci yow def ko ci sama doom ji maam ëmmëri Makam mag ba war a yor kër maam Ahmadou Ndaak Seck jël doomam muy maam Aminta Seck jox ko mu am ca maam Coro Seck ñu jox ko Serigne Mamadou mu jur ci Serigne Madické mu jur Pape Mourtada Madické mii toog Pape Mouhamadou Mourtada Madické sa maamam lay nuyu Seck maam Amari maam Ahmadou Amari Makan maam Amari Makan wàcc maam Mamar Talla Seck góor gu mag sa baay jox ko maam Balla mu jur ca maam Ibrahima Diop ak maam Tidja maam Ibrahima Diop maam Sëñ Canaba Ibrahima Seck bàyyi Seex Jibrilu Seck jox ko yaa mu am ca Ayaaba Ibrahima Mayib Amadou Makhtar ak Baye Issa Diop suñu jàpp mu baax mi ak soxna Astu kon dafa yóbbu kon dafa yóbbu maam Momar Talla Seck góor gu mu ak gore ak a baax ak a yiw maam ñàkkul saar fu ma fu ma yóbbu sama rak yóbbu sama doom dinaa fa yóbbu sa doom su ëllëgee ñu sëkk diine ji kenn bañ a xeeb sa morom mu jël maam Fat Nges mu meññ Seydina Ibrahima Seck mu dem a Sarr jël fa bàjjal Xarjata Sarr mu meññ ca Mamadi ca Xarjata ak maam Souleymane Seck mu jur Pape Mourtada ak May Seck mu jël rakkam bi bàjjal naa yóbbu kër yaaba jox ko maam Balla mu am ca Amadou Maxtaar ak Sakoti ak Alpha ak Ami Diop kon maam Assou Balla mi meñ ñu Baye ay doomi baayam maam Diakoul Sarr moo jur seen kon mag ñi nii la mag ñi daan na de mu rafet loolu mu jël maam may sekk mi nga xam ni maam Momar Talla Seck ko jur jox ko Baye Talla Diop mi bokk ak maam Asubal la ak baay maam Bal jur leen maam Asu maam Momar Talla Seck jël maam Asubal la Diop kon Njoobeen nit yàlla yëpp gën nañ jël sëriñ Mor jërëjëf. nga dem Kokki nga dem Kokki. sëriñ Kokki sëriñ Kokki. Ndiaga Issa Diop dafa am doom bu jigéen. tudde ko soxna soxna Penda Buya Diop. tudde ko soxna Penda Buya Diop. mu yar ko ba mu màgg mu yar ko ba mu màgg. mu def ci moom yar. yóbbu ko Fuuta. ca kër Wura Mahdiw. ca kër maami Alpha Ba mii. Baye Assane mu jox ko Seydina Limaamul Mahdi mu jur ca maam Ibra Penda bu yóbbu baax Ibra Penda mag am soxna jël soxna sa am ca bane tudde ko yaayam muy Penda bu yóbbu mu mag mën a kër ñu jox ko Serigne Touba mu am ca soxna Fatim Mbacke. maam borom Touba bi mu ci maam borom Jaara mu woo te ñoo bokk ndey baay. mu ne ko soxna si soxna si leer la. dama dama am nattu. dama amut dem bu jur ko mu jox ko maam Mor Jaara. kon njóobeen sa baay. Baay Assane tànnal na baay Ousmane néegu ndey. mu tànnal ko mu tànnal ko boppam. mu tànnal ko boppam. muy Mame Momar Talla Seck. borom ñaari jumaay jumaay Thiénaba ak jumaay Wuro Mahdi. borom ñaari leer borom ñaari wilaya mu meññ Seydina Ousmane. Baye Assane sa baay Mame Momar Talla Seck Seck Thiénaba góor gu mag. ñaari wilaya ko ak wilaaya kasbiya wilaaya boo xam ni la ko jox ci biiru ndeyam fa la ko fekk sa baay niroog yonent jur yonent bi Aminata ko jur Abdallah yaay baayam maam Omar Taala yonent bi Abdallah yaay baayam ñu bokk aw turandoo moo tax comme mos a jox danaan la yonent bi boo demee la laaj ku la ko jox nee ko kooku mooy Cheikh Thiénaba a Talla Seck moo meññ Seydina Ousmane waaw léegi kuy Baye Ousmane la fukki minute ma wax ko tëj sëñ bi am na ay kaddu kaddu yi ñaan ak barke ak xéewal mu xëpp leen ko ñaanalaat barke barab bi ñaanalaat barab bi ak njaboot bi nga xam ne ñun ñëpp ci sa. autorité lañ lañ lañ ci lañ ne ci lañ ne waaye Ousmane bàyyi Seydina Ousmane doon wax ni dañuy wax barru mooy bàyyam da koo baaxal ci jëmm mooy bàyyam da koo baaxal ci jëmmam nampatal ko ci jëmmam nampatal ko ci jëmmam nampatal ko maamam ba bàyyi Ousmane di moom dañ ni naanukaay bi benn la ni ñuy naanee يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعد في الأكل ndox mi benn ndox la waaye boo ci roosee su ñoree lii day saf suukar lii weex lii xay ci benn ndox mi nga ko roosee ak kon sabaay ni mu doon naanee ci Seydina Cheikh ci man Ahmadou Ndak ci Seydina Limamou Mahdi naanin wax baax na moo indi résultat bii ñu ne bàyyi Seydina Ousmane naan gi nga naan foo ko jëme mu ne waarisu Muhammadiya ci ëttu yonent bi laa ko jëm fan nga bay jaare mu ne ci alquranul karim dañ bàyyi Seydina Ousmane li ko bàyyam jox soona alal ardi hawnan ndànk ak dal rek ki xam bu mu wax ak ki xamul bu mu wax ak ki xamul ki xam li xew ki xam li xew bu mu wax ak bu mu wax ak ki xamul bu mu wax ak ki xamul lu xew nit buñ ko dee yar ki yaruwu sa tax bi ñu di ko yar waaye bu fekkee dañ laa yar nga daje ci yaru xuloo moom xeexal moom yar bi la doon yar amul njariñ wa iza xaatabahum al jaahiluuna xaalu salaaman ndànk ndànk kon mag ñi kon mag ñi loolu lañ fi ne lii lañ fi nekkee woon Baye Ousmane Baye Seydina Ousmane xol bu baax la yoroon nit du wet di xolam yàlla dafa wax ci alquran ci suuratu niñ mi maa kasabal fuaadu maa raa maa kasaba fuaadu nabi wa maa ankara alladi raahu bi basarihi nit du weddi xolam la ko yàllay wan ci jaamam ak ci boppam Baye Ousmane ko rafet xol la woon Baye Serigne Thiénaba mi ngi nuyu ñëpp Baye Serigne Assane Seck jërëjëf jataay bi metti na waaye sañoo jug ndax ndono daa metti li ngay day sañoo koo ŋàndi ndax yàlla la ko teg sàkku woo ko nga yërëm sa njaboot gi loolu su nee sax nga ni damaa bañ fa ñu jëm ñooñu mer baa mer bu ma yëblee ma ne bàyyi asam duñ mer mu ne jooja nañ dem rek nañ dem rek la ma fa war ma wax ko te def ko waaye fii nga toll nii man ngay yeble waaye sañoo ko ndax nit suñ ko day sàmmal mbir te ña ko koy sàmmal day ne ci seen xam li ñuy jëf xam li ñuy wax Serigne Mor ñoo lay seedeel ni sa kër gële Adama Seck mu sëriñ Talla Xaar fa war def na jënd na nag yóbbu fa. président Abdou Gningue jërëjëf Aliou Ndoye jërëjëf sëñ Ibrahima Dieng jërëjëf ak doomi boppam yi mu àndal te ñëpp nag ay doomi Seexu Canaba lañu waaye ñu fi toogal ñëpp muy Serigne Mandione Seck Serigne Moussa Seck rakkam Serigne Mbaye Seck Seydi Tayib ak seeni rakkam ñi ñu ko seqal ak seeni jigéen kon bàyyi Serigne Assane bàyyiwu fa kenn bi muy ñëw Serigne Jibrilu fa tabarakallahu ñu jël bopp yoon wi jiital ci doomam muy Baye Jibrilu Seck borom yaaram mi mënta dem fenn te àndut ak moom wéttalam la waxandoom la jëfandoom la bàyyi bi seet jërëjëf nee na mi ngi nuyu doomam Serigne Momar Talla Seck Ousmane ak mboolem njabootu Baye Seydina Ousmane gépp Serigne Mor Ousmane yàlla na jotaay bi yàgg yow sagal nga barab bii sagal nga sa Baye Seydina Ousmane. sagal nga ay wëllëreem sagal nga ay taalibeem sagal nga ñi sopp Baay Ousmane ngir yàlla jëmmam ak pas-pasam nga ànd ko sa rakk yu baax yu yaru yii Serigne Makhtar mii lim doon defal baayam loolu la la defal léegi mooy ngay wax mu jug jël micro yi téye ko toog ci say tànk Serigne Makhtar jërëjëf Serigne Alpha Mamadou Seck njii bàyyi lépp. ak liggéey ba ko sëñ Maxtaar jar na Basir mi ngi ci biir wóolu leen ci liggéey bi Serigne Ibrahima ngi nii toog ngeen di ay magam mu toll ci liggéey ak jàng ak tarbiya bàyyi leen ak ñoo ngi nuyu soxna Astou Balla Seck bi ngeen nekkee ci daara ji di jàng amul leen jot genn ku dul soxna Astou Balla leen toogal ci seen baay téye seen baay seen baay woon ko lépp bi ñëwee mu nekk seen mag jàll ca ginnaaw ne leen doxal leen lépp ngi noonu kon soxna Astou Balla Seck am na ngërëm am na jaajëf ñoo koy nuyu bu baax ñoo koy ziyaara ñoo koy ndokkeel bu baax ak mboolem rakkam yi mu ko sekkal ñun doon décorer léegi. àndoon ak Baye Seydina Ousmane te Baye Ousmane mosu leen a wor mosu wor Baye Ousmane ànd na ngir yàlla ak barab bi ak diine ak ngor Baye Serigne baa ngi leen di nuyu daayira bu ndaw bi te taxawal lii Serigne cekkandoo yi ak ñi nga ko seqal Serigne baa ngi leen di nuyu soxna yi nekk ci gi muy soxna ma ci taal. di suñu xarit soxna Sey Jiite di suñu xarit soxna Ndioba Ndiaye di suñu xarit soxna Fat Sarr di suñu xarit ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax autorité administrative yi fi jógee yëpp Serigne baa ngi leen di nuyu bu baax sama nijaay Serigne Alpha Ba Serigne baa ngi leen nuyu bu baax di la ziara bu baax. njabootu Baye Alpha Mamadou Seck Serigne Seexu Alpha nag tey tey nag moom dañ koo poñi sëñ Seexu da ngaa sama nijaay sañ sa sama nijaay fonk na bis bi tey ko xool ni mu sañsee ak mi ah ak couleur bi bi sol niñ ko tànnee te yàkkamtiwul benn yoon ba pare kaala bu tàcciwee ah waaye sama nijaay sëñ Seexu fonk na bis bi bàyyi seexu yàlla na yàlla saw sëriñ bi sa baay maam Momar Talla Seck góor bu mag baay Mamadou njabootam gépp a ngi fi sëriñ Daouda Seck mu baax mu yaru mi mu nga nële toogal fi xalifam sëriñ Alpha Mamadou ak sëriñ Abdoul Aziz yaru lool doon nu bàyyam lool ci dal gi ak tey gi sëriñ jërëjëf mam Momar Taala Seck xutbu bi góor gu mag borom ñaari jumaa doomam yëpp kenn mënu cee fay mam Momar Taala Seck mam Momar Taala doom ju ku ne tànnal na la néegu ndey te néegu ndey bam la tànnal doon néegu ndey bu mat sëkk waaye ñoom ba ñu màggee ba donnu seen baay ba mel ni seen baay néegu ndey ba leen seen baay tànnaloon feef nañ ko dell bàyyi Seydina Ousmane nag borom tànt bi moo aye tey baayam tànnal ko néegu ndey maam yaa ba xëri maam dafa am doom bu jigéen wala dafa am rakk ju jigéen bu mu bokkal wenn wayjur wu jigéen te bokk nu baay muy Aminata Lo mu jox ko maam borom Touba mu taaloo ca Serigne Modou Moustapha Mbacké ak Serigne Bara mu amaat doom tudde ko doomu ndeyam booba Aminata Loo jox ko Serigne Modou Moustapha mu am ci Serigne Aliou Mbacke ak Serigne Ahma Mbacke Serigne Aliou jur Serigne Cheikh Aliou moo daan toog fii di doomu ndeyu Serigne Dame Ousmane maam Momar Talla Seck góor gu mag jële Kariya Ba ñett la fa jële jël fa wax bi. dama ni Mame Momar Talla Seck ñett la kër yaaba ñett la fa yóbbu jële fa kenn njoobeen di wilaaya di ndono di kërug deret leer Mame Makan Seck ak Mame Ahmadou Ndak benn ndey ñoo benn baay Mame Makan am doom tudde ko maam Ahmadou Ndak muy ëmmëri makan mu yar ko ba mu yaru mu ne ko lu nekk ci yow def ko ci sama doom ji yamsuuna yamsuuna lum ca teg lan la ca teg fan la aaya bi mujjee fan la aaya bi mujjee xëw nan xëw nan mooy bi bi sakinatin wa ibadu rahman alladina yamsuuna ala al ardi xëw nan ndànk ndànk ak dal ak dal rek ki xam ki xam bu mu wax ak ki xamul bu mu wax ak ki xamul ki xam li xew ki xam li xew mu wax ak bu mu wax ak ki mu wax ak ki xamut lu xew nit suñ ko dee yar nit buñ ko dee yar ki yar wut a tax ki ñu di ko yar ñu di ko yar wala suñ la yaree yar nga dajee ki ni yarul nga dajee ki ni moom xuloog moom yar bi la doon yar la doon yar amul njëriñ amul njëriñ bi wa isa xaatabahu wa isa xaatabahu aljaahiluuna xaalu salaaman ndànk ndànk kon mag ñi kon mag ñi loolu lañ fi nekke lii lañ fi nekke woon Baye Ousmane Baye Seydina Ousmane xol bu baax la yoroon la yoroon nit nit du weddi xolam du weddi xolam yàlla dafa wax ci alquran ci alquran ci suuratu naj mi ci maa kasabal fuaadu maa raa ما كذب ما adu فؤاد النبي فؤاد النبي وما أنكر وما أنكر الذي رآه الذي رآه ببصره ببصره نت نت du weddi xolam du weddi xolam la ko yàlla yi wan ko yàlla yi wan ci jaamam ak ci boppam ak ci boppam Baye Ousmane Baye Ousmane rafet xol la woon Baye Serigne Thiénaba ngi nuyu ñëpp Baye Serigne mi ngi nuyu ñëpp Baye Serigne Assane jërëjëf Baye Serigne Assane Seck jërëjëf jataay bi metti na jataay bi metti na wante sañoo jóg waaye sañoo jóg ndax ndono ndax ndono dafa metti daa metti li ngay daj li ngay daj sañoo koo ŋaang sañoo koo ŋaang di ndax yàllaa la ko ndax yàllaa la ko teg sàkkuwoo ko sàkkuwoo ko nga yërëm sa njaboot nga yërëm sa njaboot ji lool su nee yebleel sax su nee yebleel sax nga ni damaa bañ fa ñu jëm nga ni damaa bañ fa ñu jëm ñooña mer baa duñu mer baa duñu mer bu ma yeblee man ko duñu ma ni Baye Assane duñ mer mu ne jooja nañ fa bu dem mu ne jooja nañ dem rek nañ dem rek nañ dem rek la ma fa war ma wax ko te def ko waaye fii nga toll nii mën nga yeble waaye sañoo ko ndax nit suñ ko dee sàmmal mbir te ña ko koy sàmmal day na ci seen wet xam li ñuy jëf xam li ñuy wax sëriñ Mor ñoo ngi lay seedeel ni la sa kër gële sa kër gële sëriñ aadama sekk mu sëriñ Taala Xaar lu ko fa war def na ko jënd na nag yóbbu fa jënd na nag yóbbu fa jënd boisson jënd boisson yóbbu fa jënd ndox yóbbu jënd ndox yóbbu fa jënd fur yu yóbbu fa jënd mburu yi ñuy ndékkee jënd sax mburu ma ñuy ndékkee teseer lool teseer lool yóbbu fa def fa ab baas def fa baas ñi waroon a ñëw ñi waroon a ñëw añ seeg yow ñépp mu wàcce la ko man na kër ga man na kër ga jarbaat laa fa sama yaaya fa ne ma fay jarbaat ñu ngi koy sant kon ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ñoo ngi la koy seedeel sëñ Adama jërëjëf sëriñ Adama Seck jërëjëf nit boo bokkeek moom nit boo bokkeek moom mbir te mbir may rafet soo toogee ci jataay wax ko ña nga ko doon jëflanteel dara néew kon ñi ngi sant ñëpp maa ngi sant nag soxna Mbenoy Seck yaay sëriñ ma dikke soxna Mbenoy soxna Mbenoy ak soxna Faama ak soxna Faama soxna Asta soxna Asta soxna Astu Balla soxna Astu Balla ak ñu ko seqal soxna Fatou Seck ak ñu ko seqal. ah soxna Miliane. soxna Miliane. ndax seexoog may xool rek ndax si may xool rek. soxna Miliane soxna Miliane. ñoom ñëpp ñoom ñëpp. dañoo bëgg seen baay. dañoo bëgg seen baay. ngañ sëñ seexoon nee na nga wax umpañ. sama umpañ Miliane. kon boog sama umpañ Miliane. dañoo bëgg seen baay. ñoom dañoo bëgg seen i baay. fonk seen baay. dañoo fonk seen baay Seydina Ousmane. taxawu seen baay dañoo taxawu seen baay. ñuy jaar nii léegi. bi ñuy jaar nii léegi. la ma sëñ Mor ne ma. la ma sëñ moor ne ma. kilifa yaa ngi romb. kilifa yi ñu ngi nii di na nga leen bàyyi na nga leen bàyyi xel de. ma xoolee waaye bi ma xoolee. gis soxna Mbenoy gis soxna Mbenoy. sama xol bi daal sama xol nag wax dëgg yàlla sedd na nag. kon bàyyi sëriñ bi. ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm. dama koo wax léegi. dama koo wax léegi. ne ko gàmmu mbuur gi. loo ma ciy jox yow Baye Assane lan ko may jox ci gàmmu mbuur gi. gàmmu mbuur gi de mu ne ma gàmmu mbuur gi de jox naa la ko bu yàgg jox naa la ko bu yàgg yàgg yow mii ma la jox yow ngañ saar nooy mii ma la jox waaw doyul waaw daa doyul yem ci waaw loo bëgg leneen ah yow ngañ saar loo bëgg ma joxaat la ko yow daal jox naa la mbenoo yem ci yàlla yàlla def jàmm sëriñ baa ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp gàmmu sëriñ Canaba Ibrahima gàmmu sëriñ Canaba Seydina Ibrahima Seck sëriñ bi joxe na ci ndigal la 11 mai la muy la mai lañ ko jàpp bay sëñ bi nee na sëriñ bi nee na sëriñ Ibrahima Seck sëriñ Ibrahima Seck moo xewle te nee na neex naa wooteel te it Seydina Ibrahima Seck daa neex a wooteel ndax kër gu ne ndax kër gu ne ma nga fa loxoo ma nga fa mbirama nga fa nga fa gàmmuk Thiénaba Kajoor gàmmuk Thiénaba Kajoor sëriñ ma dikke Seck sëriñ ma dikke Seck borom yàlla nee le 10 février la. le 10 la. nee na gàmm googu. sëriñ bi nee na gàmm googu. gàmmoom la. gàmmoom la. neex naa woote neex naa woote nag. ku ko fa dëgg. ndax ku ko fa dëgg. dina ko ni massa dina ko ni massa. ndax sëtam. ndax sëtam. ak xaritam. xaritam ak seexam. seexam moo koy woote. moo koy woote muy sëriñ ma Mouhamadou Mourtada Madické. gàmmu Gosaas. gàmmu Gosaas. Baye Sada. Baye sëriñ saada Seck. bokk ak Baye mii. bokk ak Baye mii lépp. lépp mu jox ndigal ba sëriñ Abdou Wahab jox ndigal sëriñ Abdou Wahab ak magam sëriñ Ibrahima ak magam sëriñ Ibrahima ak seen xalifa baay xalifa baay. maam Momar Talla di maam Momar Talla Seck. le 27 janvier le 27 janvier la. waaye sëriñ bi nee na sëriñ bi nee na. mi ngi ciy jox ñëpp mi ngi ciy jox ñëpp ndigal te di leen ci soññ. sëñ Modou Mbaye sëriñ Modou Mbaye bu Baye Ousmane bu Baye Ousmane indi na fi teraanga yu mat sëkk indi na fi teraanga yu mat sëkk sëriñ Mor jërëjëf sëriñ Mor jërëjëf ñëpp kontaan nañ ci yow ci yow sa baay sa baay melokaan wi ko yàlla melaloon melokaan wi ko yàlla melaloon toog nga fa jëmmal toog nga fi jëmmal nga ko soo toogee boo toogee mu mat sëkk soo waxee mu mat sëkk soo waxee mu mat sëkk soo jëfee mu mat sëkk yal na yàlla sàmmal nu la suñuy rakk suñuy doom di bay Bakar Sarr toogal fi xalifa bi toogal fi xalifa bi Baye Khalifa Sarr ñëw na ba dem ak Baye Alpha ak maam Amari sëñ Ibrahima Ndiaye Sarr ma nga nële di doomu Baye Alxaaji Taala Sarr ak Baye Serigne Paleen Baye sëñ bi joxe ndigal doomu Baye Serigne Sarr ñu tudde ko Baye Bakar le 20 janvier na ko ñépp bàyyi xel Baye Bakar bis bi yàlla na yàlla defal la ci jàmm ak barke kontaan nañ ci yow bu baax yaag say rak ak ñi ko séqal ñëpp Baye Malick Niang sëriñ bi nee na jërëjëf sëriñ baa ngi lay sant mi ngi lay gërëm mi ngi lay ñaanal yàlla fu mu yëngoo nga jiitu ko fa wax ko ba mu rafet dox ko ba mu rafet kon sëriñ baa ngi lay bàyyi xel ñoo ngi nuyu ñëpp bàyyi sëriñ bi nee na. baay sëriñ bi nee na. ku nekk na nga jël dog. kenn ku nekk te nekk ci tànt bi jëlal sa kurus te jël dog. def ci ixlaas fukk ak benn. nga jàng fukki ixlaas ak benn. pas-pas bi mu amoon ci kër gi. pas-pas bi Mori Diouf amoon ci kër gi. sëriñ bi nee na ëkk rëy am ko ci cekkeen gépp am ko ci cekkeen gépp ko ci njabootu maam waaye am ko ci njabootu ma Momar Talla Seck góor gu mag doon ko sottee fii waaye nag doon ko sottee fii ci tàntu Baye Ousmane bii waaye fee mu tëdd ñam ko doon defal ñam ko doon defal dina xam ni dina xam ni am na ñoom ko doon defal am na ñoom ko doon defal sëriñ Mori Diouf ak waa gàdd nga yëpp yal na yàlla na yàlla yal yàlla dolli seen yërmande yal na yàlla dolli seen yërmande ñi fi des di feddali kóllëre gi yal na yàlla sàmmal leen kóllëre gi ñu jàng fatiha fukki lixlaas ak benn salaatal fatihi def ko haddiye ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaanal Serigne Mori Diouf yal na yàlla yeesal yërmande ci moom barke yonent bi Ngañ Sarr nee na daa jël oto. ni nag damay ànd ak sama maam. ne damay ànd ak sama maam. gàmmu ga maa koy gàmm. ndax gàmmu ga maa koy firi ji. ni Ameth Mbuub. mu wax ma ne ma. kaay dugg ci sama oto kaay dugg ci sama oto ma ne ko gaasuwaal bi ma ne ko gaasuwaal ba maam mii maa koy def maam maa la koy jox maam du max Mahdi sa baay sa baay lépp lu ko waroon lépp lu ko waroon ci diine ji ci diine ji def nga ko def na ko fa mu roccee fa mu roccee nag nga jële fa yow fa nga jële taxawu sa baay taxawu sa baay ak famille ba yëpp ak famille bi yëpp yal na yàlla sàmm yal na la yàlla sàmm siise ngaari siise ne xam ngeen ni at mu ne nu def ko mu doole ko ab jéego kon yéen taalibe yi jërë ngeen jëf yàlla yàlla fay leen ne wàccoo ngeen ak si Ousmane Seck yàlla na nga gudd fan yàlla boo fi gaaw a jóg bàyyi taala yow yaa baax bàyyi taala yaa yaru bàyyi taala yaa mën a say wayjur seen gëdd ba mu mat te yow doo war mukk loo wax moo yow ne maa ngi doy doom yu mag mboolem njabootu Baye Modou Faly Seck njabootu Baye Ousmane Tall njabootu Mame Mbaye Gningue njabootu Omar Sène ca Mbadal njabootu Omar Thiaw ca Kër Masilla njabootu Mame Daour Diop ak njabootu Mbaye Maxa Njaay ne yéen njaboot gi leen fi na ngeen góorgóorlu góorgóorlu ngeen sax ne damay doon rek dénkaan li maa ngi leen di gën a dénk bàyyi taale bi yéen njaboot boobu ma lim bàyyi taala yow di nga ma jariñoo ndax tey danaa koy faral di wax man tey may jëmmi dina ji toogewu ma sama maqaamam bopp dama jëraa teg ni maay jëmmi ji waaye alaaji ngañ moom mooy xelum dina ji nee li dox lépp xam-xamam xelam ci lay dox alaaji ngay benn xam-xam rek lam mooy terle ak wax lu rafet loo ko dugal xamu ko donc nee man nag du ma xeeb sama bopp ba du ma jàpp ni man maay seexu caram waaye nag ba pare di caatu góor mag dund juróom-ñett fukki at yu manqué jàng naa tasawuf andi naa ay diiwaan yoo xam ba léegi kenn billaahi nee ma yàlla daf maa may njëkk may toog xilaafa nee fii ma wax leen ni leen diine ji day nelaw danaa yee diine ji bam ni jaar laaj leen réew mi mba xam yeewu na wala ma nga nelaw yeewu na de nee keroog bi ma toogee xilaafa billaahi nee Serigne Papa Seck Murtada ak maam Talla Ousmane ñoom la sama xol jàpp ci ñoo xam ne ñoom moo lay ak jàppale ak Omar si mi may dimbali barke alxuraan lii laa toogaale xilaafa sama yaakaar yëpp. ne na ngeen xam ne mu ci yéen ñaar ne li ma leen wax nag moo ne ci man ne ma foog nag sama xol ak sama xel ne ma teg ko ci seen ñaari jëmm yi ne di ko dundal yéen nag ba fii ma toog ne bi ma toogee wax naa ni dama ni woon damaa bëgg a liggéey mooy sama première déclaration damaa bëgg a liggéey ne moo ko président Macky Sall mu ni ma ak naka ma ko ni ma bëgg a doxe yëpp mu ni ma danaa la jàppale ne amaguma dara nag waaye départ naa ci liggéeyal seexu Canaba ne ku ma ci fekk danaa liggéey ku ma ci fekkul danaa liggéey ne bëgg naa defar kër Amari nag wax ni ko sa pàkk bii nga niiree dama ko bëgg mu ni suuf si ma am yëpp soo ma ko laajoo dama la koy jox jox ma pàkk ba ma am ñeenti téeméeri bàyyi ko gone yi bind yéen gouverneur ma bañ wax ci sama départ xilaf ma bàyyi président Omar si dama yàgg mu dikk ma pàkk bi ma la joxoon ah bëggaat naa ko ma dama la koy jaay de waaye mënuma la ko may mu ne ko koy jaayee ma ne mu foofu 5 millions jox ma ma defi dépense. ñu andi logement social wax am ca te sama yoon nekku ca joxuñu ma ko sëñ Abdourahim lañ ko joxoon sëñ Cheikh lañ ko joxoon mu jaar ci loxoy Baye Abdourahim mu wan leen place place coowam ca man ma bañ caa dugg noppi nee ma départ sama xel nag may ma may defar nag xabru maam góor gu mag nee ma yóbbu fa ay maçon ñu ne ma ñu defaral la ko lépp jox la say caabi danga may jox 32 millions Omar si jox ma ca 5 millions. ñaar fukki million ya ak ñett sama xaalisu bopp la benn taali bi fekkuma ca ne commande nañ bulletin France ci dix millions mu ngi ñëw maa ngi waxaale ak marocain yi waaye li ma laaj ci finition bi mooy ñeent fukki million nee na ñu teg tuuti nee maa ngi puusante ak ñoom nag pour décoration yi lépp rek waaye nee gisuguma benn taalibe nee borom taalibe yi nag mooy ñaar ñii nee ñoom li ñu war a ma toogee canam joxe déclaration bàyyi taal Ousmane nee bu suba mu xëy na wax ko àddina bi yëpp su ma joxe déclaration Baba Seck Madické wóor na Kébémer daane koy wax njàmbur gépp loolu mooy li war nit ñi gisuma leen ma leen gàllankoor waaye yéen nee wattu leen ma bu leen gàllankoor ci man ma mun a am ndam te taxaw leen sama ginnaaw ma ànd ak yéen. lu defaraat kër amari nag ndam la war àddina ko am mukk taxaw leen sama ginnaaw nu bokk liggéey defaraat Thiénaba ne ku ci defe ni am nga maqaama ba mënoo gàllankoor ci man àddina daf lay bett damaa bëgg liggéey liggéey boobu nag natt naa kër góor gu mag nee kër maam taala bi laaj nañ ma fukki million ak mu ngi sama nee yeewi leen taalibi nu jàppale ma bàyyi leen taalibe yi ñu jàpp leen li ngeen yor billaahi sama yëfa papa Seck li nga yor maa ko moom billaahi sama yëfa maam Mor li nga yor maa ko moom sama yëfa nanguñ leen ma ko déclaration bi nag dootuma ko wax ci àddina damay dem rek fa séenee liggéey ne gisuma taalibe yi luñ mën a waroo nag ak lu mën ci àdduna nee na liggéeyal maam góor gu mag wari caa bokk la nee na andil leen ma tranga nee ma liggéey nee man nag nee bu soobee saa bala maa teqali ko yéen billahi da ngeen ni góor ma macha allah yéen ñëpp dégg nañ message bi dégg nañ message bi ne li ma bëgg daal mooy liggéey ne bu neexee yàlla danaa liggéey ba ngeen dar seen giriñ waaru message bi allah dégg nga message bi jërëjëf ne bàyyi leen taay bi na jàppale ma ne man daal liggéey laa bëgg liggéey rek laa bëgg ne xilaafa gi damaa bëgg a ba fekk sama baay yàlla na li ko tax a sax dama ko boole ñetti sànce yépp ma juróondoo benn bu ci ne maçon yi fay naa leen ba mat ñu war maa jox ay caabi ñetti kër nee na mu ngi woon ñëpp ci liggéey maam Momar Talle nee bu neexee yàlla yéen ñëpp danaa leen soññal sëñ Pape Mourtada ma dikkee dinaa la soññi nee seet yow ana sa taalibi yi ak yow ni nga bëree ne man daal sëñ Pape liggéey bëgg ne caabi li day nee na tijji naa ko te dootu tëju ne maa ngi nuyuwaat bokk yëpp bàyyi taala Ousmane nee na gis naa teraanga ji yàlla yàlla fay la ci barke alxuraan ne maa ngi nuyu yëpp maa ngi leen di ziara yàlla fekk dewen nee su dikkee na dàq ren nee maa ngi nuyuwaat ñëpp nee ñu joxe teere yi alaaj waaw mu téere yi moo tax la sëñ Pape Moussa ma dikkee moo la jox téere yooyu ku fi nekk ku mën a jëlal sëñ Talla Kajoor ku ko fi mën a jëlal waaw benn bi Talla suñ Talla Kajoor ak moom suñ Abdul Wahab am na ci sëñ Alpha Mamadou Ba mu ni benn bi yaa ko moom sa sa wayjur moo la ko njukkale sëñ Abdou Wahab sa wayjur moo la ko njukkale sëñ Taala Kajoor sa wayjur moo sa wayjur nee moo la njukkale maam Taala mu ni day ñëw nag yéeme ko ne kontaan na sëñ Al Sëriñ baa ngi lay gërëm bu baax yow doo cof benn jotaay sëñ yàlla na yàlla guddal